illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilxaq wa tawasaw bisabr يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu leen di leen sant leen gërëm ci daje bii di daje bi lislaam ñu yaakaar ci ngëneel yàlla ak njëggal suñu bopp ak ngir ñëpp ñu fi teew ci waxtaanu diine lislaam ngir yàlla ak yonent bi barke Cheikh Ahmed Bamb ñu jagleel daje yi suñu borom nee doomu aadama dafa laloo perte mu set ci ne lu dul gëm te jëf jëfi topp yu yiw te dénkante dëgg dénkante muñ dëgg ak muñ da suñu borom dëgg de moo gën a dëgër lépp lu mu doon muñ itam ne ñu mooy genn wàllu ngëm mu ne yéen gaa gëm na ngeen ragal yàlla te bakkan bu ci na seet la mu jiital ëllëg ngir fa mu jëm muy kër goo xam ne bu fa demee dootu fa jóge mukk te lu mu fa dawalam bu ko fa fekk na koy seet di ko gënees ci xelam te ngeen ragal yàlla yàlla kat dañ na kumpa ci li ngeen di def lépp amul benn tomb bu ko ci um te lépp la bind bu leen mel ne gaa ñi nga xam ne dañu fàtte yàlla ba yàlla fàtte loo seen bopp fàtte yàlla mooy fàtte sa bopp ku fàtte yàlla nag yàlla fàtte loola sa bopp ñooñ ñooy ñan ñooy ñu ittewoowul yàlla ittewoowuñu seen diine seetuñu seen ëllëg ñooña la suñ borom fàttali seen bopp nan la leen fàttaloo seen bopp mooy fàttali leen la leen di jëriñ ëllëg fàttali leen la leen di tax a texe ëllëg fàttali leen la leen na ñooñu ñooy fasiq fasiq suñ ko dee tekki ci wolof saay saay lañ koy tekkee saaga la mu ne waa àjjana ak waa safara du ñu yem mukk kon du ñu bokk yoon wu ñu jaar mukk du ñu bokki melo mukk du ñu bokki jëf mukk mu ne waa àjjana gaañu jëm àjjana ñooy ñi texe ñu ci des ñooy ñi texewul thème bi ñu war a waxtaane di lu am solo mooy diine moom rek ay diine ndax ngëm fi la diine dale xam jub boo gëmee ba noppi ngay sàkkoo xam nga xam na ngay jaamoo sa boroom boo jaaree ci yoonu jaamu nag yaa ngi ci yoonu jub kon ñett yooyu mooy diine ngëm mooy lan mooy nangu gu xol nangu mbir ba dogu ca moo xam mbir moomu lu am la wala lu amul la lu am njëriñ la wala lu amul njariñ la nangu bi ko xol nangu moom la ñu tuddee ngëm ngëm nag kon panqas yu bare ci nekk place ngëm mooy xol xool mooy lan mooy ndab li doomu aadama taawu te mooy place yu yàlla bu yàlla dee ak ñëpp ci kaw suuf mooy xolu aji foofu rek la yàlla nekk xol ci biir doomu aadama ci kaw suuf di loo xam ne dafa nekk fi bërëb te nangu nangu melow bërëb ba yëpp bërëb bi mooy lan lan mooy melow bërëb bi bërëb bi mooy kaw suuf li juddoo ci biir suuf màgg ak li bokk ak doomu te muy dajeeg moom bis bu nekk di ko jëfandikoo seen rapport sax li jëme ci xelam li muy jëf yooyu yëpp mooy tax bërëb am melo yooyu mooy sàkkal bërëb melo kon yooyu ci la bërëb bi baax ci la bërëb bi bone ci la béréb bi sooyee nit texeel ko ëllëg ci la béréb bi gàddu it ak texee di goo xam ne ku ko watandikuwul mu bés la ko kon béréb boobu xol nekk ci te xol di loo xam ne nangu na lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kullu mawludin yuladu alal fitra wa innama abawaahu aw yumajjisaanihi aw yunassiraanihi bépp nit bu juddu dafa juddu amee melaw li ñuy wax fitra mu mel ne tey bol boo mooñ mu pat mu la neex tabaxi ko forme bu la neex jox ko couleur boo ci bëgg a def sotti ko ca mu nangu ko noonu la xol mel mu ne nag képp ku juddu da amee xol bu bu set bu indaalewul dara bu wóorul dara fa mu nekk nga ca nekk ku ko cay def mu ni ñaari waajuram maanaam ñaari waay juróom ba la neexee nga dégg ko ñaar ñi ko jur dégg ko itam suuf si ak li ne ci kaw suuf muy doom aadama muy jëfi doom aadama muy leneen lu fi yàlla def ak lu mu mën a demee nit ki am moom ay rapport di ko jëfandikoo di ko gis di ko jëriñoo wala di daw loram waayu la ñu def ca xol ba moo fay sax xam ne kon xol melawu indaale ci adduna melawu dëgërum la mën nañ ko soppi looloo tax sallallahu alayhi ne kullu mawludin yuladu ala alfitra wa innama abawaahu aw yudaanihi aw yu majjisaanihi aw yu nasiraanihi maanaam ñoo koy def yawoot ñoo koy def nasraan ñoo koy def majjoos ñoo koy def leneen lu mu mën a doon kon suuf mu béréb bi doomu aadama yi dundee ak ñi ko doomu aadama def ak ñi doomu aadama fekkoon mu mel ni xam ne léegi mooy melal doomu aadama na mu war mel xol kon nangu na lépp ci indi léegi kon xol lana koy xamal yàlla lan moo koy jox ngëm ga am njëriñ ndax ngëm dafa bari xeet nit dana gëm lu dul dara nit dana gëm luy dëgg te amul njëriñ nit lu koy alak nit dana gëm tax a texe ëllëg yooyu yëpp gëm gi ci nekk nan lay dikkee ci xolub doomu aadama ndax nit bu fekkee ne dañ koo bàyyi rek ak bërëb bi mu nekk bërëb baa koy melal na bërëb ba mel noonu lay mel ndax doomu aadama bu ñëw ci àdduna bu tànn ndeyam bu tànn baayam bu tànn jamono jan lay ñëwee bu tànn réew ma muy juddoo bu tànn ñu koy yar bu tànn ña muy jaxasool bu tànn itam ña koy jàngal kon bi mu ñëwee ci àdduna yoon wu ne ubbiku mu mën caa jaar ñu seet wan yoon lay jaar ana lan bërëb bi ci nekk am na lu muy gëmloo nit nan la nit kon fu muy jëlee ngëm ga am njëriñ ngëm ga nga xam ne mooy ngëmu dëgg ñaara fi nekk ku ñu jaarale yoon ak ku ñu bàyyi ku ñu def muhmal muhmal mooy ki nga xam ne dañ ko bàyyeeg bërëb ba mu dëkk moo xam fa la juddoo moo xam dafa teel a ñëw wala dafa yàgg ko bërëb ba melal kooku mooy ëpp ci àdduna moo ëpp ci réew yi ndax fépp foo xam ne amewuñu diine lislaam ñu fa nekk muhmal lañu maanaam ñu ñu bàyyi rek ak nañuy doxee mu doxale ko nañu gëm ñu di ko gëm nañu aadawoo ñu di ko aadawoo nañu mel bu ko defee nag doomu aadama xelam lay ak bànnee xam ñoom ñaar la am ci ñuy womat tumam bi xel dana sànq doomu aadama léeg-léeg mu wan ko yoon waaye bu dee moom kese du ko mën a wan yoon bu fekkee ne ànd naag ñi ubbi yoon wi xel dana ko guddee ci biir yoon bu ca ba dugg waaye fekk duggagu ca xel man na bu fekkee ne moom kese daf koy jëme feneen mooy xalaat ni wuute ay pas-pas ak la ñu gëm ñu gëm ne li wax hasard lépp lu am dafa dajante rek amul daal menn xel mu ànd ak kàttan moo xam ne mooy doxal adduna xam ne dana laaj jaam ñi ëllëg ñu la doon jëfe lu dul hasard rek ñen ñi góorgóorlu ba gëm lu ñu tuddee providence ci tubaab di discuter valeur existence maanaam doomu aadama lu tax ñu di ko bind bañ ko bindee ndax dund gii mu dund ci àdduna buñ ko seetee am na njëriñ ndax jaroon na mu bind ko wala jaru ko woon damay wax xalaatu ñi nga xam ne gëmuñu diine libre penseur yi ndax dund gi am na njëriñ wala amul njëriñ dund gi fu ñu mujj fa ñu mujj ndax ak texeem la wala texee di la day mujj ci ci lan teg problème yi liberté maanaam xorriya ndax nit libre na wala liberul bu liberul ay jëfam amu ci benn responsabilité bu libéré noonu am na ko xalaat ne gis ne doomu aadama day dee ñu xalaat dee ak li muy indi ci koo xam ne du ñu fi diine diggante kon matérialiste yeeg spiritualiste yi kenn ku ci nekk ak say xalaat ak fa nga teg mbirum àdduna maanaam aalam bi nit nag digganteem ak yàlla lenn fi dox mooy yonant jëmm ji mu yónni jox ko sens yi nit am ñëpp jox ko beneen boo xam ne yeneen ñi ci des amuñu ko mu tax mu mën a jànloog malaaka mën a wax ak moom am bunt boo xam ne fa la ko yàlla toll mën ko sant li nga xam ne moom la war a sant jaam ñi mu xam ko dégge ko ni ko war a dégge may ko kàttan ak xel mu mu jiitee nit ñi jaaral leen ci yoon woowu kooku la ñu tuddee yonent kon ñu gis ne xol moom lu doy waar la lu mën a yóbbu nit ndax li nga gëm rek ci la aju bu fekkee ne nit nee na la léegi tey bërëb tàngam alal ji du jeex fa nekk ku dem am nga gëm loolu aw yoon wi fekk ay reykat nit fa nekk sa ngëm boobu fu mu la jëmee ci dee ci dee ndax da nga gëm lu dëgg naka noonu boo xam ne li nga gëm dafay loo xam ne ni ajiwul fenn sa moroomum jaam moo ko xalaat jaaral la ca ndax jaam bu mu doon dafa conditionné ci adduna ci bërëb ba mu nekk ak jamono ji muy dund ak xew-xew ya xaw lay jëlee lépp lu xalaat lu xalaat ba yàgg-yàgg ci adduna nit day dem ba weesu ko xam ne bootu xalaatu dara ñu wàcc ko kon lu jógewul fa yàlla mënula dindi doomu aadama bu ne nag tàmbalee ci al imaanu bil xaybi gëm kumpa ngëmub diine dafa tàmbali ci kumpa kumpa mooy lan yàlla ëllëg te gisuñu ci dara gisuñu yàlla ëllëg lay xew gisuñu dara ñu gëm leen fukk yoo xam ne lu ci nekk dañ ñu koy wax rek ñu war koo gëm mooy gëm ne yàlla am na gëm ne am na ay téere yu mu wàcce ngir jaam ñi wàcce ko ci ay doom aadama yu ñu tudde ay yonent ba doomu aadama tàmbalee am ci kaw suuf ba fu ñu toll doomu aadama yooyu fu ñu toll ci xam-xam ci civilisation ci la jëfandikoo fu mu a toll ñu indi diine ji tolloog xeli ñooña ak seen dund seen civilisation waxtu woo xamee ne dem nañu ba ñu weesu loolu wala njàngale mi yonent bi jàngale woon fàtte nañ ko mu indi yàlla yónni beneen yonent mu indeeti njàngale mu bees xam ngeen ne jamono yu nekkoon jamono ñuy gën a yàgg am na jamono boobu doomu aadama xamul këyit ba mu bind téere am na xam ne doomu aadama xamul bind ba mu demee xam bind la mu jëfandikoo ci bind du loo xam ne lii lu mu mën a denc wala mu mën a dem moom di ko yor ci woyof la doon benn mu bind ci lu mel ne allo muy gàtt garab wala mu ci xeer wala mu bind ci der xam ne bi dafay yàqu léeg-léeg daay yi daan tàkk di leen dàq bu ñu ko mën a yóbbaale ñëwati ko fa léeg-léeg ndëmm yi daan gën ndox mi di leen dàq fa ñu nekk amuñu ay dëkkuwaay yu am solo mu daw wacc fa loola ba tax yonent yi daan ñëw li ñu daan jàngale daan gaaw a raaf yàlla di yónneeti yoneen yi yonent fu mu toll di ko def di ko def di ko def ba mu agsi fi mu toll moom gis na doomu aadama maanaam euh, dafa tàmbalee ci njëlbéen mel na tey bu ñu ko jàppee si jumni kenn ba muy xaleel dem ba di nekk waxambaane dem ba wees foofu di mag mu ñor xom dem ba nga xam ne àgg na fa mu a yem diine itam buñ leen seetee noonu la ñuy dikkee doomu aadama diine yahood di njëkk ñëw ci diine mooy diine ji tolloog bi doomu aadama nekkee ci ndaw mi ci xaleelam nga xam ne amagul lu bari xamagul lu bari fii la xelam toll ñu indi ñu di ko jàngal la nga xam ne moo tolloog xelam ndax xam-xamam dëgëragul kon mu mel ne tey buñ ko seetee ci enseignement ñu ne enseignement primaire moo tolloog diine yahood bi humanité maanaam insanie doomu aadama ci kaw suuf màgg na ba wees foofu tolloog enseignement secondaire mooy diine booba chrétien yi diine ji ñëw fekk ci doomu aadama toll ci ak xelam ak xalaatam ak civilisation ak am-amam ak jëfandikoom yëpp mu tolloog foofu ba mu demee ba doomu aadama weesu foofu mu xam ne lii mënatu koo jëriñ dara mu mel ne liir boo xam ne dañ koy nàmpal mu dem ba weesu meew ñu di ko jox ruy mu dem ba weesu ruy ñu war koo jox yeneen i ñam léegi doomu aadama àgg ci fi ñuy wax maturité moo di ak ñoram l'islam dikk diine ji nga xam ne moo gën a mat moo tax yonente bi sallallahu taala wa man mu ma demee ci yonente yi maa ngi mel ne ab tabax boo xam ne ba ma dikkee dama fekk ñu teg mool yi ba mu des benn wet boo xam ne benn mool tegu fa man mooy mool yañ ko mottalee kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu di Muhammad ba mu dikkee nee na beneen yonente dootu ñëw sama gannaaw ndax léegi doomu aadama ñor na ñor goo xam ne am na civilisation boo xam ne xam na loo xam ne dootu ñu dem ba dépassé diine ak fu science mën dem daana dem ba àgg ci ñu mu misaale loolu kon mu di jëriñ doomu aadama te di bi nga xam ne mooy li jiitu ci lu mu soxlawoo fii wala lu mu ittewoo moo di wéral ngëmam ngëm nan lay wéree moo di dogu ngëm koo xam ne nit ki dañu ne ko rek yàlla kat am na mooy buur bi sàkk jaam ñi ku ko jaamu danga nga texe ëllëg ku ko jaamuwul danga nga lakk na mu gën a sempale na mu gën a yombe nga xam ne gone gu ndaw sax boo dee wax ak moom loolu dana xam ne loolu na mu deme loolu nit ki daal di koy gëmee noonu rek moom lañ tuddee imaanul ajaïs la ko arab yi wax maanaam ngëmuk màggat ñu jigéen ñi duñ ne lii lu tax bu ne lu ko waral bu ne loolu kon bu amee lu tax nangam nangam yooyu yëpp seen xel du ci nekk lañ leen wax rek daal di nangoo noonu moom la tubaab bi wax la foi du charbonnier ngëm googu ngëm bu wóor la goo xam ne amul dara lu ci wàññiku fekk ne ngëm la goo xam ne ànd naag tuuti ci réer nag waaye réer googu du ko lor ndax yonent bi sallallahu alayhi mas na am benn waay boo xam ne dafa jugoon war a kaafaara ndax la mu jugoon du dëgg mu war a kaafaara mu ne ko da ngaa war a goreel jaam boo xam ne bu gëm la jullit la fekk mu am benn jaam bu jigéen ñu di ko laaj ndax gëm nga wala gëmuloo yonente bi sallallahu alayhi ne ko gëm nga yàlla mu ne ko mu ne ko fu mu nekk mu ne ko ci kaw asamaan yonente bi bàyyi ko noonu xam ne foofu la xam-xam toll waaye ku ne xam na ne yàlla amul bërëb bu ñu ko mën a teg ndax yàlla ëpp na bërëb ndax moo jiitu bërëb bërëb boo ne ma nga fa moo bindu bërëb ba kon ba mu bindagul bërëb ba fu mu ne woon moo tax yonente bi salaala alayhi wasallam ne suñu borom bind na mu bind lépp te mu na mu nekk woon ba mu bindagul dara kon bu mu bindee soppikuwul daraam soppikuwul al istiwaaw alal arsi leneen la loo xam ne mën nañu dem ba àgg ca ci waxtaan nga xam ne kon imaanul ajaayisi dana wóor fekk na nag dëgërul dëgër gi ci war dëgër gi ci war mooy bu fekkonte ne adduna bépp daje nañu démontreel ko wala ñu indil ko ay ay xarbaax wala ay kéemaan pour gëmloo ko ne lii nga gëm kat du noonu neneen la dana daal di dang deng ca lañ ko waxoon ndax ñi ta ñëwoon rek wax ko léegi bu keneen ñëwee rek wax ko gëm ga man naa dañ loolu la ñuy wax ne ki nga xam ne dafa gëm ngir kaawteef bu koy gëm def bu keneen ñëwee weddi la koo ko defoon bu njëkk indi kaawteef bu ëpp ba kee defoon day daal di weddi ni nga xamee ne bu yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam sànnee yet bi mu nekk jaan wala mu sànni doj mu nekk wurus ña gëmoon bi saamir yu ñëwee tabax yëpp wurus muy naññ di dox dañoo mu ne leen kii mooy yàlla moom la Moussa seeti dafa gëlëm gisu ko dajewul ak moom ñu daal di jaamu yëpp wa ndax kawteef la leen Moussa wanoon loolaa leen gëmloo woon ba saamir yu dafee kawteef itam ñu daal di nangu loolu ñu ne moo tax imanul ajaiz dëgër na waaye ci kaw ñu sàmm ko loolu moo tax ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aksaru ahlil jannati bun wa innama illiyuuna li ulil albab ñi ëpp ci waa àjjana mooy nit nga xam ne ñu simple ay xel lañu mooy ñu mel ne ajaayis ma waxoon xam ne alxuraan dañ ne leen alxuraan ngi nii yàllaa ko wax wax leen dëleel yi ci yàlla digle ak tiitle yi ci tiitle ak tëkku yi ñu gëmee ko noonu ne leen àjjana ak safara ñu ci ni ko alxuraan ñu ko noonu ñooñu seen ngëm wax boo xamee ne leneen lu koy dindi dikkul rek seen ngëm lu sotti la te ñoom ñi li bari ci ñooñu bu ñu posé bopp ay question bu ñu ne nangam nangamat moo tax seen ngëm itam di am wet goo xam ne dana dër dër goo xam ne moo leen di yóbbu àjjana moo tax ñu ne ñi gën a bari ci waa àjjana ñu mel noonu la ndax du ñu am seen sikk sàkk feeg keneen ñëwul jóge ca àll ba rek bëgg a jax-jaxal seen xel dañuy sax ca lañ saxoon ngëm nag fokk war na dafa mel ne garab bu sax war na am lu koy suuqat war na am lu koy bay di ko jubbanti di ci sotti ndox di leeral fi mu nekk noonu la mu demee bu fekkee dañ ko bàyyi rek day mel ne garab googu nga xam ne dafa sax ci àll bi bu bàyyi mu ñëwee lekk ko bu ngelaw li ñëwee daaneel ko léeg-léeg mu mar ndax du taw mu dem ba xob yi wow wala mu dee nan la ngëm mel ngëm ci gëm dafa war a am lu dend ak moom di ko disi ba faw lu dend ak moom di ko disi ay xeeti xeet lañu waxtu woo xamee ne li koy difi difi ne ko ba ngëm di àgg ci tar doomu aadama pare na léegi kon pour def tadxiya bu mu doon maanaam sacrifice nga xam ne ngëmam léegi jaral na ko sacrifice maanaam jaral na ko jaay alalam walla ñàkk bakkanam wala sonal boppam coono boo xam ne bii jëralu ko keneen loolu li misaal moo di saxaaba yi bi ñu gàddaay bul dem Madina bi ñu nekkee Màkka lu nekk wan nañ leen ko ngir seen ngëm googu ngir bëgg ñu génn ca ñu nga ci xam ne nit ñu dëkkul Màkka lañu ay doxandem lañu woon amuñu ko leen aar ak jaam yi nga xam ne dañ leen a jëndoon moom leen seeni boroom nekk fa te gëmuñu di leen mbugal mbugal mu ngeen dégg ak mu ngeen gis di leen di naq ci ay ndox di leen jaaxaanal futti leen ci naaj wu tàng di leen ay doj bari si ñoo xam ne dañ leen rey ku ñu wax yaasir ak sumayya soxnaam muy yaayi Ammar ak baayam dañ leen rey Ammar ibnu yaasir mbugal nañ ko mbugal mu tar naan ko weddil Muhammad wala xas ko bi nga xamee ne mbugal ma dem na ba tar ba xamatul fu mu nekk lamiñam rëcc na tudd loo xam ne bëgg ko woon a tudd ba ko defee ñu bàyyi ko bi mu toogee ba xelam dellu si mu am tiit moo xam ne jàq na jàppe ne boppam ci ñi nga xam ne faaw ñu mbugal leen bi mu demee ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di ko koy wax mu ne ko in aadu fa bu ñu dellootee ci mbugal mi rek waxal loolu waaye loolu lépp bi ko Amar di wax it moom fa mu nekkoon ci ngëm mu nga fa déng déng lu néew néew mettit bi nag dem na ba domine ko ba xamatul li mu wax lan la bi mu koy wax noonu ko yonent bi tontoo aaya alquran wàcc ne man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min allah képp koo xam ne gëm nga yàlla ba noppi delluwaat gannaaw weddi ko merum yàlla dal na ci sa kaw waaye nag waxuma koo xam ne dañ koo forcé waxloo ko li nga ko waxloo te ba mu koy wax xolam andu ca kon Ammar daal di xam ne moom am na ak mucc te am na maxrajan génn na ci la mu xalaatoon ngëm war a dëgër dëgër gi mu war a dëgër fii ji suñu yonent sallallahu taala wa sallam mu di ñu defal ni mu doon defal saaba yi nga xam ne fu ñu toll ngëm gi day gën a bees ci seen xol ndax waxtu woo xamee ne lu bees am na bu dee lu rëy lu mu rëy rëy mu xamal leen fa mu tàbbi ci kattanu yàlla ak coobareel yàlla akub nameelam xamal leen xikkam ba ca juddoo ak lan lay jëriñ jullit ñi ak fu mu leen féete loolu di lu continuer sax ak ñoom yonent bi jaaral leen ci wet googu ba nga xam ne ñoom kenn ku ci nekk foo toog da ngay mel ne yaa ngi janlook aras ak kursi janlook safara ak ajjana ci njàngale moom mi leen yonent bi saxoo di leen ko jàngal ba nga xam ne bu ñu toogee fu toog bu waxul woon ñi di ko déglu it ñi ngi ñéeg ci yàlla fu ñu toll seen xole ngi gën a set ñooñu loolu mooy li nga xam ne moo leen doon difi moo doon dundal seenu ngëm di ko gën a dëgëral ba fu ñu toll pare nañu pour jaay seen bakkan jaay seen alal jaay seen kër jaay seen doom ak seen lépp ngir jëndeek ëllëg ndax li nga xam ne mooy ëllëg te ñu di ko nettali ñun ñoom amatuñ ca dégg rek dafa mel ne dem nañ ba jàkkaarloog moom foon ko mu xeeñ leen ñu làmb ko mos ko xam lu mu saf noonu la meloon ci ñoom ngir chance bi ñu amoon te ñeneen ñi amuñu ko muy dund gi ñu doon dund ak Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu di leen yee limaam Abu Hurayra nee na yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mësula dañ dinu jàngal dinu jàngal ba picc sax bu naawee mu xamal na ci xam-xam boo xam ne keneen ku dul noonu du ko xam kon ngëm dafa am toujours lu war a nekk ci wetam di ko difi di ko dundal di ko mandal waxtu mare waxtu xiife waxtu sonne mu noppal ko loolu la yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam na fi yu bari ci yoo xam ne moonuy difee noonu suñu ngëm ndax yooyu yëpp buñ ko seetee bi ci mujj gën ci am solo daanu ca dem moo di sëriñ boo xam ne mooy cheikhul murabbi bu mat sëriñ moom la ñuy mujjee waaye bokk na ci tafakkur tafakkur lan la méditation la ko tubaab bi mooy xalaat nekk di xalaat xalaat nag dafa am ay charte yu ko jiitu nit ki na jàng wala na laajte ba xam ne du xalaat lu mu warul a xalaat la mu war a xalaat lay xalaat li mu war a xalaat lan la nay xalaat li passé ci dundam te jaamu ko yàlla muy delloo si perte googu ci xolam di ko naqarlu di ko jéem a dabaatal nay xalaat ñi nga xam ne suñu borom def na leen ñii ñu ko féete suuf gën koo ñàkk chance ci àdduna wala gën koo ñàkk iman ndax muy sant yàlla di xalaat balaa yi nga xam ne suñu borom teg na ko yeneen i jëmm te moom tegu ko ko muy sant yàlla bu ko defee muy xalaat xéewal gi ko yàlla xéewal dana tax muy gën bëgg yàlla ndax ki nga xam ne moo lay defal lu baax di la defal li la neex di la defal lëggën di la ko tànnal toujours da koy bëgg bu ko defee loolu dana gën xëcc xolam jëmee ko ci bëgg yàlla te bëgg yàlla mooy waral ak texe daanu ci dem soobee yàlla nga xam ne kon noonu Muhammad alayhi salaam nekkee woon ak yi di leen teqantal nga xam ne bépp xew-xew bu jóg dana leen xamal la mu doon xamal leen lu tax xamal leen la ci yàlla jublu ak ñoom seen position lan la ci war a doon fan lañ ko war a teg nan lañ ko war a defee loolu tax mépp mbir mu mag mu xew nga xam ne dana tax doomu aadama war a tiit wala mu war a jaaxle di xalaat lii lu mu doon dañ ko sant mu dellu ci boromam bu ko defee nga xam ne delloo na lépp ci boromam dara amul kàttan dara amul jëf dara amul jeexit lu dul yàlla bu ko defee lépp day dellu fi yàlla mu delloo lépp ci yàlla ba nga xam ne amul dara loo xam ne di lu sore yàlla la ci xew-xewi àdduna ñu naka noonu ba nu àggee ca kanam daanu misaal lan mooy secret bi waxtu woo xamee ne jamono yooyu mbir yi gën a rëy te mën a dajale dëkk yu yaatu ñëpp gisandoo ko te mu gënoon mën a jaaxal doomu aadama mu di njàppum jant walla njàppum weer wala kàddu gu dal wala lu yëpp lu ci mënti doon ak ni nga xam ne noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan sant ñi di ko jëfe ak nañu daan delloosee seen xel ci yooy yëpp nga xam ne itam nit ki waxtu woo xamee ni rek lu mel ne musiba dal na ko alquran daf ko wax ne na dellu ci yàlla ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'una mun ñëpp yàlla nu moom te ci yàlla rek la ñuy dellu bu ko defee bu nit delloosee xelam ci yàlla xamul nan lay delloo ci yàlla ëllëg xamul fu ko yàlla di féetale muy xew dana daal di tuuti ci moom ci moom ki amul xam-xam ki am xam-xam nag daañu jaar foo xam ne dana tax mépp mbir mu xew dana xam moom na mu koy féetale nga xam ne kon euh, buñ seetee ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa mu ñëwee am na ñooñu kéemaan bi mu def ci lañ ko gëmee am ñoo xam ne dañ koo xamoon jëmam xam jikkoom xam ay meloom ba mu daataan woote ne yonent la mu ko umpale woon loolu lépp gis li mu indi mu di alquran wane ne ci yàlla la jóge ñu xool alquran ñuy gëm ndax ni ñu ko xamee woon démb muy nit ku mat di ko am xel di ku nit ku jub di nit ku rafet ay jikko ba xeeti mat yëpp jeex bu matale ko loolu tax ñu daal ne kon fii lu mu woote rek dëgg la ndax du fen ñu ne mun de alquran ji mu indi kawtee fi wax la joo xam ne benn doomu aadama mënu la wax wax ju rafet noonu wala ju mu roog loolu loolu lañ ko gëmee ñenn ñu seet li muy santaane ak yoon yu mu xotti li nit ñi nañ ci jaar ñu am xel seet yoon wi la ca nekk ak la muy dërale ak fa muy jële doomu aadama ak fa mu koy yóbbu loolu tax ñu gëm loolu di li ñu tuddee démonstration maanaam Muhammad sallallahu alayhi wa fii nii nga xam ne dañoo am xelum lépp lu ñu leen wan ñu mën ko examiner seet ko ba xam la ca jub ak la ca mu ñii kéemaan bi moo leen tax a nangu ñii dañoo xam ay jikkoom démb ak bërki démb ak meloom nangu mu mel ni tey léegi ñu ne su fekkonte ne ñetti nit dañu ñëw ñetti doomu aadama ñu woote ne kenn ku ci nekk ne moom xaafis la maanaam ko wattu alquran la nga bëgg a xam ndax wax nañu dëgg wala déet nga ne leen ah man kat nangu naa li ngeen wax ko waaye kenn ku ci nekk danaa la laaj muy sa dalil ci ne xaafis nga moom ñett kenn ci ne man danaa la wan sama ijaasa bi nga xam ne ki dàq alxuraan ci réew mi dàq fee jàngale te ku nekk xaafis mu bindal la ijaasa bindal na ma wan la kayit bi nga gis bindum kooka xam ko gis signature bi xam ne duwa ki ci des nga ne ko yow luy sa tegtal mu ni la man jëlale naa ne xaafisu quran la waaye boroomi karaama la maa ngi bokk ci awliyaullahi yi bu la soobee ma defal la kéemaan bu la neex nga ne ko yet wi soppil ma ko jaan mu def ko ba wi soppil ma ko wurus mu daal di koy def si saasi pour tegtale na moom xaafisul quran ba ba mu jeex ba ubbi mu tàmbalee ci boppu bàqara tari ba jeexal ñett yooyu ñu ne kan moo ci gën a wóorile ku ci gën a wóorile fi tari fi tar rek moo ci démontré noonu la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demee ci yonante yi ci borom xel yi daanu ko leeral bu soobee yàlla ci kanam kon ndax ki nga xam ne dafa indi ijaasa jàngalekat bi mën na ko sàcc sàcc ci moomoon ijaasa bi dafa bokk moom tur mën na ko imité itam dégg nga mën nañ ko ko dénk mu wane ko itam mën na neexlaate itam ñu def ko ko def kéemaan bi mën nay jabar mën na itam keneen nit koo xam ne kii dafa am ay euh, taxayulaat yoo xam ne féewul waaye ci tar moom kenn mënu la am benn sikk ci li mu def loolu moo tax saaba yi seen xeetu ngëm bokk ci ngëm yi gënoon a dëër kon dégg gi ñu daan dégg alquran ñu di ko jàng ba faw ci seen xel ci seen kanam ñoom it ñu daan ko jàng dëkki ko di dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi mu di leen waar loolu moo daan foofaat seen ngëm alxuraan nag ni nga xam ne nit dem na ba mën cee mandee mën cee nàmp faw mu am niveau bu mu àgg ndax alxuraan géej la goo xam ne amul tàkk yemuwul fenn ndax bu ñu wàcc ñi nga xam ne gisuñu lu dul làmmiñu arab rek ak rafetaayu làmmiñu arab ñëpp bokk nañu saxal ne bi alxuraan bi wàcc rafetaay bi nga xam ne moom la ay alxuraan yi rafet fi làmmiñu arab toll woon ci jamono boobu ci perfection seen diggante xel mënu koo xalaat loolu di phénomène boo xam ne ba léegi mën a guñ ko expliquer mën a guñu ne loolu nanga ma ko waral explication bi yomb na moo di ca yàlla la jóge jógewul ci mbindeef bokk ci rafetaayu alquran di yéemoon arab yëpp ñu gëmoon ak ñu di woon jullit yëpp dañ ne woon ak njabara ci nekk ndax képp ku dégg Muhammad di tari alquran rek da ngay dal di gëm ko tey ba ngay yóbbu leen woon ci mu tere ku ko déglu kuy gis Muhammad di jàng alquran nga déglu ko ñu jàpp la ñoom ñu ko daan tere alquran rafetaay gi mu rafet ak neexaay gi mu neex tax ñoom seen bopp mënuñoo muñ alquran benn bis yonent bi nekk ci néegam di jàng guddi ñoom seen bopp bu ñu déggee baatam mënatuñoo toog ñu dal di génne seen kër di yoot ba kenn ku ci nekk sus ci benn koñ ci néeg bi Muhammad di jànge di déglu muy tari mënatoo dem ba fajar jot bu ñu dee bi ñu dellu ñu daje ñoom ñoom ñett ñëpp ñu yoon kenn ku nekk yedd sa ñu daal di wax ne léegi kat ñun ñii gannaaw noo ngi tere ku déglu alquran kon ñu ngi koy bu ñu jigéen a ñun ko déglu dootuñu mën a tere kenn te kon bépp daañu ñëw di ko déglu te kon ñëpp daañu tuub ne buñ ko defati ca ëllëg sa ba mu tàmbalee tey jàng mënuñ ko muñati ñoom ñëpp kenn ki ci nekk jaaraat fa nga jaaroon ba muy ñetti yoon li ko def moo di alquran téere yi yàlla wàcc yëpp wàcce ko ci ay yonent alquran dafa wuteeg ñoom ndax euh, différence dafa am diggante lu ñuy wax texte révélé ak texte inspiré moom téere yi maanaam yi ci boppam maanaam message bi moom la suñu borom communiqué yonent bi bi ñu ko yónni mu xa wax ko ci lamiñ wa mu nàmp moom nga xam ne ay wax waxinam la alquran nag noonu la dikkee ci Muhammad yokku ci benn xaraf wàññiwu ci benn xaraf noonu la ko dikkee loolu moo tax alquran wuute ak yeneeni téere yi alquran ñu ne la juut la boo xam ne amul tàkk maanaam yemuwul fenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma min xarfin min xurufi alqurani illa walaha zahrun wa batnun wa lil batni batnun ila sabati abtunin xaraf koo gis ci arafi alquran am na biir am bitti biir ba amati beneen biir biir booba amati beneen biir ba muy juróom-ñaari biir juróom-ñaar daf ko wax ngir wane ne lu bari la rek waaye mu ngi ci diine amul fu mu yemee ay alquran maanaa yi ci mën a génne kenn xamul nu mu toll li lay bay ci loolu moo di bu nga xamee ne alquran yéefar yi dañu ne Muhammad ci boppam rek moo ko wax waaye jógewul ci alxuraan daf leen a ndëkk ne leen arab ngeen ne Muhammad demul fenn fu ngeen demul xamul lenn lu ngeen xamul jàngul dara yéen itam jàngu leen ngeen fexe ba indi fukki saar yi ñëw alxuraan noonu la nga ne Muhammad a ko wax kenn mënu ko mu ne leen indi leen wenn saar rek kenn mënu ko mu ne leen nit ak jënne yépp suñ daje woon it duñ mën a fexe ba indi mukk téere bu ñu ak alxuraan léegi kon ñu di défi boo xam ne alxuraan daf ko sànni adduna bépp ñi nga xam alquraan l'islam fay mu ngi toll ni suuf te li ñu amee ci ay alal du jeex te namuñu ci lu dul arrêté propagation l'islam pexe mu gën a gaaw ci yàq l'islam wala yàq xolu nit ñi ci ngëmu l'islam mooy ñu fexe ba sos téere boo xam ne dana xaw a ñu loog alxuraan ba nga xam ne buñ ko indi woon ñii daañu ne mel na ni ñii ne mënuñu sax dana dugal yàlla moo ne bu ngeen indee téere bu nit ñi ak jinne ñëpp buñ woon itam buñ indi téere bu mel ne bu ngeen indi woon fukki saar wala wenn saar rek bu mel ne moom daanu nango ni ko def kon bu ñu fexe woon ba ñu ñi nga xam ne noonu na lañu bu ñu fexe woon ba confectionné ci arab ñu ñuroog wenn saar rek ci rafetaayam daañu yàq daañu dugal sikk ci xol yi nit yi nga xam ne dañoo gëm ne alxuraan te yàlla la jóge saaba yi nag li tax ñoom ñu xam ci alquran loo xam ne kenn xamu ko am ci position bu ci keneen amul woon ñoom ñoo fekkee woon asbaabu nuzul maanaam circonstance de révélation yi xew-xew bu xew ñoom fekkee nañ ko ba aaya ji wàcc ñu xam moo ko tax a jóg benn ñoom daf cee am ci ñoom ñu tukki am ñu ne nii la ñu ne jógee ñu werante ci fekk aaya wàcc ci Muhammad xamal ko ne ko nangamkat bu xewee nangamay àtte bi bu ñooñu accès fekk aaya ji wàcc ñu war leen ko ñooñu daañu xam laay ji li ko tax a jóg ak mun doxee yëpp wala juif bi nga xam ne dañ ko daan jéem a kole di ko laaj ay laaj yoo xam ne ku dul yonent doo ko xam alxuraan ñëw ne ko tontu lii wala ndigal loo xam ne dañoo dem yonente bi ak saaba yi dañoo dem ba toll ci diggante boo xam ne xaw nañu jaaxle xamuñu nan la ñu jëfee ñu werante ku ci nekk indi sa xalaat yonente bi diisoon ñoom ku ci nekk jox ko sa xalaat te xamul ban la ci jàpp aaya ji ñëw wane ne ñu ngeen war a def bu ko defee la nga xam ne noonu la aaya ji def mooy ndigalal yàlla buñ ca doxee daañu xam ne moo gën a jub leneen lépp lu dul woon noonu ma euh, euh, li koy suuxat di ko dëgëral ci koo xam ne fekkewul jamono yooyu waxoon naa bokk na ci xalaat tafakkur mooy méditation di xalam say mbir mbiri àllaaxira ti su bàmmeel maanaam sukuraat jéggi siraat bisu pang ba fa jaam ñi daje balaa si ñuy peese gisi jaam ñi gannaaw bu ñu ci jógee kenn ku nekk sa kër nan la sa di demee te doomu aadama bi ci lëndëm googu lu dul leeruk ngëmam du ko gindi seen leer yi ëppante ñii seen leer daj dëkk bi leer nañ di dox mel ni kuy dox ci bëccëg ñooñu mooy yonent yi ñii seen leer toj tol ne montagne ñii seen leer mel ne làmp ñii seen leer bu wees seen baaraam yi tànk nga xam ne loolu rek moo leen di gindi mu ne yonente yi nga xam ne ñoom seen leer àggoon na ci loolu ñi nga xam ne àndoon nañu ñoom te roy leen ci seen jëf te topp leen itam dañuy doon ci ñoom leer yoo xam ne du àgg ci leer yi yi waaye leer màgg lay doon leer yooyu daf leen di guddee ci adduna ak ci alaxira du nekk ba ñu dem alaxira waaye fii ci adduna dana leen wax naa sànq ne ñi nga xam ne dañoo takkoo woon ak yonent bi dem nañu ba fu ñu toog bu ñu wéetee dañuy mel ne ñu ngi jànloog aras ak kursi yi jànloog janloog àjjana ak safara mooy ñooy ñu àgg ci daraja yi li ñuy wax yaqin moo di wóolu mooy ngëm goo xam ne dara mënatu koo féete kaw ni boroom bu ñëwoon ëllëg la saadi taxaw du tax fa xolam nekkoon yokk lu néew néew du taxit lam daan jëfe mu yokk ko lu néew néew du taxit lam daan wattandiku mu gën koo wattandiku mukk nga xam ne mooy dayoo wóolute moom la ñu tuddee al yaqin xam ne yaqin googu bari na ñu ci àggoon ci saxaaba yi waaye ñoom it ak li ñu baax baax ay daraja la ñu woon ñu rawante daraja yooyu ñu rawante feeñoon ne ci seeni jëf ñoom ci seen bopp am na xare bu ñu doon dem muy xare Tabuk xare bi gënoon a metti ci jamonoy ñàkk jamonoy xiif jamonoy mar bërëb bi ñu jëm sori trop ba tiital xol yu bari ba am ñoo xam ne ñi rocc ko nañu bañ a dem te seenu ngëm kat dara sikk sàkk amu ci bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne nañu waajal xare bi sidna abubakar radiallahu anhu ba mu indee ni mu am te ko su kanam yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo gis mu bari mu ne ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla ak yonent bi laa fa bàyyi xam ne kon bàyyiwu fa dara li mu amoon lépp la fab def ko ci yoonu yàlla ngir wóonu gi mu ne yàlla mooy dundal mooy rey te mooy wërsëgal te lépp lu mu def daañu ko ko fay ëllëg te ñu ngi toll ci jamono bu tiis boo xam ne diine ak yonent bi ak jullit ñi toll nañ ci diggante boo xam ne soxla nañu ci lañ gën a soxlaa ndimbal ci lañ gën a aajowoo ndimbal Abubakar Siddiq bu mu duggee këram lu mu fa bëgg a bàyyi rek seet ne lii bu ko jëriñoo tey ci adduna yi bu ko dawaloon ci yoonu yàlla ci bis bii tey bu ëllëgee dana ko jëriñ lu ëpp loola le mu fab loola bu ko fa néeg a bàyyi ba bale këram ba mu set lépp mu def ko ci yoonu yàlla sidna Umar radiyallahu anhu nit ku yew woon la ku yàlla sopp la woon dëgg la te sopp Muhammad sallallahu la wasallam te gëm diine nit ku àggoon ci yàqin la ci wóolute mu def ci ijtihaadam ne alalam ji ko yàlla jox daf ko war a xaaj ci digg ba ndax yàlla soxla na tey yonent bi soxla na te dañoo war a waajal lëm bi mu xaaj ko ci digg ba bu mu indee alalam lu muy def ci ñii waajal xare bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko loo fa bàyyi mu ne lu mel nii lu toll nii seen daraja ci yàlla mu ngi demee ni seen jëf yi demee moom Abu ak ak Umar ñooñu yëgatuñu woon xiif yëgatuñu mar seetatuñu ëllëg lan la ñuy denc ngir bu ëllëgee bu nu soxlaa nangam mën koo jariñoo ndax iman maanaam ngëm yàlla dafa lekk seen xol ba mu jeex takk ba seen bàyyeetu leen bàyyeelatu leen xalaat boo xam ne daañu ko xalaat pour ëllëg naka noonu ñu bari ci saxaaba yi meloon nañu noonu bu ñu seetee jaar-jaar yi ñu jaar ak tolluwaay yi ñu toll nga xam ne képp ku agul ci yàqin boo fa tolloo dara mën naa xew ci yow loo xam ne lii daañu mën a seet ëllëg mais fii kat jamono yi ñuy xare ji Badar ñetti téeméeri nit rek dem di daje ji junni nit ñoo xam ne waajal nañu xare ba nañ ko war a waajale te li leen yëkkati du dara lu dul raafal leen ñoom ñooñu ba kenn bañ a def ci ñoom ñoom ñu ñett téeméer nga xam ne kon kenn ku ci nekk ñetti nit nga war a xeexal wóolu yàlla ak jaay seen bopp jaay seen adduna jënde ko alaxira tax leen ñu sóobu ci loolu le nga xam ne kenn ku ci dee shahid nga nga xam ne daraje shahid ñoom ñëpp dañ koy xemmem kenn ku ci nekk moom ngay wut shahid mooy lan shahid mooy nit koo xam ne dafa dem topp ci yonent bi di xare ngir yëkkati baatu yàlla ba ñu rey ko kooku dañ ne amul laaj ko bàmmeel te dara jëm yomal xiyaam fa kanam yàlla dara réeréer la amul lu ñuy seetati ci lu bon ndax nit ki ba nga xamee ne génn na këram te fas yéenee dee ngir yàlla jaay na léppam fasatul yéenee dellu si ñàkk a dellu si googu mu fas yéenee nga xam ne dara ci adduna lu nit di bëgg desatul ci seen xol amatul dara lu ñuy fàttaliku di ko bëgg wala mu di leen tax a dellu wala ñu di ko xalaat noonu seen xol sete ci léppi adduna noonu lañ sete ci léppi bàkkaar ba nga xam ne daanaka aajuwoowuñu ku ku leen jumboo wala ku leen sang wala ku leen dara nga xam ne daraja jooju ñu am te xam ne cheikh boobu moo leen ko moo leen ko jox kenn ku ci nekk yaa ngi ñaan sa borom boo demee am ko nga xam ne ñu gën a bari ci ñoom dañoo fasante yàlla seen borom ne ko jaay nañu leen seen dund ba fu ñu mën a yem ba nga xam ne ñu yàgg-yàgg dootuñu bu ñu dellu seetee yàllaa leen delloo si waaye bi béréb boo xam ne bii ragal nañu ne ku fa àgg danga dee ñu di ko teet ngir bañ a dee Abu Bakar nag ëpp na leen ci loolu ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne law wuzina imaanu abi bakrin bi imaani ahli lardi la rajaahum bu fekkonte ne ngëmuk Abu Bakar dañ ko teg ci palaato balaa teg ngëmuk waa suuf ñëpp ci beneen plateau ngëmuk Abu Bakar dana leen ëpp doole ndax Abu Bakar moom dem na ba xalaat gi muy xalaat yàlla mag gi yàlla màgg ci xolam ak li nekk ci kanamam ak xàq yàlla ji nga xam ne sàkku nañ ko mu sàmmoonteeg moom na mu waree te mu xam ne mënu ko tegoon na ko tiis xolam ba resam wii ci bopp mel na dañ ko wàjj ba nga xam ne su waxee xeetu res wu ñu wàjj mooy xeeñ nga xam ne dafa gëm ba li nga xam ne moom lañuy ñuy wax xol bu sooy xolam dafa sooy dem na ba nga xam ne gëmatuñ ne dara dana waral dara gisatul dara lu dul àtte yàlla gisatul ne lekk dana tax a suur gisatul ne naan dana tax a màndi gisatul dara lu dul coobareel yàlla rek kon ci moom coobareel yàlla mooy tax nit màndi mooy tax nit regg mooy reyit ku dee waaye du sabab yi nga xam ne moo nekk ci àdduna gisatu ko woon lu bari ci saxaaba yi bi sallallahu alayhi wasallam mas na ne seen ñetti fan jenn waaye dana ros si ci yéen waa joo xam ne ku bëgg xam ku bëgg a gis ku bokk ci waa ajana na ko xool ba ñu ñetti fan ñu toog ca bërëb ba waa ajana tëll ñépp xool ko mu di ko xool aw meloom di seeni melo rek mel ni ñu mel am ku ñëw Abdullah ibnu Amr ibnu al-As ci dañ ko faam ne waa ji daal danaa nemmi ko ba xam lan la wuuteeg mun ak lan la ñu gënee ba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg tëgg yi di wane ne it ne moom mu ngi dund ci àdduna te leer na ne waa ajana ba mu demee wan ko ne daal dafa jubóo di ko waajuram ba mënul dellu ca kër gëj kooka yaatal ko mu am moom ñetti fan waaye bi mu seetee gisul ne genn jaabu yàlla gu muy def am na goo xam ne bii ñoom defuñu ko bi nga xamee ne nag ñetti fan yi mat na ba muy dellu xamal ko ne man kat dara taxul woon ñëw bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ci yow dara mu bëggoon a seet nag ana lan ngay jëfee te man gisuma lenn looy jëfee lu wuteet li muy jëfee waa ji wax ko ne ko waaw man de li ngeen def rek laay def waaye nag jullit bu mu yéene naa ko li ma yéene sama bopp ne teg na ca ne ko adduna bépp buñ ma ko joxoon ñu ñëw jële ko ci sama loxo du tax mun a xarima bu fekkoon ne jox nañ ma adduna yëpp bàyyee ma ko yëpp du ma tax bët danaa fanaan ci sama kaw lal te sama xol mere benn jullit wala bañ kenn bu ci nekk ba sama ba ba mu jeex Abdullah ibn Amr ibn al-As ne ko waaw kay loolu mooy li nga mën te mu mënuñu ko man day danaa julli di naafila guddi jëpp ba mu jeex damay fanaane naafila bëccëg it damay fanaan damay yendoo woor waaye nag buñ ma mayoon rek am xar ma bëcc te buñ ko nangoo ci man it mu naqari ma yow daal te yàlla gënal na la ci sunu kaw ngëneel loo xam ne lu dure dure dure la loolu bu mu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njàngaleem la doon yeete ne li leen alquran waxoon ci biñ jógee ci yomal taqal jamaani suñu borom jëf na li mu jëf ngir yéen jullit ne lépp mu leen dal bu leen ci amul naqar lépp lu ngeen ñàkk bu mu leen naqari lu ngeen am ci xéewalu adduna bi bu leen ci dëkk noonu la jullit war mel li kay laa tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima ateekum jullit bi xolam dafa war a toll foo xam ne yàlla moo koy fees dell ba dootu gisati leneen lu dul yàlla lu mën a am ci àdduna am gi ak ñàkk gi ñoo war a yem ci moom képp bu ko defee day nekk gor foo xam ne yàlla dong dong koy moom leneen lu dul yàlla dutu ko moom xolam dara du ci am wàll lu dul yàlla jullit bi bu melee noonu ak métier mu mën a métier woo dana ko jëfee te dana ko sellal na mu ware te dana ci am njëriñal addunaam li nga xam ne moo tax muy sabab lu dana ci amit yool boo xam ne dana toll ne bu doon jaamu yàlla te bañ a noppalu bokk li nga xam ne mooy wane ne euh, ngëm jaam dëgër na bari tuub bokk na ci sopp yàlla ak sopp yonent bi soppit képp nit ku baax soppit jullit ñëpp ndax yonent sa sallallahu alayhi wasallam nee na al mar'u ma'a man ahabba jaam bu nekk yaag ña nga sopp yéene ànd ëllëg sopp yàlla nag ci xol waxtu woo xamee ne fees na xol ba leneen xajatu ca suñu boroom day muri xol bi kiiraay yi dox diggante moom digganteem ak moom bu kiiraay yooyu dañee yàlla rek mooy fees xol bi suñu boroom dana dindi moomeelu lu mu doon ci xolub nit kooku ba mu def moomeelu yàlla bu ko defee jàkkaarloo gi muy jàkkaarloo màggu yàlla ak taaru piiñ ba dana tax dootu bëgg lenn ci àdduna ndax piiñ suñu borom bi nga xam ne xel mënu la xalaat lu rafet noonu te itam jeneer mënu la jeneer ba nit lu ko jege am na jaam ñoo xam ne suñu borom defal na leen ñu di ko gis ndax xam ngeen ne su borom li mu bind te mu rafet dara ñëw ci ci adduna ñii nga xam ne moo nekk malakoot la ca gën a néew gën a ñaaw waa adduna mënuñu ko xalaat di woon sidina jibril alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko daan gis toog na jëmmi jamono boo xam ne gisatu ko xamatul lu muy def ndax namm ko ndax rafetaay bi nga xam ne sidina jibril rafet na ko nga xam ne waxtu buy wax ak moom neexaayu baatam ak wax ji muy wax day tax bu ko keneen déggoon dootu bëggati dara ci àdduna dootu xamante li muy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci moom dafa nooñi bu baax ne ko ay Jibril yow daal la a ko xam mënatuma woon a toog te gisuma la mu ne ko man de maa la rawoon maa la gënoon a bi nga xam te suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne ñetti yoon la ma sa gis Sidna Jibril ci melo wa ko yàlla bindee dëgg dëgg dëgg nga xam ne kon du ñëw ci moom dana am melo woo xam ne moom lay dikkee ngir mu mën koo dékku mën koo gis man a wax ak moom waaye melo wa nga xam ne moom la meloo dëgg nga xam ne noonu lañ ko bindee bu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko gisee dafa xëm ndax attanu ko te Sidna Jibril kat am na yeneen i jaam yoo xam ne moom it bu leen gisoon noonu lay xëmee seey te ñoom ñëpp ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ leen bind ndax buñ seet sirru Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoom kenn koo xam ne kii attan na ka nga xam ne moo gën a xejj ci jaam ñi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko muri leen kiiraay yi dox diggante jaam ñi ak daraja Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu des juróom-ñaar fukki junniy kiiraay benn bu mu ci jógee day day seey ni nga xam ne karaw buñ sànni ci safara noonu lay seeyee sopp boobu nga xam ne waa ji nga xam ne suñu borom dindi ne kiiraayi xolam digganteem ak boromam noonu lay soppe suñu borom ba nelaw bëtu ko am nelawam day néew lekkam dana néew ndax di ko xalaat waa adduna bi bu ñu waxee wax ji day naqari si moom ba muy bëgg a wàccu ku mu ci xool da ñaaw ñaawaay boo xam ne dootu la bëgg a gis waaye dana nekk ci digal yàlla mu mel ni nga xam ne noonu la yeneen jaam yi ci def mel ba nga xam ne day mën a dëkk ak jaam ñi ñoom ci lépp bokk ak ñoom ay jëf bokk ak ñoom ay melo te du wute ñoom ci dara nga xam ne loolu moo di meloom moo di matam loolu nga xam ne moo di al mukashafa mooy wuri kiiraay kiiraayal malakóot nga xam ne bu ko suñu borom defalee ab jaam daf koy dal di jagleel yërmande ngërëmam te ngërëmam bu ko amee dootu amati benn coono ci adduna bi ci àllaaxira bokk na ci ngëm alqiyamul maanawiya nit ki gëm ko te min xaysu irtibaatuha bi qudratillahi wa bi jalaalillah ila min haythu zawaat jikko yu rafet bokk na ci ngëm jikko yu rafet yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu toll daf ko daan jàngale te moom la melowoo woon itam naka noonu bëgg say wajur bëgg say mbokk bëgg sa mbokk jullit bëgg say dëkkandoo bëgg sa réew mépp ndax xàq yi nga xam ne moom la la yàlla teg ci sa diggante ñoom loolu bëgg gi nga koy bëgg daf lay gën a jege yàlla ndax bu fekkee ne da nga ko bëgg te yàlla dong nga tax da seet ne lu nekk xàq yàllaa nga seet lépp loo gis ci adduna muy mbindeef muy dund muy lu sax muy lu ñu teg si bërëb yàlla mi ko sàkk dafa xam xàq te dafa am anam goo xam ne gi loola yeewu ne ko ci yàlla yeewu goo xam ne yeewu bu dëgër la amit anam goo xam ne daf koo yeewu ci mbindeef mi yow kon mbindeef mi wala jëmm ji ngay jan lool boo da war a seet ne am na anam gu mu yeewoo ci yàlla te anam googa war nga koo sàmmoo te mooy aji bind ji lu nekk kon nga sàmm ca xàq ki ko bindoon loolu mooy ormal suñu borom dëgg dëggi ormal loolu bokk na ci rafetu jikkoo nga wane ko ci say dëkkaale jëflante ñoom jëflante bu rafet kenn ku ci nekk loo xam ci moom lu koy ci lu koy jëriñ nga wax ko ko lépp loo xam ci moom ci lu koy lor nga xamal ko ko fépp foo ko mënee dimbali nga dimbali ko bépp boo xamee ne bii mën nga koo defal lu koy jëriñ nga def ko te yàlla rek tax bu ko defee nga xam ne kon yaa ngi yóbbulu ci sa jëfi adduna yëpp waxtu woo lekkee waxtu woo naanee waxtu woo seetee nit waxtaanee feeg yéene ji nga xam ne moom la la lislaam sant nga am ko ca ci ca ca jëf joojale yaa ngi jaamu yàlla bi nga bi nga tàmbalee xam ne ba bi nga fiy jógee kon sa jëf yi nga jëf yëpp di ci nekk ak jaamu yàlla la te yaay soog a jox orma yi ci bi mbindeef yi xaqi orma ja dëgg-dëgg yaa ngi soog a sàmmonteeg moom ndax adduna lépp lu fi nekk rek yàlla indiwu ko fi neen ndax yàlla namul addina rab wala mu raaf dafa bëgg adduna ji nekk fi ba waxtu wa nga xamee ne ci la ko fi jëlee bu booba jotee bu soog ko fi jëlee kon lépp loo xam ne liggéey nga ko ci ñuy defar àdduna te nga xam ne bëgg adduna wala bëgg sa njëriñal adduna taxul lu dul da ngaa seet xaq yàlla loola lee ak jaamu yàlla la moo tax ñu ne amal li dunyaaka ka annaka laa tamutu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gadan na nga jëfal sa adduna ba mel ne doo dee mukk te nga jëfal sa alaxira ba xam ne buñ ne la woon ëllëg ngay na nga jëfe noonu ngay jëfe ndax jëf bi ngay jëfee adduna du caa da ngay jëfal sa bopp rek boo doon jëf loo xam ne lii doo ko fekkee njëriñ li it koy nga koy jëf ngir yéene jullit ñi ak jaami yàlla yi ñu jëriñoo ko loolu moo tax ñu xaraamal itam yàq yonente bi sa alayhi wa sallam dafa fekk jaam boo xam ne ci saxaaba yi dafa doon jàpp muy sotti ndox mu bari mu ne ko yaa ngi yàq de mu ne ko ah ndax yàq ngi ci mu ne ko ah kay fekkoon ne dangaa nekk ci booru géej gi di as géej gi di jàppit yàq tere nañ ko maanaam nga tànk ndox mu ëpp tere nañ ko ndax loolu lépp daf fekk nga bañ a ormaal lan tere bañ a sàmm orme ci gund nii ci li mu bind ndax boo sàmmoonteeg ormaam danga nga wormaal li nga xam ne moom ko gund ndax wormaal ko moom ci jëmmam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn ci yéen bu yoroon car caru garab bu war jëmbat te saa tàmbalee taxaw itam bu ko mënee jëmbat balay saa di taxaw na fexe ba jëmbat ko jëmbat ko kon wane na ne nit ki feeg mu ngi ci àdduna dafa war a defar àdduna defar àdduna nag ngir xira àdduna nag taxul àdduna kese taxul ñu war a defar àdduna ndax àdduna ci boppam yàlla ni mu ko gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ni àdduna doyadee fi yàlla mu mel ne gàtt bu medd ba ñu sànni ko nee na bañ ko peeseeg laafum yoo laafum yoo ma dafa wat àdduna bu fekkonte ne àdduna tolloo naag laafum yoo ci diisaay ca yàlla kon benn yéefar kenn ku wedd yàlla du ci góo mos mukk benn góox gannaaw nag adduna noonu la ko yàlla woyofale waaye lim ci nam mu di jaam ñi nekk bu ba mu fiy jëlee nga xam ne keroog ba mu sàkkee adduna taxawal fi doomu aadama man nanu ne aadama mi nga xam ne ci mi nga xam ne noonu la ñuy waxe ci diine moo di nit fi njëkk yàlla njëkk a bind wala maaw yi wax nañ coow yu bari ci aadama ndax fekkoon na ay nit yu bari nekk fi wala moom moo fi njëkk a nekk ñun ñëpp fekkoon ndax ay nit lañ leen mën a tuddi dëgg-dëgg wala du ñu ay nit wala bu ñu dee ay nit ndax nit ñu yeeyoo turu nit lañu wala yeeyoowuñ ko li mën a am ak lu mu ci mënti doon daje nañ ci ne nit ki nga xam ne ci moom la soqi koo nit ñii ci àdduna ba léegi kooko la ñu tuddee aadama te kooko yonent la bu ñu yónni woon ci kaw suuf bi nga xamee ne suñu borom xamal ne malaayika yi ne leen danaa sàkk ku ma wuutu ci kaw suuf ñu xam ne doomu aadama lay doon ndax ay malaayika ñoo daan nekkal yàlla ci kaw suuf ak yeneen i mbindeef yoo xam ne du ñuy doom aadama bi nga xamee ne nag wane na ne ki nga xam ne moo tax ñu sàkk béréb bi te mu te ma di ko fi indi malaayika xam ñu fi njëkkoon nekk li ñu daan jëfee lépp ñu xam ne bu doom aadama ñi bu aadama ñëwee itam moom ak i sëtam loola la ñuy jëfee ñu ne ko yàlla yow kat fii boo fi indee koo xam ne kii daf fii moy di fi tuur deret di fi génne sobe du yell ñun ñi nga xam ne duñu lekk duñu naan sàbbal rek ak jaamu la la ñuy dëkkee ñun nga fi war a teg suñu borom xamal leen ne leen suuf si secret laa ko fi indee te dugal naa ci biiram loo xam ne aadama ak i sëtam rek ñoo mën a dindi secret aadama ak i rek ñoo mën a wane xikam bi nga xam ne moo tax ma bind suuf nga xam ne suuf dafa dal di mel ne kon bato boo xam ne dafa war a tukkee fii jëm bërëb sàngam ñu prévoir ci biir bato bi nit ñi ci nekk ak ñi fiy juddu ci diggante boobu may ko foofa ak li ñuy aajowoo ci ay yére tawat yi nga xam ne dana fi xew buñ tolloo bërëb sàngam ak la koy faj ak bu ñu baree la leen di dundal ak yi fiy sokk yëpp la nga xam ne moom lañ ca war a jëriñoo ak nañ ko war a jëfee yëpp ba boobu mooy àgg fa mu jëm tax ñu daan wattandiku koo xam ne àjjana àddina ju neex ma nga fa ju ñu mënu la lijjanti ñu dabak seen diine ngir mucc loolu tax sëñ Tuubaa ne wa man yusharikum unaasi izzin yakun sharikuhum gadan fi zillin képp ku bokk ñoom seen teraanga gi fii tey ëllëg da nga bokk ñoom seen tere seen seen toroxte ga yowm alqiyaama te adduna kat li muy naqari naqari tàqalikoog moomu si gën a naqari tàqalikoog adduna gannaaw yi ma misaaloon nga gis ne nit bu fekkee ni mu dund ci adduna li mu am lépp fi la ko bàyyi li am lépp ci adduna la ko denc muy ndeyam muy baayam muy alalam muy këram muy fasam muy soxnaam muy sàqam muy léppam lim am waxtu woo xamee ne ñu ngi koy jëlee ci moom dana ko naqari ruux luy gestu la maanaam nafsul bahimiya laa jublu luy gestu la ci waxtu wuy génn àdduna buy génn àdduna ya ki bëggoon ya mu bëggoon daan ko xalaat day dellu si ya ko metti woon jaar-jaareem jaaroon day mel ni film bu jaaraat ci yuuram ngeen yuur moom du taxaw mukk feeg nit kee ngi dund bu dee nelaw mu ngi wëndeelu moom waxtu woo xamee ne toll na ci dee yooyu yëpp mooy dellu si waat ñi nga xamee ne noonu la ruu gi di gestoo bër bi nga xam ne moom la gënoon a bëgg ndax nit ku bëgg adduna la daawul xalaat yàlla bëggul dara ci yàlla adduna rek la bëgg ñi nga xamee ne ku ñu fabal benn dërëm ku ñu fabal ñetti dërëm a ko ëpp naqar fi ñu sabal ñetti dërëm fi ñu sabal fukki dërëm ko ëpp naqar sabal fukki dërëm fi sabal junne ko ëpp naqar fi la gënoon a bari la gën la sop adduna bu génnee adduna noonu la room di ëppee tiis ki gënoon a la ci adduna ki gënoon a ñàkk ñàkk aju ak xolam gën a néew ay coono dama dama amul dara lu mu fekk mu sotti ajjana rek la lépp sottee waaye adduna amul dara lu fi doomu aadama fekk mu sotti kon doomu aadama moo war a sottal lépp lu mu fi jëriñoo ci wàllu kon doomu aadama ni muy jëfe ci adduna ci wàllu bu mu war jox adduna addunaam ak wàll wi war a jox boppam maanaam wàll wi war a jox àllaxiraam waxoon naa ne nit ki mën na jëfee ci yéeneem ak ci xamam jëfin woo xam ne li muy jëf te mu di ko jëriñ ci àdduna ak jaamu yàlla lay nekk ci kaw yéeneem kaw ni muy ci àdduna anam ga yeewoo ci suñ borom ba takku ca ak anam gi takkoo ci moom na muy ormaale aji bind gi nga xam ne moo bind loolu ak yéene ji muy am ci sellal ci jëriñ mbindeef yi ak ni yéenéem di lambe mboolem képp koo xam ne kii kuy wax laa ilaha illallah nga ci lay àgg ci melaw woo xam ne lépp lum mu jëf rek jaamu yàlla lay doon ba ci ay melawam ba ci ak yeewoom léppam jaamu yàlla lay doon lu tax suñu boroom deful dara ci àdduna mu sotti ni mu bindee àdduna ni mu waxee ne juróom benni fan na asamaan yi ak suuf ci juróom benni fan te yàlla nee na innama amruhu ida arada shay'an an la lahu kun fayakun gannaaw yàlla bu namee dara nekk daf naan kun rek loola nekk ci fan yi ci gannaaw barkaati démb ci benn laaj bu ñu laajoon ci conférence boobu woon ci ndar ci kun diggante kaaf gen nuun bi ak luy maanaam ak na mu demee ak luy diggaaleem ak borom ak doomu aadama waaye ci li ma tax wane ne rek suñ borom lépp lu mu nam day daal di daf koy daal di amal ca nam ko neexe rek lan moo tax kon bu mu bind adduna diggante suuf ak asamaan yi biddiw yi yëpp mu ne juróom-benni fan fan leer na leen ni du ay fan yi muy wàññi waaye nag ay aswaar la maanaam ay étape loolu lépp day tegtal ne adduna dafa sàkk ay sabab ak aada yu mu jëf leen teeg doomu aadama ba nga xam ne lépp lu am balay sotti am na fu mu war a jaar ak sabab lu ak sàkk bu ca war te tëb àgg dafay toll ci ay tolluwaay ba àgg ñi nga xamee ne gir garab bi mu toll ci di ënk ba génn toll ci di màgg ba fag màggeem yem mu toll ci di tóor tóor ba di meññ ba ba muy màggat tolluwaay yooyu yëpp ba ba muy dee ba ba muy da muy daanu yu ñëpp di ay tolluwaay naka noonu nit ki bu juddoo di nàmp di raam ba ba muy toll ci di jóg dox ba ba muy mag am kàttan ba bu muy kàttanam di wàññiku ba ba muy néew doole ba ba muy dee mu wane ne adduna lépp lu fi nekk doomu aadama daf ci am wàll wu war a jëfe te it daf ko jaarale ci yoon woo xam ne dafa am tàmbali am jaar-jaar ba ba egg loolu moom la joxe ne bind na asamaan ak suuf yi lépp ci juróom-benni fan noppalu ñaari fan yi doomu aadama lay cox moom lay misaal wan ko ne bu dikkee ci àdduna dafa war a sabab lu léppam yàlla soog ko cay fekk waaye yàlla lottu lottu di bind dara di ci am nangami fan noonu itam gannaaw so takkul mu soppi ci àdduna li ma waxoon ne roo yi biñ tàbbee ci yaram yi dañoo tawat noonu la jëfe xol nit ñi noonu lañ melal ci ak wute am na yenn ci jëmm yoo xam ne aaju woowuñu yar maanaam soxlawuñu yar soxlawuñu jàngal mooy yonent yi ak ñeneen ñoo xam ne wuur nañ leen ak lépp fa ñu ñoom mooy ñi nga xam ne seen ruu tuuti la tawat yenn ci awliya yi Cheikh Abdou Qadir Jilani ci alxunya misaale na ko ku mel ne Uwaysul Qarani ak ku mel ne Seydina Xadr ñu di ñooñu da yar yar bi nag mu ngi tàmbale moo muy tàmbalee moo jiitu jàng yar moo jiitu jàng Abdullah ibnu Abbas booba xale tuuti la amagul juróom benn at amagul juróomi at di lekk fu nekk mu teg fa loxoom tibb yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko kul mimma yali ko téye loxoom ñu xam ne loolu ta'dib la maanaam yar kon tàmbali na xaat te xel matagul jàng sax jotagul kon yar moo jiitu loolu lépp yar nag neeñu ci la texe nit ci aju ak texee dim ci lay aju kon yar ñi nga xam ne ñooy njëkk a gaxandu doomu aadama bi ñëwee adduna mooy ndey ak baay ak ñi mu dëkkal ñoo ci jiit ñoom la seen xaq seen dawaar seen war-war ñoo ñoo ñoo njëkk taxaw seen war-war a njëkk a taxaw loolu dana wane ne responsabilité wajur ci doomam lu rëy a ndax dana layoo moom ëllëg lu tax ba ma juddoo tuddi woo ma tur l'islam wu rafet dana yaro layoog moom lu tax yaruloo ma yaru l'islam bu mat dana layoog moom lu tax jaarum tegaloo ma tegaloo ma ci yoonu jub dana layoog moom lu tax ba ma matee denc denceloo ma dana layoog moom layo yu bari yoo xam ne yii lu mu ci sàggan kooka dana ko yey te bu keroogee baale amatul kenn bu baal sa morom dara bis boobu nga xam ne ku seen sa doom daw ku seen sa baay daw loolu moo nu ne bale amul te keroog fu sa morom ameel xàq da ko jàpp ci moom kon bu bëggee ay responsabilité mat ci wajuram wala ci doomam na taxaw ci yar ko ndax mujtama bi nu nekk maanaam société bi bu ku nekk yaroon sa doom na ko waroon a yare mu yaroo na mu war a yaroo coono yu bari du am te kon kenn ku yaroo di ko du am mu ngi tàmbalee ci ndey ndey bu melee na mu war mel dana jaarale doomam ca waxtu wa nga xamee ne moom dong ak moom kenn du ko ca fekk dana ko jaarale fu mu ko war a jaarale ba cërub baay ak si ba cërub ki koy yar ak si waaye su fekkee ne xale yi dañ leen a bàyyi ak mbedd mi rek bàyyi leen ak seen bopp ñoom ñooy yar seen bopp waaw tey yar gi mu koy yar war na jëmbat ci xolam ndax dañu wax ne jàngal xaleel mooy jàngal ko ci waxtu ndawam mu mel ne doj nga gas ca mbind du raf mukk jàngal mag nag mu mel ne bind ci ndox ndox ku ca bind du feeñ day far booy bàyyi bu sa baaraam bi lu mu romb rek mu daal di dajalawaat mel na meloon mu ne walaw falaqu qalbal muallimi fi sibaa la ulfiya fihi al ilmu ka naqshi si xajar bu fekkoon ne xaroon nañu xolu ku ñu xamal ca ba muy ndaw daanu gis ne xam-xam bañ ko joxoon mu mel ne lu ñu gas ci mbubb duma xam dañ koo bind ci kaw doj maanaam gas ko ca war na jumbat kon ci xolam ragal yàlla jëmbat ci xolam bëgg dëgg bëgg njub ndax nee ñu keroog yomal xiyaama la njëkk a teg ci balance bi mooy jikko kon bu jikko rafetee dana diis diisaay boo xam ne dana mën a tax yeneen jëf yi ñëw it du amati poids bu fekkee ne dafa féewoo ak moom war nañu ko xamal toroxlu bañu yëkkati boppam ngir dindi rëy ci xolam bu ko defee ragal yàlla dina dugg ndax xam-xam ak jëf ak xalaat mooy indi ragal dana xëcc ragal yàlla suñu borom nee na alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i maa'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifun alwanuha wa min al-jibali jududun biyudun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu suud wa min an-nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuha kadhalika innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama inna allaha azizun ghafur wane ne ni ma daan waxee di dellu ne dara ci àdduna neenu lu fi ñëw am na secret bu waral suñu borom bari na ñu indi ci adduna yoo xam ne dafa bëgg jaam ñi waaru ci muy wane ne am na waar yoo xam ne borom xam-xam rek ko mën a dindi ba génne ko ci kaw jëf yi doom suñu borom jëf ci suuf mu wane ne xanaa gisu leen ne suñu borom wàcce na ndox ci asamaan sotti ko ci suuf génne ci biir suuf gàncax génn ci garab génn ci ay meññet yoo xam ne yu wuute wuute la yi meññet neex yi naqari yi wex yi saful dara sàkk ay montagne yi sax ci kaw suuf montagne yi buñ ko gasee li nekk ci biir wuute am ci ay garabi reseñ yoo xam ne doom yu weex tàll lay génne yii doom yu ñuul kukk sàkk ci dund ak yi juri juri yi yoo xam ne seeni jëmm day wuute biir ak bitti seeni jikko wuute mu ne ña ragal yàlla dëgg dëgg ragal ci jaamam ñi mooy ña ko xam kon dafa wane ne doomu aadama dafa war def tafakkur maanaam xalaat lépp lu yàlla bind def cee war di set di ca seetantal xikam bi nekk ci biir di ca waaru ndax nee ñu ngëm gi nga xam ne dafa dikk te ci gannaaw méditation la ñëw moo gër a dëgër ngëm gi nga xam ne dafa ñëw bari hatan nee ñu yonte yàlla ibrahima alayhi salaatu wasalaam am na ak wóolute te booba kenn yónneegu ko ndax bi alquran di wax wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin falamma janna alayhi lil wara ko ko man qala hadha min fadl qala hadha rabbi bi nga xamee ne ibrahima ci jamono ji mu juddoo dañu daan rey liir yi ngir xew-xew ba mu juddoo ñu denc ko ci xun ba mu xàmmee tuuti ba mu njëkkee génn guddi la génn guddi wi la xool moom la njëkk ji ci asamaan ne lii de mooy sans borom guddi ba mu gis mu gën a mu ne kii de mooy sans borom ci leeru xolu yonent xam na ne am na ko ko moom am na ku ko sàkk ci leeru xolu yonent xam na ne ci ne li ko sàkk lu leer la war a doon te rafet lu féete kaw lépp la ci gisam ci àdduna li ci gën a kawe mooy biddiw bi nga xam ne toog na di xool biddiw bi di ko seetantal ba biddiw bi suux mu ne ah man daal sopp ma yàlla ji suux kii du sans borom weeru feq mu ne waaw kañ kii kon mooy sans borom weeru feq mu waxee na mu waxee woon jant bi fenk mu ne waaw kay cee ëpp cee gën a leer kii mooy sama borom jant bi so mu ne ah man daal ki ma sàkk te moom ma bu ma jumbiwul danaa réer kon ci xalaat yooyu nga xam ne moom la Ibrahima xalaate ba xam ne am na lu ko bind ba jox ko ay meloy mat la ko bind ba séenu ko fam ko séenu nga xam ne moo tax suñu borom ne wala xadaate naa Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimina Ibrahima jox nan ko am jub bu njëkk maanaam ci waxtu ndawam te xam nanu fa mu jaar fan ko jaarale ci kaw ñéet di xalaat mbiri suñu borom ba xam suñu borom xamee ci suñu borom ci setantal ulama yi dañoo wute ci ne ndax suñu borom mën nañ koo xam ci loo xam ne jaare wuñ ko ci li mu bind wala mën nañ koo xam mënuñu koo xam mukk lu dul jaare ko ci ñun bind am ci akabirul ulama ci awliya yi ñaar ñoo xam ne wute nañ ci gis-gis limaamul xasaali yi nee na suñu borom mën nañ koo xam te bañ koo jaare ci mbindeef yi muhiddin ibnu arabi yi nee na suñu borom kenn mënu koo xam te jaare woo ko ci mbindeef yi xam nañ ne muhiddin ibnu arabi ku bari xam-xam la ndax nee na te ku suñu borom joxoon ay secret la ndax nee na wali yi nga xam ne suñu borom daf leen jox ci xam yàlla ci yëg màggam bi loo xam ne dana tax ñu toog ba sooy mu ne suñu borom dabaatal leen ñu dellu dundaat mu ne ñooñu liñ ci amee de ilaahi du tabii man mi nga xam ne li ma ci yàlla jox tabii la bu ci sompoon lu tuuti teg ko ci asamaan yi juróom-ñaar dana ruy te man yëngaluma sax wa Muhyiddin Ibn Arabi moomu moo ne suñu borom kenn mënu koo xam te jaari nga ko ci lim bind ci xalam ak settantal ak xalaat maanaam méditation xojab lislaam limaamul Xasaali yi ne suñu borom mën nañ koo xam te duñ jaare ci mbindeef yi kenn ku ci nekk da am misaal sa yoon sa yoon wa nga jaar limaamul Xasaali xam ngeen dafa sikkoon lu jiitu Descartes moom mooy jiitu Descartes ay siècle sikki sàkk bi mu sikki woon itam dafa ne woon gis na euh, doomi nasaraan yi buñ juddoo ba màgg nekk nasaraan doomu yawut yi buñ juddoo màgg nekk yawut moom itam doomu jullit la ba mu juddoo màgg dafa nekk jullit ndax gis na ndeyam ak baayam ak ñi ko jàngal ak ñi ko yar ak dëkk bi mu nekk bi ñu julli rek mu nekk jullit kon ñee itam na mu def rek la ñuy def ana lan moo ko teg tegtal ne kon am na benn avantage ci ñoom ndax moom itam bu juddoo woon fa ñu juddoo day def ni ñu def mu daal di sikki sàkk léegi ban diine kon mooy diine bi wér gannaaw nit ki fa mu ko yàlla def mu juddoo fa rek la fa nekk lay xam ñooña lay topp kon moom amagul dara lu ko wóor lu ko wóor mu dem ba di sikki sàkk sax ne moom nit fan lay xamee lu koy jox xam-xam ba mu xam ndax yàlla am na wala amul wala lii moo jub wala jubul mu ne déet ndax nit ka fu mu jëlee xam-xam mu ne xam-xam mu ngi tàmbalee ci xawaat yi maanaam sens yi gis dégg maanaam fóon ba mu jeex mu ni sens yi nit ñi amee ñëpp day nax nit kon mënuñoo sukkandiku ci ñoom ba wane lu muy wax dëgg la ndax lanu xam ba mu wóor ñu ba mën noo jëriñ ëllëg mooy xam-xam bi nga xam ne da koo mën a waat ni nga xamee ne fukk gën a bari ñett ba su adduna bépp dajaloo woon def kéemaan bu nekk pour bëgg laa gëmloo ne ñett moo gën a bari fukk du tax nga sikki ne loolu xam-xam bu wóoree noonu rek mooy bi jëriñ nit te mooy ko mën a sowee te moom loolu awma ci nag kon man jaaxle naa ndax bu ñëpp ne ñoo ne ci dëgg te amul kenn koo xam ne kii du jàpp nga ne yow yaa ne ci dëgg ñu ci def ñëpp ci caaxaan kon lan moo mën a maa ngi ci dëgg man mu daal di gis ne kon nit ñi fu mu jëlee xam-xam maanaam li ñuy gis lépp di jàpp ne li ñuy gis dëgg la sax wóorul ndax danga nga romb ker mu taxaw nga àttana waat ne ker gi yokkuwul wàññikuwul dafa ne dégg waaye boo demee ba mu yàgg nga dellu siwaat da nga gis ne ker gi weesu na fa mu woon kon gis ci boppam day nax nit te moo gën a dëgër ci li mën a wan nit ab eh, lu mu xam mu ne itam waa guddi itam da ngay xool seen guddi yi ci asamaan mu tuutee ne dërëm nga gëm ne lu tuuti la suuf ëpp te am na noo ay Ibrahim Handasi yu ñu wéral na benn bu ci nekk moo ëpp suuf si nangami yoon kon gis ana fan la wóore mu ne déedéet sax léegi doon naa nelaw sànq ma gis ne dem naa ci dëkk bu kéemaane bu rafet ma gis këm yu rafet gis ay tool yu rafet gis fa ay rafet rafet yoo xam ne gëmoon naa ne lii am la waaye ba ma génnee ci aalam boobu maanaam génne ci aalamu nelaw dikk ci aalamul yaqasati mooy aalamu yeewu gis naa ne yeewu fen loo na nelaw ba wane ne loola nit dara du est-ce que amul beneen ah, alam boo xam ne bu ma fa demee dana setloo euh, bu ba may dóor ci àdduna la fa nekk dafay gën a woor ba ni nga xam ne yeewu gi ma yeewu ni mu setloo gént yi ma doon gént ndax amul mu ne te ñàkk xam loolu tegtalewul ne loola amul mu ne nag loola kon fan laa ko mën a gisee fan laa mën a xamee dara lu ma tegtal ne am boo xam ne moo gën a dëggoo euh, dégg nga alam état de veille mooy alamul yàq si fii mu mel ne ni état de veille gën a dëggoo dégg nga état de somme maanaam nelaw mu gis ne gis na ci alxuraan fu muy junjee ne fa kashafna anka ghita'aka fa absaraka al-yawma hadidun am na fu alquran di waxee doomu aadama tolluwaay boo xam ne bu fa àggee dana ko ne léegi muru nañ siiraay li la teewoon a gis dëgg léegi sa gis bi lu sore sore la tey Muhammad itam am na fu wax ne annaas niyaamun fa idaa maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw bu ñu bu ñu dee la ñuy yeewu kon nag am na beneen aalam boo xam ne bu ñu fa demee aalam boobu moo gën a wóor aalam bii du nekk yeewu ñi nga xamee ne aalam bii du nekk buñ ci nekkee te yeewu moo gën a wóor buñ buñ dee nelaw ci loolu nag la tàmbalee di gindiku di gindiku ba nee na moom li ko delloo ci ci dëgg nee na bi nuurin xasafahu laahu fi qalbihi leer goo xam ne yàlla daf ko sànni ci xolam kooku looloo tax mu nekkoon nit mën na xam yàlla te du jaaree ci mbindeef yi kooku mboolem lu nekk ci mbindeef yi lu mën a xam gëstu naa gëstu ci xam-xam laajte na ba tàyyi def na xalaat ba tàyyi def na lu nekk te taxul mu gis dëgg ba mu soob suñu borom mu fab leeru ngëm sànni ko ci xolam mu dal di gëm ni nga xam ne noonu la bu Ibrahima waxe woon ne bi nga xamee ñaari tàgge yooyu ndeyam ak sëram euh, wala baayam dikkee na ko mu dal di am ébranlement dal di gëm ci sax bi te amul wala benn ay brahim maanaam ay euh, xalaat wala ay lay yu mu indi pour ne gëm na loolu dafa jékki-jékki rek dugg ci xolam naka noonu itam ñu nga xam ne euh, ku mel ne Jean-Jacques Rousseau ak ñu bari ci nga xam ne seen gëm daf leen a dikkal noonu noonu la xasaar yi waxee mooy diinu arabi moom nee kenn mënu gëm te jaayewoo ci mbindeef yi ak ci seetantal ak xalaat ak jàng kooku mooy bi nga xamee ne génn na ci xelwaan yi te ne jëlee na ci xam-xam yoo xam ne ñuy jàng mënuñu koo amee ci njàng fekk na ibnu rusdin mooy averroos da benn euh, philosophe la woon maanaam philosophe boo xam ne ci arab yi jullit la woon nekkoon na ku bari xam-xam ku xam philosophe bàyyi euh, Muhyiddin ibnu Arabi xaritam la woon moom nag daana dégg ibnu arabi ibnu arabi booba xale bu ndaw la bu am ñaar fukki at amagul sax moustache amagul sikkim mu di ko dégg bëgg koo gis bàyyi ibnu arabi yónni ibnu arabi ci ilmu rusdi maanaam ayros pour mu gis ko ngir ki discuter waxtaan bu ñu ko gisee fekk na mu ngi toog di jàngale bu ñu ko séenee mu ñëw mu jóg dogale ko ne ko ibnu arabi mu ne ko ah mu ne ko waaw wala déet ibnu arabi ne ko waaw mu dal di reer ko déet mu daal di jox daal di mer diggante waaw jooju ak déet jooju ibnu arabi ne ko diggante waaw ak déet ci la roo yi rote roo yu bari ci lañuy ñu doon rootee di rot lan mooy maanaam waxtaan woowu bi nga xamee ne daf ne ko waaw wala déet mooy mur si daf koo laaj ne ko ndax jàng xam li yàlla wax ci alquran xam xadis yonent bi farlu jàng itam philosophie jëfandikoo sa xel ndax doy na pour nit ci mën mucc mu ne ko waaw ba noppi ne ko déedéet waaw ji liñ ci moo di loolu mën na tax nit ci mucc waaye mucc gëm nga xam ne mooy dëgg dëgg mucc mooy xam yàlla te xam yàlla dëgg dëgg da ngay def tafakkur dugg xelwa tarbiyewu jaar yoonu tasawuf soog a àgg ci yàlla dëgg dëgg moo tax mu ne ko déedéet bu mu ko nee waaw waaw nag te mu di kontaan bi mu ko ne déedéet moo am naqar mu ne ko nag diggante waaw jooju ak déet jooju ci la roo yu bari rote mooy suuf suuf yi nga xam ne dañ leen a rey ci kaw wax yoo xam ne seen diggante seen borom la may yi leen seen borom may ak gis boo xam ne noonu la ñu gisee mbir yi ñu wax ko ahlu sharia ci gisee ne loolu faq sharia la te ñag gi ñagub sharia la te loolu woddi yax yonent bi la te reye ca war ba ñu rey leen loolu mooy diggante waaw jooju ak déet jooju ci la ruu yu bari rote kon ko ne nit ñi ci ay daraja yu bari dañuy wuutantee ñii dañoo jaar fi ñii jaar fi kenn ku ci nekk ak la dëppoog sa ay mbir mu ne nag bi mu ne innama yaxsha allaha min ibadihi ulama borom xam-xam yi dëgg rek ñooy ragal yàlla dëgg ragal gu ñëwaat kan mooy aalim boobu xam ne moom la suñu borom wax ne mooy gëm dëgg dëgg gëm mooy jox gëm yàlla dëgg dëgg xàqam jën xam ne moom la sàkku ci doomu aadama mu ne aalim boobu mooy ki xam li yàlla ak yonent bi wax ba noppi te xolam fu mu toll di feey ci xaqaayiqi diine maanaam ci diine nag lay dund ci lay noyyi ci lay waxtaan ci lay wëlbatiku ci lay dem dikk ci la léppam féetale maanaam lépp mu ngi teewal xalaatu yàlla xalaatu ëllëg ci xolam fu mu toll rek du ko génn mukk ci xolam ak ci xelam ak ci ruuxam kooku mooy ki nga xam ne mooy jox yàlla xaqi ragal nga xam ne moom la doomu aadama war a def moom loolu moo tax ñu ne al aalimu duuna ma yaqulu wal aarifu fawqa maa yaqulu aalim nag li muy wax àggu ca xam-xamama ca àgg waaye dara jaam àggu ca ndax daf lay wax wax yonent di la wax wax yàlla te dana la wax loo xam ne xaqa xaqiqa ba dëgg-dëgg moom si boppam xamu ko daf koo nekk rek ni nga ko waxee ak ni nga xam ne noonu lañ ko seraaxee bu waxee ko noonu aarif nag dafa wees foofu ba fa mu àgg fépp nag mën koo wax ndax benn du xaj ci bopp ki mu koy waxal wala buñ ko ko waxee dana ko teg yéefar wala moom ci boppam lamiñam ak ci lamiñ bi nga xam ne moom la nàmp di ci wax mënu ci mënu la am baat yoo xam ne mën na misaal dëgg dëgg xaqaayiq yi nekk ci xolam ba mu xamee ko na nga xam ne noonu la ko mën a waxee ndax loolu moo tax Seydina Aliyu Zeynul Abidina xam ne doomu Seydina Xuseynu la mu ne woon inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay laa yara daaka zu jahlin fa yaftatina wa qad taqaddama fi hada abu xasanin ila alxusayni wa awsa qablahu alxasana ya rabba jawhara ilmin law abuuxu bihi la qiila li anta miman yabudu alwasana wala staxalla rijalu muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatun wa xasana sama xam-xam dëgg la ca gën a sell la ca gën a xóot dama koy nëbb ndax bugguma jaahil dégg ko di ci fitna wu mu di ko teg fitna ndax bari na këri xam-xam yoo xam ne bu ma ko wax feeñaloon daañu ne ma yow kat jaamukatu xërëm nga dangay ngay jaamu lu dul yàlla te kon borom xam-xam yi daañu daganal sama deret daañu ne reyewaat ci man te lii ma jëfe ci nii ma xam Ali ibn Abi Talib na ko Seydina Xasan te man itam maa ngi nii di ko jëfe gannaaw loolu itam xamal ne ko Ousseynou mi nga xam ne mooy sama baay xam-xam boobu yàlla doon loona ma ko ci moom ndax Seydina Alioune nee na dugal naa sama lamiñ ci sama biir gémmiñ jur nii bunti xam-xam ubbi ko ci sama xol juñ naa ci xàq li ñuy jaamu ne suñ ma tegaloon njeganaay danaa toog ci njeganaay la atte tawreet ci tawret atte waa linjiil ci linjiil atte waa zabur ci zabur atte waa alquran ji ci alquran ji juñ naa ne su ma borom mayoon ndigal fatihatul kitaab rek danaa ci saraar téere yoo xam ne dana diis ñeent fukki gëléem mu ni boobu xam-xam mooy xam-xam xam ne kenn du ko bind ci téere te yoon wi nit jaar ba am ko mooy ñi jaar ci yoonu tasawuf awliya yi la ko suñu borom di mooy xam-xam boobu nga xam ne yàlla daf koo gardeel ñi mu sopp ñi nga xam ne jaar nañu aw yoonam moo tax mu ne wallazina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana gaa ñi nga xam ne jihaar nañu dëgg dëgg jihaar ci sama yoon danaa leen jubale ci sama aw sama ay mbir jihaar jooju nag mooy jihaadul akbar ndax ñaari jihaar am jihaar ju mag ak jihaar ju ndaw sa jaasi di xeex ak noonu yàlla yi di leen rey jaay sa jaay sa deret ngir yàlla jënde ko àllaaxira loolu mooy jihaar ji yonent bi tudde jihaar ju ndaw jihaad ji nga xam ne mooy jihaad ju mag mooy jihaad ji ngay jihaad rek sa bakkan nga xam ne sa diirub dund la ndax kee ay saa rek la nga jóge ci ñëw noppalu fii nag sa diirub dund ngay xeex ak seytaane di xeex ak sa bam sa bànneex di xeex ak adduna adduna di xeex ak lépp loo xam ne lii daf lay tàggaleeg yoonu yàlla wala mu di la jàddaloo nga xam ne loolu jihaar la joo xam ne ba ba saa di taxaw la du jeex mukk te moo gën a metti ndax wuuteeg sa bànneex la wàññi say neew wàññi bëgg foo bañ a dem foo bëgg a dem sa bànneex lépp nga wuteeg moom ngir di wut yàlla jooju jihaad mooy jihaad ji gën a mag doomu aadama bi fi mu dundee ci àdduna kon war a wattandiku boromam war a wattandiku itam moromam mooy moroomi doomu aadamam yi mu dëkkal mu di war a wattandiku ñaari wattandiku wattandiku ngir bañ leen a ameel xaq wattandiku it ngir bañ a ameel yàlla xaq ndax yàlla mi leen bind moo leen moom kon alal ma ku yàq alali jàmbur tooñ nga kooka loolu moo tax ñu araamal lépp loo xam ne lii dafa jóge ci yow jëm ci sa moroomum jaam moo xam jullit la wala yéefar ci lu koy lor tàmbalee ci jëw jëw metti na tiis na tiis goo xam ne bàkkaaram suñ boroom niirale na koog lekk médd jaam bi nga jëw mu dee nga lekk yàppam noonu la suñu boroom niirale jëw jaam bi Cheikh Ahmadou Bamba wax na ci eh, aljawharu nafis wa qaala xi xayrul anbiyaa تكررا لنخبة النساء لما لمرأة أتتها قالت هذه سبيل ذيلها فقاءت فسقطت مضغة لحم فحلف صلى الله عليه اللهم هذا الشرف بأنها لو سرعت لا بد من دخولها النار إذا الموت يعين ولا تفيدها لدى الجليل نسبتها سمى إلى الرسول mu ne ci gën ci yonent yi mas na ne waccul waccul waccul takraar ko muy wax ak ci ñu tànn ci jigéen ñi mooy sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha jamono ba nga xamee ne amoon na benn jigéen bu ñëw fi moo ñoom waxtaan ak ñoom bay dem mu ne ak gudd mbubb mu ne ko xaxtandikul xaxtandikul mu xaxtandiku lumbu deret génn ci gémmiñam wadd mu ne ko gis nga lumbu deret lii mooy bàkkaaru jëw bi nga ko jëw boo ko wanaasu woon yomal xiyam faw nga jaari safara te askane giñ lay askane ci man du la jëriñ dara mënu laa jëriñ lenn lu tax nga bañ a jaari ci foofee mooy wala tufidu xaaladal jalili nisbatu sama ila rasuli donc kon jëw ci boppam ak rambaaj ak neen ak lekk alal nit ñi ci lu dul lu tey seen bakkan naka noonu fenn lépp dañ koy xiyaas dañ koy peese ëllëg ndax ay bakkaar la moo tax eh, Cheikh Ahmadou Bamba ba tey wax ne laa taltamis min uyubi nnaasi maa sataru fa yahtika llahu sitran an masaawika wadkur maxaasina maa fihim ila suturu wala taib ahadan minhum bi maa fika bul di sàkku ay bi nit ñi di ko seet di ko xam wala nga di ko xam ba noppi di ko wax nit ñi nëbb bu ko feeñal boo ko defee kat suñu borom mën naa xotti sa sutura suñu borom mën naa xotti say ñaawteef wane ko ba ñëpp gis ko ndax jaam boobu nga def noonu buñ leen tuddee daal ku ci nekk na wax la gën a rafet ci li nga xam ci moom waaye bu ci ayibal kenn ci ñoom du munaafika am na ñetti jamtal maa ji di ndollant muy bifiika maanaam ci sa gimiñ bul wax ci kenn lu ayibal lu koy ayibal wala munaafika ci leen li ne ci yow maanaam ayib yi nga leen di ayibale yooyu ayib mu ngi ci yow wala binaasika maanaam ci cër yi ci yi ne ci yow moo xam da ngaa piis ci sa bët pour ayibal ko wala da ngaa ci sa loxo wala da wax ci sa lamiñ ñett yooyu yëpp bu ci nekk jamtal na ko te yëpp ànd na ci di dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut képp ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba buy wax na wax yiw rek na wax lu rafet rek wala mu noppi aada yu ñaaw yu bon yi lu mat a muslu la muy roccee ruuxu bu texewul bu ko sidnaa Jibril gisoon xam ba noppi wextanu dee neenu bi nga xamee ne yonent yàlla isa alayhi salaatu wasalaam daf daan dekkal ñu dee am na jëmm ju ko mas ne ñu ngay dekkal day ba ñu deewee dafa yàggul kaay moon la bàmmeel bu ma xam boo xam ne doomu yonte yàlla nooxin la woon niñ ma ko tekkalee nga dekkal ko ba mu ko dekkalee ba mu dundee ba mu jógee waaja ba muy dee xale la woon waaye bi mu dekkee bi mu jàlloo moom dafa bejjaaw mu ne ko waaye lu la mu ne dama bi déggee sa woote bi dama tiit ndax defe ne saa taxaw mu ne ko yow de xanaa yàgg nga fi mu ne ko man de nang bi junneet am naa ko fi mu ne ko na deemel mu ne ko seedeel na ba ma fi tëddee ba tey jii de waxtanu dee dañagul ci man waxtanu dee woowu raglug malaayika yooyu ñaawaayu jëfi doomu aadama ci jëf yi nga xam ne jëfi moy la wala jëf ji rafetul la mooy gën a ñaaw melow malaayika woowu ñetti mbugal yooyu nga xam ne mooy gàttandu doomu aadama ci waxtu rocc roo te duggagul ci bàmmeel doy na di xalaat fu nit ki toll te fii ci àdduna kat la nit ki di toppatoo li ko musal ci yooyu le ndax jëf yu rafet ya bu ko waa ji dee gis mooy dàq àjjana day yàkkamti sax ruu bañ a génn ndax mu bañ a tàggoog jëf yooyu muy jàkkaar lool ndax rafetaay bi ñuy rafet ak xeet xeet yu neex yi mu xet yu mu xeeñ ak bànneex bi ak seddaay bi muy sedd te maram woowu dañ ngir xet gi nga xam ne rek xeeñ na ko ci xetu jëfam yu rafet yooyu mu jëfoon xam ne diggante boobu yenn secret ngi fi yoo xam ne ku dul suñu borom xamu ko jaam bi ci jaar sax du ko mën a misaalati suñu borom bari na ay secret yu nëbbu yoo xam ne def na ko ci biir jaam ñi te fu ñu toll ñu ngi rombante ak ñoom yi ci des nekk ci seen biir ndax xolu doomu aadama téere ngi ci boo xam ne li mu jëf lépp bind nañ ko ca waaye xijaab maanaam kiiraay yi ko yiir tax na du ko mën a jàng bu keroogee bañ ne fa kashaf na i anka xitaaka fa basaruka lyawma xadidun bu keroogee bis boobee lay jàlloog téere bi ndax kiiraay yi nga xam ne moo ko yiir ba du gis secret yooyu mooy attache yi ko taqaleeg suuf yi ko taqaleeg adduna ndax adduna madde la maanaam matière matériel nag ak esprit dañoo féewoo maanaam lu ñuy wax antagoniste lañu ndax roo ci boppam ak jëmm ñaar ñu féewoo lañu fekk na waxtu wi daf ko dul mag waaye diggante li nga xam ne moo leen diggale mooy arruux alxayawaan yi li ñuy wax jismun latifun yaxya bihi alxayawaanu mu di souffle vital vapeur bu woyof boobu nga xam ne ci finesse am mën naa am rapport ak dëgg-dëggi ruux nga xam ne mooy esprit te woyof woyof boobu mu woyof itam teewul am na tuuti ci matériel ba tax na mën na ko jokkaleeg jëmm mi nga xam ne matière la nga xam ne tax na ruu ak jëmm mën a diggaale ci waasitaam maanaam ci moyen wu euh, ruu googu nga xam ne mooy ruu dunda nga xam lépp luy dund am na ko waaye ruu mu nga dëkk ci malakoot ci alamul malakoot la bokk malakoot mooy royaume spirituel de Dieu maanaam nguur ruuxu suñu borom nguur gi nga xam ne loo mën a làmb daj ko wala nga mën ko xool gis ko bokkul ak loolu nga xam ne mooy secret yeeg mbóot yi nga xam ne ma nga fa suñu borom ruu ca loolee la jóge ñu ngi ko bind ci ni ñu bindee malaaka nga xam ne bokk na ci meloom xam te fàtte man te du tële teewandoo fu yaatu fu bari bokk na ci ay meloom yoo xam ne ña ko xam sañu ñu ko wax ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam boppam suñu borom mayu ko woon mu waxtaane ruu bi ko ko yahud yi dee laaj ruu moomu nag dafa xamoon boroomam bëgg boroomam namm ci boroomam boo ko suñu borom bindee te tàbbale bu ko ci yaram mooy yow ma alastu bi rabbikum ba mu leen dajalee ñoom ruu yëpp ne leen ndax duma seen boroom ñoom ñëpp gannaaw ruu dafa xam boroomam ñoom ñëpp ne ko ah kay suñu boroom ca gannaaw bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkkee wuyu jaam yëpp wuyu topp ci bu gannaawam yéefar yi wuyu te sañu ñu ko bañ képp koo xam ne boo fi ñëwee danga nga gëm wuyu ci sa coobare ak bànneex ba mu ne ñii day way fen lañu ci li ñu wax ne bale ñii day way dëggal lañu waaye danaa leen nattu indi leen ci àdduna fabru dugal ko ci yaram mu mel ne ku ñu tàbbal ci kaso boo xam ne amul bunt amul palanteer bu jant fenkee doo gis re leer gi du mën a agsi bu sooyee doo ko xam ruu mel noonu nag di ko tumuranke ci biir yaram lii dundal yaram di bànneexu yaram mooy naqaram mooy tawatam xam ne ruu kon bi mu duggee ci biir yaram dafa tawat kon doomu aadama yëpp ci kaw suuf di ay malade adduna di hôpital yonent yi ñëw di médecins yi nga xam ne ñoo war a faj jaam ñi dal di indi cérémonial yi nga xam ne moom la jaam ñi war a jëfandikoo muy seeni ordonnance faj leen ba ñu wér roo lan moo di wéram mooy mu delluwaat ci meloom melowoon ci cosaan bu ko defee bu sellee ba nga xam ne amul benn tâche amul benn gàkk mu mën a dellu ci boromam mën a bànneexu ci leeri boromam mooy ajjanaam mën a dugg ajjana bi fekkee ne jaam bi nag mooy na mooy yu bari ci àdduna waxtu moyee muy benn gàkk roox gi mën naa dem ba lëndëm këruus waxtu woo xamee ne nag nit ki mu ngi dimbali ruuxam au détriment de son corps maanaam daal mu ngi dimbali gi ci li nga xam ne day euh, not day naqaral jëmm mooy nit ki na néewal lekkam ba wayaf woyof deretam woyof xolam mën a xalaat xolam leer muy woor di faral a wéet di xool lu ko yàlla xoolloo rek tur yàlla sax ci gémmiñam roo day gën a dund ni garab gu ñuy suuxat di gën a am kàttan di gën a rëy bu ko defee day gën a jege melowam melowoon ba mu daan ñëw ci àdduna roo yi nag bi ñëwee ci àdduna bi ñu duggee ci yaram dañoo tawat yonent yi rek ñoo des ci seen wér ga woon am na ci itam yeneen roo yoo xam ne tawat nañu waaye tawat ja demewul noonu ñooñ ñooy awliyaaw yi ak akabirul ulama yi ñi ci des nga xam ne ñoom la seen ru gën a tawat ñoo gën a aajowoo xeex xeex bu metti ja jàngoro yooyu ngir mën a wér tax nit ki waxtu woo xamee ne ruuxam dellu na ci wér ga woon moo di ak muccam bu fekkee ne mu ngi ci àdduna te demagul suñu borom dana ko muril kiiraay yi kiiraay nga xam mooy les attaches terrestres ki tey jëf yi nga xam ne dana ko jëfandikoo yëpp ci àdduna nga xam daf koy xëccaat jëmee ci àdduna yi mooy baat yi muy dégg yi bëgg-bëgg yi muy bëgg soxla yi muy dox ñi muy diggaaleel mébét yi muy am nooflaay yi muy noppalu nelaw yi lekk gi naan gi bànneexu bi muy bànneexu nga xam ne yooyu yëpp day gën a dundal yaram bi te yaram bi day gën a tëj kaso roox gi nga xam ne lu tasawuf seen principe mooy ñaari an unsur yooyu maanaam ñaari jaambur yooyu te mooy yaram ak ruux bu ñu dimbalee ruux gi dana delluwaat ba nga xam ne dana jege nam meloon ba muy ñëw àdduna loolu moo tax awliyaaw yi daañu toll si jamono boo xam ne bu ñu wéetee di tudd yàlla tudd yàlla goo xam ne gii saxoo nañ ko génn seen xel ci àdduna déggatuñu dara dara dara lu leen mën a delloo si xëcc ci àdduna malako day ubbiku ci seen kanam ñu janlook ruuxi yonante yi janloog malaayika yi janloog ajjana ak safara ak arasa kursi yu mën a di jàng laxul mahfoos la nga xam ne moom la suñu borom def loolu mooy istidaat bi nga xam ne jaam bi dana ko xaroo ci fóot ruuxam balay ëllëg ndax li leer moo di siraat dana ko jéggi te siraat du dara lu dul jëfi jaam ñi ku sa jëf juboon jaar ci yoon da ko jéggi jéggi gu jàppandi gu neex gu yomb gu gaaw koo xam ne sa jëf dëng na siraat lu dëng lay doon ci yow waxtu woo daanoo fekk na yaa ngi tiim safara ci safara rek ngay daanu kon bu ñu ne siraat mooy jëfi jaam ñi jëf bari na fu muy walloo doomu aadama waxoon naa fi ñuy roccee ruu nga xam ne léegi gisatul dara ci adduna amatul atab adduna bëtam yaa ngi bokkiku janloog malaayika mi ak fi mu nekke ci barsax te jëf yi di ko jëkk di ko jëkkante su dekkee ba war a jéggi siraat ñu war a peese ay jëfam ku ñuy wax nu Mardawis nee na Abdullah ibnu Mas'ud nee na yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam suñ boroom dana dajale jaam ñi mu bindoon ñëpp ñi njëkk ba ci ñi mujj ci benn bis boo xam ne dana leen taxawal ci béréb ñoom ñëpp ñu taxaw jonn seen nagi bët yi buqiku janloog asamaan rek ñuy xaar atteem suñ boroom booba dana wàcc wàcc aras jëm kursiyu ci biir ay niir yu yaatu yu lëndëm ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaayika jóge araf ba kursiyu ibnu jarir ak ñeneen ñu dul moom nee nañu abdullahi ibnu omar nee na ci aaya jooju suñu borom di wax hal yanzuruna illa an yatiyahum allahu fi zulalin min alghamami wal malaikatu wa qudiya al amru wa ila turji'u lumuru néguñu dul yàlla dikkal leen ci biir ay xiini niir ànd ak malaayika yi bu keroogee ñu àtte jaam ñi mu ne maanaam waxtu wi suñu borom di wàcc digganteem ak mbindi fii juróom-ñaar fukki junniy kiiraay moo koy moo ci dox am na kiiraay yi leer ak kiiraay yi lëndëm ak yu kiiraay yu ndox ne ndox moomu dana sab sab goo xam ne xoli nit ñi day xolli ko di wadd ndax tiisaay ak xumbaay geeg raglu gi ak métit bi gis boobu nga xam ne doomu aadama bu séenee mbokkam daw ndax ne xëy na bokk gi ñu bokkoon nekk ci àdduna amel na ko xàq yoo xam ne bu ko gisee dana ko fay ci moom te keroog ku nekk la nga amoon ci lu baax xeeb nga ko la nga amoon ci lu bon naw nga ko ba mu jaaxal la doo bëgg ñu jël ci yow dara di jox keneen wala ñuy fab bàkkaaru kenn di la jox boo alxuraan nee na boo séenee sa mbokk daw boo séenee sa ndey daw boo séenee sa baay daw boo séenee sa soxna daw boo séenee sa doom daw nee na kenn ku nekk am nga lu la doy bis boobule da gis nit ñi ñu mel nañu màndi ndax keroog mbugal ga rek te màndi wuñu de ne keroog bis boobu la yéefar ba naan ay nga la man ay aka neexoon ma jaaroon yoonu yonent bi aka neexoon diw ma bañoon koo def xarit di ànd ak mu ba mu yóbbaale ma ci bon bon yi nee na keroog la tooñkat bi di mat baaraamam di wucceex ndax réccu rek te boo fekk na mu yëngu loo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy new de waaye wallaay bu ñu deewee daañu yeewu keroog bis bi suñu borom sampee balance di atte seen jëf yi keroog sëñ Tuubaa nee na wa yaqa'ul qisaasu bayna jamma wa bayna qarna li adlin samma bu keroogee bàyyima bi amoon béjjën mbëkk bi amul woon béjjën suñu borom dana àtte seen diggante dana xiyaas dana xisaas la nga xam ne loolu la ko defoon béjjën ya koy amee woon mu wekki ko saxal ki amul woon béjjën mu mbëkk ki amoon béjjën yi na ko mbëkkee woon ba noppi ñu soog leen di def ngelaw jëri leen ñu naaw ndax amuñu bàkkaar ngir maandu suñu borom rek nee na keroog bis boobu day daañu xisaab doomu aadama ci lu demee ne xitmiir wala naqiir wala fatil ñooñ ñu ngi demee ni ki boo xoolee tàndarma der wu woyof wu weex woowu nekk diggante ñam wi ak xoox bi ku ko fabal nit te baalu la ko nga jël ko jëlal ko ko ci lu dul seddu xolam bu keroogee daañu ko xiyaas nga delloo ko ko benn ñu fab ci sa tuyaaba lu tolloog loolu jox ko wala ñu fab amuloo benn desewoo benn tuyaaba ñu fab ci bàkkaaram lu tolloog loolu teg la ko naqiir mooy saal bi bu dëgër bi ci boppam fatil mooy boo tojee saal boobu la ci biir te weex te xale yi di ko bàyyi ba mu sax ba nooy ñi di ko toj di ko lekk doomu aadama nga xam ne bu deewoon ci jihaar suñu borom dekkal ko mu delloo di jihaar ngir ngërëmal yàlla ak noonu yàlla yi ba dee ñu dell ko dekkal ba muy ñetti yoon bu yemal xiyaamee feeg amee na bor buñ ko baalu du dugg àjjana mukk ak loolu mu def lépp te fayul bor boobule. mu ne kon adduna moom kër gu romb rek la nan nan ko def kër gu romb moom dong ñu tax a mucc nee na sa alal ji amuloo ci lu dul li nga lekk mu rees li nga sol mu ràpp. ak li nga li nga dëkk ak li nga dawal ci sa bàmmeel lépp lu ci dul loolu ñàkk nga ko keneen a koy moom kon nag dajaleel keneen dara jaru ko nee na perte foofu la mën a yem mu ne nag gis nga kon tiiti bis penc ba ni mu tiisee ak ni mu réyee na koy delloosi ci sa xel di ci xalaat xalaat bu yàgg mu ne ndax ki gën a mucc ci nit ñi ci tiit yooyu la mooy ki koy gën a xalaat te di ci gën a def xelam nee nag yàlla du boole mukk ñaari tiit ci jaam tiitum adduna ak mu àllaaxira képp koo xam ne sa xol dalul ndax ragal yàlla di xalaat ëllëg yomal xiyaam suñu borom dana la def nga bokk ci ña gën a ñàkk tiit ña gën a sedd xol ña gën a dal xel yàlla dina la ca boole. mu ne nag ragal gi lay musal du genn ragal lu dul ragal gi nga ragal yàlla ba mu dox sa digg ak mooy ragal gi nga ragal yàlla. ba mu xiir la ci topp ko jaamu jaam ñi nag ñu wuute lañu keroog bis li muy tiis tiis yonent bi sallallahu alayhi wa nee na laa amri la hiya ahwanu ala al mumini min adaayi salaatin maktuba giñ na ci dundam ne tiiti bis penc ba jéggi siraat taxawaay bu yàgg ba balaa sañuy peesee jëf yi ak loolu lépp jaam bi nga xam ne ak ngëmam àgg na ca suñu borom dana ko woyefal ci moom ba nga xam ne julli ñaari rakka wala ñett wala ñeent ko gën a diis ci moom yàlla na ñu ci suñu borom boole ndax suñu borom sàkk na jaam ñoo xam ne seen leeru ngëm dana tax bu ñuy jéggi siraat safara wiñ tiim dañuy yàkkamti mu jàll naan ko yow aji gëm ji gaawal ndax yaa ngi ma sa leer sa leeru xar kanam gee ngi fay sama safara wi mu ni bokk na ci yi mën a dimbali nit ci àdduna ji nu nekk delloo sa xel di xalam di xalaat tolluwaay yooyu ak jaar-jaar yi jaar-jaar yi nga xam ne yépp faw nga jaar di xalaat dee xalaat jeexu àdduna ak ni mu ñàkk solo te bañ bàyyi sa xol mu lab ci adduna ngir bari ay mébét ak bari bëgg-bëgg foo tollu muy sa lépp nga wéy ci rek mébét yi dul jeex mu ni sellal say jëflante sellal itam say jëflante ak doom aadama yi bokk na ci li lay musal ëllëg fuglu yàlla mooy di lu màggam gi foo toll jëpp jëf jooy jëf nga teewlu ca bu teewee di la tiim na ngay jëfe nga gën a ragal tere ko ni ngay wattandikoo jëf jooju ak jëf ju baax ji ngay def ka nga gën a yaakaar gën koo gëm gën koo fullaal digal la ko na koy defee waxtu wu ne ngay teewlu suñu borom ni muy jàkkaarloo yow sa dara ump ko ci lépp looy jëf ak lépp looy wax ngay rus fépp fu la tere ngay jéeg jéggi sa jéego yi di ca jëm fépp fu mu bañ nga ne fa ngay rus ñu di la fa fekk malaaka yi di la fa fekk fépp fu mu bëgg nga ne fa ngay fexe ba mu di la fa fekk muraqaba googu bu yàggee mooy indi mushahada mooy mooy waral suñu borom ñori kiiraay yi nga xam ne moo dox sa digg kumpa ba lu bari lu ump jaam yi suñu borom di la ko wan ngay jànloog moom kon na nga wattu niig niigal niig niigal mooy remettre au lendemain bàyyi daal nangam ji naa bàyyi tey ba ëllëg wala na bàyyi ba nopp noppalu ba beneen yoon jëpp jëf topp ju mu doon fu la fekk fu ci sa xel demee rek jógal dal ca ndax sëñ Tuubaa nee na wa anna aksara siyaahim gada fi naari min tasawufin tawallada ña gën a bari ay jooy gën a metti jooy gën a yàggi jooy ëllëg ca safara mooy ñi nga xam ne dañoo sàgganoon di leem rek di leem te duñu takk kon nanga nga gaawantu jëm ci jëf boykat bi nee na fa ma qada ahadun minha lubanatahu wala ntaha arabun illa ila arabi adduna kenn du ci jeexal say soxla mukk mukk soxla su jeex rek seneen jóg taxaw Sëñ Tuubaa nee na fa inna li dunya humuman tamnau min alhuda wa hiya la tanqatiu adduna am na itte yu bari yoo xam ne day dox diggante nit ak jub te nee na itte yooyu kat du jeex mukk te wal mawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu za shawaxilin muxtarima dee day bett buy ñëw de te bari na bu mu ne ket teg nit fekk mu ngi amoon ay soxla yoo xam ne moo doxoon digganteem ak njub moo doxoon digganteem ak def li mu war a def kon nit ki bëgg a mucc war nay dellu si loolu ci xelam war na di toog ci jataay yi nga xam ne dañuy fàttaliku yàlla di fàttaliku ëllëg ndax loolu day dàggi xol day xëcc xol di ko setal bari na bu bu nit toogee ci jataay boo xam ne waxtu mu fay jóg suñu borom dana far bàkkaar bu mu amoon bépp xolam lëndëm yi ca neewaan yépp dana leer la ca takkoon lépp dana set la mu tàyyee leen lépp ci jëm ci yàlla dana deñ ak cawarte ak ku bëggeel ak ku namm yàlla wuutu ko fa rafet na nu yër téere waara téere waaraate yi ak di déglu way waaraate yi nga xam ne li ñuy wax dëgg la ci ñoom ndax ak waar bu jógee ci xol ci xol lay dugg waaye bu fekkee ne ci lamiñu nit ki rek ci ay tuñam la génne ci nopp rek lay yem kon di seet béréb yiw mi maanaam béréb yi nga xam ne nit dana ci jëme jële fàttaliku yàlla fàttaliku ëllëg fàttaliku itam sabab yi nga xam ne mooy waral texe fa la koy jële boo defee loolu ci lay jële texe gi nga xam ne ak texe di dootu amati mukk gannaawam jublu gi muy jublu ci yàlla wan lépp leneen gannaaw ci loolu la koy mën a jëlee dañ Tuubaa nee na law kunta tuuqinu maa yaati amaamaka min hawlin wa min sakaratin kulla iqaadi kon la ma staxalta bi dunyan la baqa alaha bi jamikal maala min qaasim wa min daani nee na su fekkonte ne lii ñëw ci sa kanam nga ko gépp wóolu ci ay tiit ak ci sukuraat yi ndee boo ko wóolu woon gépp wóolu kon doo soxla woo adduna ji nga xam ne du des mukk da nga fiy jóge te adduna ci boppam day jeex te du yàgg ngay dajale alal rek jële ko fa gën a ak fa gën a jege nee na laa tax tarit bi xutaamin anta tatrukuhu lil waarisiina ka ixwaanin wa aqdaani bul waru muk ci alal ji nga xam ne da koy bàyyeeg say dono rek inna allazi yumsiku al amwaala muxtakiran lam yantadir gayra taxsirin wa xirmaani képp koo xam ne day dajale alal di ko bànneexoo di ca bëgg di ko fàttaliku rek di ko xool di wut na mu yokkoo nee du xaarul dara dara dara lu dul yàlla xañ ko ko rek ci benn mu rey ko wala mbugal musiba dugg ca yàlla xañ ko ko kam xaafilin wal ma naayaa fooqa jum jumihi law ya'lamul xayba xusnan taaha min laani bari na aji sàggan joo xam ne mu ngi noor ci sàgganam rek fekk dee ngi ko tiim ci kàngum boppam bu fekkoon ne xam na la xew kon dana am tiit dana ko rey war na ju am muy sàmm cër yi cër yi ko yàlla dénk yépp ndax cër bu ci nekk dafa jàkkaarloog bunt ca safara jàkkaarloog bunt it ci àjjana ndax ku moy safara rek àjjana nga jëm waxtu waa xamee ne cër bii bunt ba mu jàkkaarloog ci safara mooy nga ca boobu ca bunt ba mu jàkkaarloog ca safara ngay duggee loolu sëñ Tuubaa wax na ko soxbatu ahlil xayri ànd ak ñoo xam ne ñu danga leen di tànn waxoon naa ne xol dafa pare pour nu ko mel rek mu mele ni mel ne pat boobu ñu mooñ ba mu nooy weex tàll amul weneen melo amul benn form di nekk rek bërëb bi mu nekk la fa ne lam ko wàll meewoon naa bërëb bi nit ki ak ñim fi nekkal li fi sax ci suuf ak seen diggaale yi ak xew-xew yi xew ak li jokkale diggante suuf ak asamaan xew-xew yi jógee asamaan di wàcc ci suuf noonu bërëb bi mel nga xam ne yooyu yëpp ko ko melal béréb boobu nag moom rek mooy jëfandiku ci xol waxtu woo xamee ne aji yare aji yeete aji waare aji jubale taxawu fa noonu milieu boobu mel rek noonu la xol ba di mel tax na kon nit ki gannaaw moom milieu lu am solo la ci moom te mooy melal xol bi doomu aadama yi seen bopp ñoo war a fexe ba créer milieu boo xam ne mooy milieu mucc mooy milieu pexe mooy milieu njub buñ ko nekkalee ñoom ñëpp ñooy texe bu fekkee ne nag defuñu ko te xol buñ ko neenalee rek seytaane dal di dugg ndax ñaari bunt rek la am bunt bi mooy buntu leeru yàlla bunt bi mooy buntu bu seytaane waxtu woo xamee ne leeru yàlla duggul ba fees ko rek ndax xol mu ngi mel ne kaas bi faw nga def ci ndox wala jaww air bi dugg ci waxtu ci ndox nikku rek jaww a fees ndax du toog mukk te ñëw ci naka noonu xol du toog te dara ñëw ci faw bëgg yàlla nekk ci wala bëgg àdduna waxoon nañ ne bëgg àdduna ak bëgg yàlla ñu ngi mel ne ndox ak safara ni nga xamee ne ndox ak safara du ñu mën a bokk ci benn ndab te dara doxul seen diggante bëgg yàlla ba mat sëkk ak bëgg àdduna ba mat sëkk ñu noonu lañu ñu mel duñu mën a bokk mukk ci lenn ndëpp yàlla ak àdduna ñu ngi mel ne penku ak sowu loo gën a dox jëm penku gën a sori sowu loo gën a dox jëm sowu gën a sori penku itam gannaaw noonu la ñu mel nit ki te nu mu mel moo xol bi réew mi mu nekk yi fi xew ak yi fi am yépp nit ki moo ko ko nuy melal nit ki moo koy nuy melal moo li fi fekk nit ki war na defar kon béréb bi wala bu fekkee ne mënu koo defara ndax kenn la te ñu ci des ñëpp defaruñ ko muy tànn ñi nga xam ne ànd ak ñoom ñoo koy jëriñ te duñ ko lor muy tànn ñoo ñu farata la ci moom ndax suñu borom wax na ci alquran allazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum kanu qalu kunna mustadafina fil qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatawajiru fiha ulaika mu'minun wa sa'an masiran gaa ñi xam ne malaayka yi dañoo faat seeni roo ñu doon nit ñoo xam ne dañoo texe di ndax texe di giñ texee di ñu leen ëpp doole ëpp leen kattan ëpp leen man-man ñoo leen bés ba jaaral leen ci yoon wudul yoonu njub ñun leen yéen lii na mu leen dale ñu ne nun kat dañu nit ñu néew kattan néew doole ñu yóbbaale ñu ci nekk ñu leen xanaa suuf si yàlla si dafa yaatuwul woon ngeen gàddaay mu ne gaañooñu kat seenu dëkk mooy safara rek kon képp koo xam ne fi nga nekk mënuloo walbati bërëb bi ba jaarale ko ci yoonu jub war ngaa tànnal sa bopp béréb boo xam ne béréb bu njub nga dem fa bu ko defee nga mucc nee na adduna de kàkkator la rek moo kàkkator ñooyam melo yu dul jeex la am bis bu nekk ak meloom du sax mukk ci wenn melow bu la bégloo tey benn bis naqaral la ëllëg ñetti yoon waxtu woo xamee ne sell na senn saa dana nëx nangami saa waxtu wala reeloo benn yoon dana la jooyloo fukki yoon kon nag adduna du xarit du mbokk ndax amul xarit amul doom ndey te nit bànneex bu mu mën a am ci adduna lu mu bari bari lu mu texe texe ci adduna lu mu am am la ko neex lu mu bari la bari la bari la lu ko nit ñi jaamu jaamu jaamu bu moomoon lépp lu mu dajee lépp lu bëtam tegu moo ko moom itam tawati ndee bu ne yoxos ci moom balay sukaraate ñëw fàtte na bépp bànneex bu mu a jaar lépp fàtte na ko mel ni ne musul woon a am kon lépp lu mu sonn ci jëm ci yàlla daf cay bég rek waxtu wa accès tolloo waaye lépp lu mu jëmoon wala lépp lu mu defoon ci lu dul yàlla waxtu wa tolloo foofu rëccu ga dana wex nikkaani wexe nee kon fi gën a ñaw ci nit ñi gën a tedd ci nit ñi gën di noobal ci nit ñi mooy ki daw ngir musal diineem ndax nit kat bu nekkoon fii te xam ne alalam ji lu moom dañ koy nangu dana daw ngir bëgg a musal alalam diine nag moo gën a foor alal ndax alal fii rek la kon nag lépp lu nit di dawale daw daw di ko rawale diine ci gën a yell nee wax waxtu yoo xam ne gis nga boroom xam-xam mu lu trop ci àdduna na ko tuumaal ci sa diine lu mu la wax na ci am sikki sàkk nga xam ne yàlla warmaal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko mu di li ñuy wax démocratie démocratie boo xam ne dafay maasale ñëpp sàmm si arab si dañ daan def duñu mataan werante ci dara bëgg ku leen euh, atte bu ñu ci werante bi dañu toll fu ne ci gannaaw kër ga naan Muhammad génnal waaye atte ni Muhammad génnal atte ni di ko woo ci turam alquran daal dina indi li ñu naan bu nekk min waraa'il hujuraati aktharuhum laa yaqiluun walaw annahum sabaru hattaa taxruja ilayhim lakaana gaa ñi nga xam ne ñu ngi lay woo te gannaaw sa pàdd ñëpp ci ñoom de amuñu xel bu ñu ñoom da nga jëm lay mooy jëm ci ñoom waaye nag dañu xamul ndax yonent bi sallallahu soo xam ne kuñ war a wormaal na ndax wax nañ yëfër yi ne leen di seen bari bari bari bari këj moom nekk ci seen biir du ma leen alak na ma daan alak yi ñu njëkk ñëpp wa ma kaana allahu liyu'azzibahum وعن دفنهم وما كان الله معذبهم يستغفرون gannaaw Muhammad suñu borom ormaal na ko ba xeetam bi bu leen alak ci kaw suuf mu daan alakee yeneen xeet yi daan tooñ ak lu suuf mooy bari bari bari suñu borom ormaal na ko kon waxtu woo xamee ne jaam bi mu ngi waxtaan ak wax ak moom dafa war a suufeel baatam mooy wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun ngay wax ak moom mu ngay waxee sa moroom day tax sa jëf yàqu day yàq sa jëf yu baax yi nga jëfoon te dee ko yëpp kon fu ñu jàngee alquran wala ku ñu nodde wala fu yonent di wala koo xam ne mu ngi wax wax yonent mu ku fa nekk da nga war a déglu war a koo wax dara bokk na ci lii nekk sukuraat te bokk na ci mën a ndigal muy yokk safara ndax xuloo bu metti boobu bu tar boobu waa safara di xuloo nee nañ li koy waral mooy su ñuy waxee waxi yàlla duñ ko déglu suñu waxi nopplee sam waxi yonent bi duñ ko déglu ñooñu ci Ahmadu Bamba am na kum doon radiyallahu taala anhu am na jigéen bi mu doon waxtaana ba ñuy ñedd mu ne pat di ko déglu kooku dafay wax tontu ko mu defe dafa déglu li mu ko baamtu ñu ne pat ñu dellu ko baamtu bu mu ñetti yoon ba nodd ga daanoo mu ne ko déggoon na li nga doon wax waaye dañ doon nodd te ñu nodd ngay wax day métti ci kuraat mu ne ko hmm, ma teew nga wax ma ko bokk ndax ma noppi mu ne ko kon mu bokk ci te jaam bi war nay bàyyi xel toujours anam yi nga xam ne moom la loola yeewoo ci yàlla kon nag loolu lépp tax na nit ki war a wormaal lépp loo xam ne yàlla wormaal na ko te fii ci àdduna balaa dee wuru gannaaw jaar jaar yi yëpp dana ko jaari mu xaru mu xaroo bu àggee bis bu demee foofa waaw alquran nee na wa anibu ila rabbikum wa asbiru min qabli an yaatikum azaabun baxtatan wa antum laa tash'uruun an taqulu nafsun yaa hasratan alaa maa farraṭtu fii janbillaahi wa kuntu mina s-saahiriin aw taqulu law anna llaaha hadanii lakuntu mina l-muttaqiin aw taqulu hiina taraa al-azaaba law anna lii karratan fa akuuna mina l-muhsiniin alquran ne bale qad jaa'atka aayaatii fa kazzabta bihaa wa stakbarta wa kunta mina l-kaafiriin su borom nee na jaam ñi ne ngeen dellu ci yàlla te ngeen jébbal ko seen mbir yëpp bala ni la dikkal ci bat mbugal moo xam ne bu ñëwee doo ci gënu mukk bu ko roogee bakkan bu sàgganoon danga ne ah, woo naa sama perte man maa perte ci li ma sàggane ci wàllu yàlla perte bu rëy yi ñu dal ma mu ne bala ngeen ñëw na ngeen dellu ci seen borom ndax nee na fa amoon man taxawa asara alxayaat dunya fa inna aljahima hiya almawa képp koo xam ne daw nga nga fab sa adduna rek jiital ko gannaawal sa àllaaxira safaraw jaxiim mooy sa kër gis boobu te nit li ma waxoon ne xol bu feebar day dem ba ak waar dootu digg borom dootu ko sax waxtaanu yàlla dootu neex ci moom dootu sopp jàkka dootu sopp su ñuy waxtaane bu jëm ci yàlla dootu sopp jàng bu du sopp ziara ay bàmmeel du sopp dem ci waaju baax bu boobaa xol tawat na bu fekkee ne nag xol tawat na te kenn faju ko day mujj ci dee xol bu dee nag wal iyaadu billahi moo xol bu xomaat xomaat ba nga xam ne rëcc na léegi jëggal si ko dana wees balay àgg foofu bari na ay saafara yu ñu ko war a saafara bari na ay ndox yu ñu ko war a ragge waxtu wu tàmbalee tawat balay dee ndax xol bu dee ka nee ñu boo xamee ne xol ba ba rëngër na ba dee safar rek koy gindi noonu ko sëñ Tuubaa misaale woon ndax nee ñu jamono yi mu demee gànnaar te jóge woon ci géej gi te booba mu am benn bis mu xëy santaane ñoom ñëpp taxani xamuñu lu muy doyee matt bi ñu taxanlu di taxanlu ba matt bi bari ñu toog benn bis jant soog mu ne yóbbu leen ko ca dingëre ba léegi ko fa gën a yaatu kowe mu ne taal leen ko ñu taal ko dafa roñ lool ba fooy ko ñu ko fekk na boobu jamono boobu dañu daan tere ni ñu bari nañu di dem ba ñu tere ñuy dem gànnaar di ko fekki ndax bañ waa réew mi tubaab bu fekki ko amoon na nag jëmm yoo xam ne jógoon nañu jëm di ko siyaare ji ci mbir ba mu nekk ci gànnaar def nañu bëri réer waaye liñ séenee jénéer bi ñu jubal jénéer bi ne seede bu ñu fa àggee xëy na daan am xabaar ñu àggee fekk nag muy béréb ba mu nekk ñu fanaan su suba si bi ñu mu ñu toog ba mu yàgg mu ne leen mu ne leen def ba xam béréb bi ñu ne ko mun dee màkke dama réeroon waaye safara woowu ñu taaloon de moo ma gindi mu leen ndax mu képp ku réer safara lay gindi daga lañ ko jubloo daf leen di réer foofu ñuy waxe am lu mel ne wunuk ci néeg bi ñu nekk nekk ca kaw nga yow de wunuk la mu daal di koy dóor mu daanu buñ ko jëkkee ba nopp xoolaat ci ne ah ko a ci la dafa mën a wunk fekk na ba mu leen laajee na ngeen def ba kenn jàpp leen ci yoon terewuñ ngeen dafa ne nun day dañu ne nun day danoo wattu woon ay pàq ak ay faaraar même ay mbëri lamb mbir ñu léegi mbëri lamb yooyu daan ak saay waaye bu ñu ne ci yoonam ñu ko seetee ne ah ci kat dafa ñu waaye du unk ne leen ndax am lépp la ku la jaawaleen moom bu ko niru kon nag nit ki waxtu woo xam ne ne xolam feebar na war na góorgóorlu balaa àgg ci dee ndax bu dee dana rëcc mucc dana rëcc mucc mooy ku ñu wax lu ñu tuddee ku jàmm raw te loolu nag li koy indi mooy nuur nuur mooy fab sa bànneex rek jiital ko doo dellu gannaaw boo geesu mukk soo seetlu sa ëllëg sa xel du ca dem fu ko nekk rek yaa nga ca fu bànneex nekk yaa nga ca fu waxtaan nekk yaa nga ca fu mbirum àdduna bu mu doon rek yaa nga ca te doo dellu ci ba yedd sa borom sa bopp mukk wala nga jàjju sëñ bi nag nee na mooy yàlla ba mooy yàlla jeex bi ci gën a bon mooy di wowal xol di wowal xol mooy di fàttaloo nit ci yàlla mooy di ko gën a xërloo ci àdduna wala tool yi nga xam ne bu ci nekkee day fàtte julli fàtte lépp lu jëm ci yàlla loolu day daal di fëkk xolam daal di koy daar daar loo moom ko seet loola jeexul bu mu dem ci rek du mën a xalaat yàlla du xalaat leneen lu ci jëm loolu nag wattandiku ko bokk na ci béréb yi wax waxoon yi ñu war a wattandiku ak béréb yi nga xam ne moom la ñu war di dem di fa nekk ndax mbir mi day képp ku jàpp ne lu waris la waru nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na ci juróom ñii ni ngeen ci parasité balaa juróom ñee dikk ashababu qabla al harami nga dee ndaw am kàttan na nga farlu ci jaamu yàlla bala ngay ñëw kàttan bala ngay màggat ak saxaatu qabla sàqami bu nga amee wér na nga góorgóorlu farlu ci jaamu yàlla ndax nga am moo yóbbuloo ëllëg bala ngay tawat boo tawatee dootoo ko mën alxina qabla faqri bu fekkee ne am nga alal nga wut ci ngërëmal yàlla dimbali ci jaam ñi def ci yoonu yàlla bala ngay ñàkk boo feesee amul jot na nga fab sa tànk bépp def ko ci jaamu yàlla bala ngay ñàkk jot ñett juróomeel bi mooy di ngay dund nga góorgóorlu farlu ci jaamu yàlla balay dund dee jeex nga dee ndax alquran nee na man yaatu an dikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin képp woon gannaaw yàlla woon fàttaliku yàlla gannaaw woon turu yàlla gannaaw suñu borom nee na daanu la booleeg seytaane soo xam ne moom ngay lëkkool faw bu ko defee daf lay dëdd loo yoonu njub ba faw te da ngay jàpp ne yaa ngi ci njub ba keroog ngeen di jënd si ci man boo ko defee sa jëf ak seytaane su su ngeen la koowoon da naan leen asa neexoon ma sore yéen mu teel ko sore sow mi te fekk nii kon képp koo xam ne jëmuloo ci yàlla suñu borom dana la lëkkaleeg loo xam ne li ci loola ngay jëm loo xam ne loola day nekk sa bànneex moom sa xol jaral na lu nekk la mu jëm ci yàlla la leen yàlla jaral loola daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko ëpp bu ko defee loolee mooy moom sa ba faw te daf lay tàggale yàlla rek te doo ci xam dara ba keroog dee dikk bu keroog dee dikkee nga ne ci ko te kooku su mu toll day sib day gën a siba dee sib bu mu sib dee sib na dajeeg yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man karaha liqaa allahi karaha allahu liqaahu képp ku sib dajeeg yàlla yàlla sib na dajeeg yow ndax bépp waxtu woo xam ne dajeeg yàlla da ngay seet lu mere la rek te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan mandargay saa mandargay saa ma mandargay mujjub jamono te loolu lépp ñu ci jubluwoo nit ñi farlu te bañ a sàggan te ñu xam ne kat mbir mi lu tiis a tiis a tiis la te mbir mi kat laajul caaxaan ak ko woyofal waru la mbir yooyu bokkoon na ci li ndax masiix dajjaal dajjaal nag lu kéemaane la woon ndax dajjaal wala maa ngi ne du kenn kat loo xam ne lii day seen te seen yamul seen daf ci ba saa taxaw ñu defe ne ñu ngi ci dara fekk nit ñi ci dara ñu alku dajjaal moomu itteeloon na xalaatu yonent bi ak xolam ba daana ko faral di waxtaane di ci joxe ay misaal amoon na ku ñu wax saas ibnu ibnu sayad ibnu sayad moomu benn xale mu yowet la woon ñu woon na ci jamono bi même mooy dajjaal saas ibnu sayad bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa na ko mu dem benn bis ànd ak sidina Omar ak sidina Abdullah ibn Omar di ko wër ba fekk ko ci ay xale muy toog mu ngi war a am fukki at ak ñeent rek jëm fukki at ak juróom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doxe ko gannaaw di ko yot ba ak ci moom dóor ko ci gannaaw ñu loolu ne bërit wal batiku yonente bi ne ko ndax seede nga ne man maa yonente yàlla bu yónni ci jaam yi mu seet ni ko seede naa ne yaay yonente ummi yéni ummi yéni mooy arab yi mooy ci lettre yi ñu jànguñ ndax arab yi ñoom bu suñu amul téere bu jógee asamaan bu am yeneen ci indi jànguñu moo tax mu ne ko naa ne yaay yeneen ci maanaam arab maa yonent yonent laa mu ne ko naa yàlla ak ci yonentam ak ci téeréem waaw yow sa nan nga lay dikkale mu ne am naa ñaari waaye ñu lay dikkal wax katu dëgg ak seen mu ne dañ la yow dañ laa jaxase digg nii nëbbal naa leen dara mu ne la nëbbal lu mu ne ko huwa dux u ñu xabaatu laa ko xabi am nëbbal naa la dara lan la mu ne ko huwa dux dux lu xale ci ak duxaan maanaam saxaar parce que yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàpp ci xelam fartaqib yawma taati samaa bi duxaanin mubiin fugul ci sa xol bis ba asamaan si di saxaar di indi saxaar su su su biir su lëndëm bu seyaat ne ko saxaar mu ne ko ixfa falan tax di euh, tawrak perte nga boo wees mukk fi la yàlla yemale saa si ibnu saad yonent bi daal di koy won gannaaw sidna omar ne ko waaw teema rey ko yonent bi bu fekkee ne moom mooy dajjal yàlla xéeru la ci moom ñoo ko bu fekkee ne bu moom dara nga amul ci rey ko beneen bi mbirum ibnu saad di gën a foor di gën a yëkkatiku bu nit ki kéemaane di wax ay kéemtaan ak i xarbaax ak i kumpa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dem ci taxe ji mu nekk jaare ko gannaaw dina bu ci tàndarma yi ànd ak ñenn ci saxaaba yi bu xëyaat mu ngi ci wetu fi yaayam di togge dina def ñu ñu ñu di xam ne kenn xamul kenn dégguñu ko yonent bi sallallahu di làkku ci tàndarma yi di ko yor ba jub ko yaayam ne ko change na na ko ba bool mu dal ni bërët jëpp yonent wallahi law tarakat la ba la abana bu ko bàyyi woon léegi mbiram leer mu xëyaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge na fi saxaaba yi wute nañ ci ñu seet ndax mooy masix dajjal wala du moom wala bu fekkee ne dajjal la benn dajjal la ci dajjal yi waaye du masix dajjal bi tax di yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax am na ci saxaaba yi ko da nga gis Abdullah ibn Umar daan nañ jiñ ci yàlla ne ñu seet mooy dajjal benn bis ñu seet nga ànd ak benn waay di dem Abdullah Umar dajeeg ko Umar dajeeg moom bët bi ngir réy réy ba tegu ci jëbi ñu ko waaw sa sa bët bi kañ nga def nii ñu ko ah, xamu ko de xamuloo ko te mu nekk sa bopp ñu ko su yàlla mu def ko ci sa yet woowu noonu mu daal di jékki-jékki fiir ni mbaam di fiiroo mu xum nga raglu raglu boo xam ne Abdoulaye ibn Umar nee na ñi ma àndaloon nee na dóor naa ko li mu damm waaye man yëg na ci dara loolu yëg na ko mu daal di jékki-jékki ne da fees dell mbedd mi Abdoulaye ibnu Omar ñëw di ko nekk li Sayyidatuna Hafsa mu bokk moom la bàyyi doomu Sidna Omar di ko ah génnal ci waa ji mu seet ñu génnal ci moom génnal yonente bi daan wax de benn bis ibnu seet tuub léegi sama yowat ba moom tuub na benn bis mu jóge Makka ànd ak Sidna Abu Saïd al Xudri mu dox ba sonn ñu noppalu ci benn garab mu seet ne waaw ceewaay man daal nit ñi ma lakkal dëgg dëgg dëgg fu ma jaar ñu naan man dajjaal dajjaal dajjaal man léeg-léeg sax sama xel def naan naa yëg ci garab ba ca kaw ma takk bul ci sama baat takk ko ci garab gi rek daal di pendef sama bopp dee fu ma jaar rek ñu demoon te yéen yéen saaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku xadis yonent bi réeru yéen xadis yonent bi réeru leen moom ne woon na dajjaal ñëwut na tuub naa nee na dajjal du am doom man am naa doom nee na du dem Màkka du dem Madina te man maa ngi dëkk Madina maa ngi nii jëm Màkka ah waaye nag xam naa fu mu yendoo fu mu fanaan xam naa fu mu nekk de su ko yan lan nga dee moom ay sëtuloo kenn xamul lay doon dajjal nag xam nañu ñu teerat ci dajjal yi la bokk kon la woon xam ngeen ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak bépp yonent bu mu doon dañu xiroon ci lu gindi jaam yi rëylu lépp luy mën a réeral jàll ndax ñu mel noonu di def ay kéemtaan ak bu woote dara ñu mën a réeral ay nit lañu te Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itti woo woon ne jubug xeetam yi ba bokk na ci nekk ci Sahih Bukhari Muslim ne am na bis boo xam ne dafa julli suba ba noppi yéeg ci minbar bi jàmloog nit ñi di leen waar di waxtaan di waxtaan ba tisbaar jot mu wàcc ba mu julli tisbaar dellu si toogaat fa mu toogoon di wax di wax ba takkusaan yëpp mu dem julli ci takkusaan bu mu siwaat nee na keroog bis boobu képp kuy ñëw ci kaw suuf di doomu aadama di woote dara lu mat fukki nit topp la wala lu ko gën a yées wax na la wax sa turu ndey ak sa turu baay ak fa nga bëgg waaye gannaaw ñoom ay arab lañu xamuñu turu ajam bi mun ñoo jàpp ñun ñëpp mun ñu ko jàpp waaye xam la ne lépp lu fi xew ak képp ku fi woote te newuloo ci dëgg ba saa di taxaw keroog waxtaane na dajjal li mu wax ci masih dajjal bari na ba léegi ci li toll ulama yi am na ñoo xam ne ci seen gis-gis masih dajjal ñëw na nan la ñu gisee masih dajjal dajjal ne lañ waxoon ci moom ne yëpp dañ ko dañ ko yonent waxoon ci ñoom dañ ko taawil dañoo xam ne ñi nga xam ne yonent bi salaatu la newoon na yahut lay doon te duñu ko dul yahut yi ak seen pexe ak kattan bi ñu am ak ni ñu bañ a diine ak seen plan yi ñu tëral fas yéene téye adduna ci kenn loxo léegi dajjal bu keroogee day yiif adduna bépp ame ci loxoom ajjanaan ak safaraan ku ko mooy mu dugal la ci safaraan ku ko topp mu dugal la ci ajjanaan ñaari malaaka lay àndal bu waxee bu wootee ne moom mooy buuru dëgg bi bi xam ne amul benn buur bu dul moom ñii malaaka ne fen nga ñii wax nga dëgg dana wër mbooleem pàcc suuf yi fu dul Màkka ak Madina ñeent guddi la fay am dana am gis boo xam ne day mat at tolloo na yàggaayu at am boo xam ne yàggaayu weer am boo xam ne yàggaayu semaine am boo xam ne ci des bis yi ci des ne bis yi rek lay toll ci yenn ulama wuy taawil ne yawut yi la yawut yi ñoom ñoom noonoo dëkk borom téere boo xam ne du ñoom jàpp ne ñoom ñooy Cheikh Abdoulaye Muxtar le peuple élu de Dieu te loolu ñu woote dara du ci dëgg ci kaw loolu gëm nit ñi ñoo war a téye adduna bépp ndax ñoom ñoo jàpp nañu ñoo gën a ñor ci xel ñoo gën a wér ci kàttan ñoo ëpp njàmbaar ñoo ëpp xam-xam ñoo gën a xereñ ñoo gën a mën a settantal jëfandiku ñoo gën a mën a dugg ak génn ñoo gën a mën a lal ay pexe ba mag ci seen i xalaat yu bari yëpp yu ñu lalal pour fexeel doomu aadama ngir bëgg a téye adduna def ko lépp muy seen moomeel réew mu ñu dem fexe ba assimilé ci ñooña bokk ca élite réew mi bii politique yi gën a xóot bokk ca industriel yi gën a alale bii gérant yi nga xam ne ñoo géré banque yëpp bii def politique bokk ca professeurs yi xam ne ñoo gën a a jàngale bokk ci médecins yi bokk ci ñëpp ba xam ne ñooy formé congrès bi ñooy formé lépp li nga xam ne balay dara xew jaar ci ñoom ñu def ci conférence des sages de Sion ñu tëral seen yoon woo xam ne ci la ñuy jaar xeeb Hitler ni mu gisee woon te ni ñoom gis gis mooy race germanique bi ñu gisee woon ne ñoom it euh, rafet rafet yi nga xam ne maanaam gën la gën la ak ñu jàppe ne moo ne ci ñoom moom la jàppoon waaye na mu xalaate plan ba mu tëral ñoom xeeb nañ ko ñu teel xeeru maçonnisme nga loolu maçonnisme tëral xaat yoo xam ne yu bari ci biir la fexe ba yàq shabab bi maanaam jeunesse bi dégg nga inventé ay ay ay indi projet yoo xam ne ni ñu koy bëggale nit ñi fexe lépp loo xam ne day tardeel ñeneen ñi di yàq jeunesse bi moom nag ñuy avancé ca la dox ba ba ñu àgg fa nga xam ne bu ñu fa àggee nag doo sor a déclaré seen bopp ñoom nag ñooñu ñooy yahudi yi ñu nag ñu misaal bi yonent bi waxoon alayhi salaatu wasalaam ni boo xam ne day yàgg ne at bis bu yàggee ne weer bis bu yàgg ne semaine bis bu nga xam ne bis yi ci def yëpp mel na yenn bis yi ay étape dong la xam ne noonu la adduna di doxe ak li nga xam ne noonu la science ak civilisation occidentale di avancé ci découverte yeeg invention yi li nga xam ne dana am diggante boo xam ne ni ñu koy doxee bu ñu ko seetee ni ko yeneen ni ñu gën a yéex loo xam ne daanañ ko ci daana dox téeméeri at ci bu xam-xam jugee fii ba mu àgg fii ñoom ñu def ko ci weer wala ñu def ko ci menn at ba mu àgg mu di ay étapes yoo xam ne ci dañuy dem ba ba duñu mën a publier ne Amérique ci a ñooñu ak Maajuuj bi nga xam ne moom ñoom la alxuraan di wax di ne Yaajuuj yi yu bare bare yoo xam ne ñëpp ci ñi ko yonent bi ko américains yi daal di ne itam kon Maajuuj mooy européens yi loolu yëpp di ay yoo xam ne moom ndax yowet yi muy dajaal wala déet américain yi ñooy a dog wala européen yi ñooy maajuj wala déet mais gis nañu ay ñun gis nañu yàq-yàq yu bari yoo xam ne mënuñu jógee ci ñoom te war nañoo jël suñu ay préparation ngir ñu war cee mucc na nga xam ne bu dajaal ñëwoon dajaal nag dañu ne li tax ñu ne ñu misaale ñaari malaayka yi nii naan wax nga dëgg ñu naan fen nga ngir lëntal xeli nit ñi mooy malaayika mi naan fen nga mi naan wax nga dëgg ci naan ko fen nga la naan wax nga dëgg bu ko defee ku ko dégg defe ne dajjal la naan wax nga bëgg mooy ci misaal buñ demee ci science savant yi scientiste yi nga xam ne dañoo calculer ne ñoom bépp problème bu am ci adduna science mën na koo résoudre bu ñu ko mës a mënagul léegi daañu ko mës a mani nga xam ne moom lañu gëm xam ne amul mën lënt muy def lënt moo xam ne muy lijjanti ko gul tey dana lijjanti guddi ndax xam day màgg te day dem ba ba lijjanti mboolem lënt yi ci kaw suuf nangu nañ ne daanaka buñ seetee li ñu xamagun ci li ñu xamul li ñu xamagun du dara waaye ñu ngi séenu ne daañu dem ba ñu bari ñu man ko yoo xam ne nit ci def ko daan féetalee yàlla ne yàlla rek ko man ñu gis doomu aadama di ko def daañ gis ne ne daañu dem ba ñu daañu mën a soppandiku ci yuurub doomu aadama euh, sectionné ci benn partie boo xam ne luñ ko santati rek mu def ko mais daañu mën a dem ba nga xam ne dañuy sàkk mel ne yàpp léegi day dem ba mel ne carrière bu ñuy gas waxtu bu ñu gasee ba dindi ci li soxla bu ëllëgee mu màgg ba tolluwaat na mu tollu woon di fexe ba di bat boo xam ne dañuy rat muy màgg ñuy rat muy màgg di rat di fexe ba nga xam ne daañu mën a fexe nit koo xam ne kii jigéen ji du sukk jur ko nga dañ koy juree ne neen li ñu tuddee bébé nga ne yëpp science daf koy wax te yu bari yoo xam ne buñ ne dana am ñu dem ba mu am day nuru lëntal ci xol nit ñi ba nga xam ne ñu bari day dem ba mën na am seenu gëm ca wet jee daal di bëggoon ndëm mu mel ne ñuy tëlbis bi amoon ci ñaari malaayka yi kii naan wax nga bi kii naan fen nga mu jàpp noonu misaali masi dajjal jàpp noonu misaali yaa jëjëf maajooj bay mu dëppoo lépp dëppoo lii ba jullit ñi daal di gis ne kon ñi yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan wax naan waylun li sharrin qad iqtaraba waylun li ahlil taskare ñeel na arab ni wala jullit ñi ci ay woo xam ne mu di ñëw ne képp ku dund da nga gisi kéemtaan ñu féenoo ko yooyu le ñu ne kon bu yooyu yëpp amee gannaaw gis nañ ne sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu waxoon ne dana ñëw balay saa di taxaw yu ci bari gis nañ leen ni mu misaale woon essence gis nañ ko ni mu ko tuddee woon sax zahabul aswad or or noir moom la ko ñu ko di tuddee ni mu misaale woon oto yi ni mu misaale woon avion yi ni misaale woon rajo yooyu yëpp ni mu ko misaale woon nga xam ne yu ci bari ba mu koy wax ñu ñi xamuñu ko woon waaye bi loolu amee bi ñu ko seetee xam ne lii la doon wax gannaaw noonu ñu gisee woon yooyu leer na ne lépp lu mu wax it daañu ko gis lépp lu alxuraan wax it daañu ko gis ñu borom xam-xam yi daal di amum tiit tiit moom jóge ci yàqu-yàqu bopp mu ngi jóge fa kàttan gën a ëppee ak fa ñu gënoon a séenoo nit gën a ñor gën a ñaw ba gën a mën a wattandiku yàqu-yàqu yooyu ñu séenu ne fa la jóge kon nan lañ koy war a man a déggoo bu ñu nee jant bi dana fenk sow ñu ne déggewuñ ko lu dul ne la baaxoon nit ñi dañuy dem ba def ko muy la bon la xam nit dana ko rusa def la bonoon nit di ko caakaayoo wala di ko def lañ jublu ci jant bi dana fenk soowu ñu gis ne yonent bi li mu waxoon saa ngi gën a jege saa su taxaw li gën a jege nit ñi di gën a dë jublu adduna rek di gën a won gannaaw alaxira rek ba mu ne da gis ci nit ñi koo xam ne genn wetam dana dee ba wow waaye genn wet gi ci des du tax mu jajj mukk dellu si kon dara mënatu la delloo si nit ñi mu ne doomu aadama dana màggat te ñaari jikko lay màggataale du dañ ci moom mukk mooy xër ak mëbët yu bari doomu aadama day gannaaw góoram dara góor lu dul suuf day dem ba naan rabbi rji'uuni la'allii a'malu saalihan fiimaa taraktu yàlla ne kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yub'athuun day dem ba keroog mu rëcc naan suñu borom te nga maa delloo adduna bu keroogee danaa jëfe leneen lu bokkul ak li ma daawoon jëfe suñu borom ne kàllaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne doomu aadama yi ñi dee ba nekk ca bàmmeel ya li ñu gënoon a xemmem bu ñu leen ne woon wax leen lu leen gënal dañ naan dellu adduna bu doon benn minute day ngir man faa jëf jënn jëf ju baax jëna jëriñ mu ne xuliqa naasu xanafaa faqtaalatuhum shayaatiinu mu ma misaale woon xol ne amul wenn melo xelu xaleel amul wenn melo maanaam béréb bi mu nekk ak ñi muy nekkal ñoo koy def la mu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi dañ leen a bind ñu nekk ci diinul xaniif diina ji nga xam ne mooy diina naturel ji yàlla nangu waaye seytaane yi ñoo leen di yongaan ba jaaral leen yoon lu dëng mu ne lawla anna shayatina la yuxu la yaxumuuna ala qulub bani aadama la nazaru ila malakuti samawati wal ardi budul woon ne seytaane yiy féey ci kaw xoli doomu aadama yi budul woon ñoom doomu aadama yi dañuy janloog malakut mooy féey suñu borom bu sell bi nee na kon dañuy janloog moom waaw xam ay laaj rek boo xam na. lool mën nañ see sax fanaan waaye gannaaw am xalaat nañu ay laaj te laaj sa xëy na léeg-léeg moo gën a neex bu fekkee ne ñuy laaj laaj nañu lu am solo ndax exposé moom muy ñëw ci sa xel lépp doo ko mën a àggale yépp doo ko mën a leeral léeg-léeg mu bari bari boo xam ne da nga gaawantu waaye laaj yi bu fekkee ne boole nañ ko ci dana am solo ñu nu ko rek.

من النداء استعينوا عن هذه القضيه الواضح والهم بيرك شيء عرب waaw kay fakkaanu cheikh yaa wa ala tariq al hidayah kay fakkaanu rabbi yaa ngi amee kii ah, waaw mën mën waaw mën ngaa amee yëpp di ma di wax par benn waaw mën mën ngaa amee yëpp di ma wax par benn ki ko boobu ki ko bind ki ko bind tur bi waaw dama bëggoon a nga ñaanal ko mu yëwee ko ah waaw kan ci sall waaw waaw waaw waaw waaw ah, waaw tontu laaj sëñ Sam Mbakke ñaari bayit yi Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wax ci masaalikul jinaan mu ne man tafaqaha bila tasawufi وذو تفسق صريح فعرفه képp koo xam ne jàng xam-xamu fiq jëfe ko te laaluloo tasawuf kookale faasiq la bu wóor xamal loolu mu ne wa man yakun bi aksi daa fa innahu ila tazanduqin amalu sha'nahu koo xam ne nag safaanu lii nga mooy da ngaa jàng tasawuf xam ko jëfe ko te jànguloo fiq ila tazanduqin amalu sha'nu mu ne mbiram ñu ngi ko jàngal jëme ci zindiq zindiq ak faasiq nit ki nga xam ne fiqu na fekk fiqu fi bàyyi faasiq ci tasawuf te fiquwul mooy zindiq mu ko gën a woyof te loolu kon jot naa leeral ndax ki nga xam ne dafa jàng sa xeet yam ci te jàng sa sow wala mu xam sa jëfe ko to weddi ba ci tasawu faasix rek lañ ko wax maanaam rek saay saay soo xam ne di ko lañ jëf rek te ki nga xam dafa jàng tasawuf jëfe ko te wacc fekk fete moo duñ ko jëf ko jëf boo xam ne kon yéefar nga mu ne loolu naka la mën a amee ci wàcc fiq na mu te xam tasawuf ni mu gën a woyefee kii wàcc tasawuf te yem ci fiq mu ne lan mooy piréem sëñ Tuba daf ko wax ne axraja dal xukmu limaam Malik rahimahu wa radiya anhu Malik imaam Malik dafa ne woon wa man tafaqaha wa lam yatasawuf faqad tafassaqa wa man tasawafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa ki boole tasawuf ak fiq moom moo nit nga xam ne def na taxaqoq moom la sëñ Tuubaa wax ne fa huwa la wax xalahu an yu taba fiq mooy lan atte yi suñ boroom jaarale ci yonant bi teg ko jaam ñi mu di julli koor asaka aji ak jëpp atte boo xam ne bii sharia atte na ko waral ko jullit ñi mooy xam-xamu fiq nañuy attee sëy ak pese nañuy attee koor dog ak lépp lu ñuy fasante ak jëpp jëfi jaamu nañ koy defe mooy fiq mu ne ki xam fiq boobu jëfe ko te laalul dara ci tasawuf faasiq rek la faasiq lu tax ñu tuddee ko faasiq ndax du yéefar ndax nangu na dugg na ci lislam ndax fiq mooy lislaam iman mooy tawxid ixsaan la deful maanaam jëf ji nam war a rafet ca biir sekara ba moo ñëwul kon sharia ci boppam dootu dal ci kawam war koo rey wala mu war koo yedd ndax julli bu fekkee ne waxtu jot na nga fab ndox mu laab mën a laabal nga jàpp jublu penku sa yére laab place di laab nga suturaal sa awla awra julli matal ko boo sëlmalee donte bi nga kabaree ba bi ngay sëlmal sa xel a ngi ci àdduna sa xel a ngi ci leneen itam sharia ci boppam du la ne mukk julli woo julli waatal nangu nañ sa julli ci ñoom ulama yi waaye ahlu tasawuf ñoo naan la julli dafa war a delloo sa xol ci yàlla da nga war a teewlu sa boroom ci mboolem phase boo xam ne phase julli la muy bi nga sujjootee bi nga kàbbaree bi nga rukkoo bi ngay jàng alxuraan ak yëpp kon fiq ci boppam jëfi kaw yi rek la àtte kon ki nga xam ne jëf na jëfi kaw yi fiq mënatu ko ne yéefar nga tandis que ki nga xam ne nag nangu na tasawuf waaye jëfi fiq xamu ko wala nangu jëfiwu ko mooy julli googu jaaralewu ko ci kaw li nga xam ne noonu la ko séré a jaarale doonte gëm na yàlla it kooku dañu naan yéefar la dafa woote julli rek waaye ci la ndax weddi na li yàlla santaane maanaam nekkul ci lislaam ndax buñ ne tawxid mooy iman lislaam mooy fiq taw tasawuf mooy ihsaan waa dafa fab fiq te mooy islam wacc fële kooku lañ tuddee zindiq kon loolu moo tax sëñ bi wax ne képp koo xam ne fiq nga te tasawufoo faasiq nga waaye képp koo xam ne def nga safaanu loolu zindiq nga ñaareelu laaj bi mooy laaj dama taxale aarif ak aalim aarif hmm. ak aalim hmm. nga mhm. mhm. ak alim dañoo wuute li leen wuutele aarif alim mooy ki nga xam ne jàng na alquran jàng sharaay xam li ñu bind jàng fiq jàng tawxid di julli di woor yër téere yi gëm yàlla maandu ragal yàlla kooku mooy aalim xam-xam la am ak jëfe ko jaam la bu suñ borom fonk ndax dafa jub di jubal jaam yi ndax dafa leen di yee di leen xamal li yàlla wax ak yonant bi li mu digle ak li ñu tere aarif nag mooy ki xam yàlla aarif yeneen yoon la am li gën a bari ci jamono day nekk aalim ba noppi bu nekkee aalim ba noppi soobu yoonu tasawuf tasawuf sànq ci biir conférence bi doon naa wax ne ahlu tasawuf seen principe mooy nit ñaari jàmbur fi daje maanaam ñaari élément la roo ak yaram wax ne roo mooy béréb bu xam-xam ba mu duggagul ci yaram melo malaaka la amee ak xam ak bëgg yàlla ak jaamu ko ak bànneexoo leer yàlla mooy aw meloom aarif nit la koo xam ne ruuxam dafa not yaramam ba jox àtteb ruu bi mu jox ko yaram gi ni nga xamee ne nitu kese ki nga xam ne day lekk lam bëgg ba suur di naan lam bëgg ba màndi di dox ay soxlaam di wax ak nit ñi di def ni nit def noonu la ruuxa la ko yaramam ëppee doole ba tëj ko kaso ba du xam dara ci malakoot du xam dara ci ëllëg noonu la aarif bi nekk safaanam nga xam ne ruuxam dafa gën a am kàttan ndax daf ko gën a dimbali gën a sot yaram wi gën a leer ba di mën a nekk réceptacle di ci leeru yàlla di ca dugg leeru yàlla dañu wax ne xol bu setee ba set ba amatul benn gàkk dafa mel ne seetu lawxul mahfuus mooy alluwa nga xam ne ca la suñu borom bind ca la def lépp luy am ba ba saadi taxaw dafa mel ne seetu xam ngeen ñaari seetu bu ñu leen jàkkaarloo suwar yi nekk ci bi maanaam image yi nekk seetu bi day feeñ ci seetu bi xol nag gannaaw bu setee ba set ba set ci jaamu yàlla ak ragal yàlla ak tudd turu yàlla ak wéet day amee melow seetu woowu waaye ba tey attache terrestre yi moo koy xëcc jëmee ci àdduna ba di ko jox ay lëndëm lëndëm waaye attache yooyu waxtu wu woyefee wu doyadee ngir nelaw nga xam ne déggatul gisatul yi ko xëcc jëmee ci àdduna yëpp néew na doole xol bi day épanouir day wurul ko si maanaam secret xol bi day ko mu def mel ne seetu moom it seetu boobu janloog seetu loxo maf koy ko defee image ca nekk rafalati ci xol bi mu di ko gis suufi yoone yi dañuy dem ba wax koo xamee ne jaamu nañ suñu borom def jihaadu si ba àgg ci foo xam ne bu ñu wéetee dañuy takk seeni bët di tudd yàlla di sikkar fàtte àdduna duñu dégloo ci dara nekk ci béréb boo xam ne duñu dégg dara lu leen di mën a dégloo ci àdduna duñu wax ak kenn di sikkar di sikkar di sikkar bu yàggee baat bi nga xam ne moom la ñuy wax day mujj seen lamiñ mel ne mooy dawal boppam dootuñu ko yëg mujj day mel ne maanaam yi rek moo taxaw ci seen ci seen xel mu mel ne xam ne day mel ne dañuy jànloog maanaam yi ba mu yàgg day dal di jekki-jekki fatxu gi ñëw maanaam euh, almalakot dal di ubbiku dootuñu gisati ci mbiri adduna dara waaye mbiri malakot lépp la ñuy jànlool dañuy jànloog lawxul mahfuus di ko liir di jànloog ruux yi lan biyaa yi ak awliyaa yi ak malaayika yi di jànloog arasa kursi yi di jànloog yooyu yëpp aarif billahi noonu ki nga xam ne mooy aalim rek loolu wal aarif fawqa alim mooy ki nga xam ne jàng na wax yonent bi ak wax yàlla ba xam ko bu koy wax nag na ko yàlla xamee ak na ko yonent ba xamee du ko ni moo tax ñu ne la aggul fa mu waxee alim aggul fa mu waxee wax yàlla lay nettali ak wax yonent bi ak waxi beneen aarif boo xam ne moom aggul fa loola nekk xam ko rek la ci am jàng ko mën lañ koo nettali aarif nag la mu gis lépp mënu koo wax lii sañu koo wax lii ñemewu koo wax lii mënu koo wax moo tax ñu ne al aarif fawqa maa yaqul moom kawee na fa muy waxee arasında. bu am solo na wax boobu ah hmm. waaye ñun sant nañu laaj bi yëpp xam naa dafa yër tuuti ci tasawuf dafa yër aslëf ci ko boobu bu baax. ndax al lay laaj fanaaw maqaama la mu ne nan la mel ak kan moo cay àgg ak ki ca àgg lan moo di aw meloom ak nan lay def ba àgg ca maanaam al baat bi ci bopp mu ngi tekki ak jeex jeex ci yàlla nan la nit di jeexe ci yàlla bu ndikkee ci fànnu tasawuf mu tasawifoone yi dañoo tëral seen terminologie bopp maanaam seeni mustalahaat ay baat yoo xam ne moom la ñuy tuddee seen mbir nga xamee ne euh, muxaat yi maanaam ñi nga xam ne dañoo def seen spécialité ci grammaire ñuy tuddee ay sujet complément ci complément direct indirect yooyu la ak adverbe ñooñu itam seen fànn boobu nga xam ne mooy tasawuf noonu la ñu sàkk seen terminologie bopp ñu sàkk yoon woo xam ne ci la nit ki sóobu ba ba muy àgg yoon woowu sëñ Tuubaa misaal na ko ci xoqal bu kaaw xoqal bu kaaw traduire nañ ko niñ ko Masaalikul naan boole leen ñoom ñaar képp ku ci jàng français bu baax eh, boo ko gisee da nga gis li ci sëñ Tuubaa wax yoon woowu dañ ko jàppe ne kuy tukki ñu seet yi war ci kuy tukki yépp ya muy war a am ñu seet kon kuy tukki jëm ci yàlla yi muy war a am yépp yi nga xam ne moom la aajowoo fa muy jaar nag ca jaara jaar jaar yooyu nag moom la ñu ay maqaama léegi boo dee tukki dëkk ba ngay jëm sori léeg-léeg nga am dëkk boo xam ne danga nga ca yendu ak dëkk boo xam ne da nga ca fanaan ak dëkk boo xam ne da nga fay romb yooyu la ñu tuddee ay maqaama moo di ay station yooyu nag ci ahlu tasawuf suñ tàmbalee nekk mubtadi ba ba ñu àgg ci tamkiin ba ñu àgg ci tamkiin nga xam ne fa la maqaama yi jeexee ay maqaamaat la maqaama yi sanaaw ci boppam mu ñu misaal ko sanaaw bu ñu ko bëggee misaal wax nañu ne euh, nit yi tasawuf ci bu soobee yoonu tasawuf am na lu ko tasawuf sant mooy bàyyi lépp luy àdduna bàyyi aada léegi mu ngi xiifal boppam ci koor xiifal gi muy xiifal boppam day lottal jëmm ji nga xam ne mooy yaram wi ngir di dimbali rooge lottal boobu mu koy lottal ci néewal lekkam néewal li nelawam néewal jaxasoo nit ñi bari tudd yàlla bari beru bari xalaat maanaam di wéet di xalaat yàlla bu saxee ci loolu war naa am ku koy wommat ki koy wommat moo koy def muraqaba maanaam moo koy suivre mu nga xam ne médecin bi noonu lay suivre malade bi bis bu ko yokkuloo li muy sikkar mu yokk ko bis bu ko wàññiloo mu wàññi bis bu ko noppaluloo mu noppalu bis bu ko santee jëf ndax day janloog xol bi xam yan ayiba ci nekk bu fekkee ne kii réew ko yàqal am na jëf ju mu koy sant joo xam ne mooy dindi rënk bu fekkente ne ci tayeel la am na jëf ju mu koy sant joo xam ne bu ko defee mooy dindi tayeel fekkee ne bëgg adduna la am na jëf ju mu koy sant joo xam ne mooy dindi ci moom bëgg adduna bi bu fekkente ne ci añaane ne ci moom am na lu mu koy def loo loo xam ne bu yàggee mooy dindi añaan ga wa lépp jëpp jàngoro joo xam ne jàngoro xol la ju doomu aadama di amee ki nga xam ne mooy cheikhul murabbi bi buy tërbiye nit ki ak gën ci xam bu ko nee jàkk rek fu mu dolli koo ko xam fu mu wàññi dana ko xam jàngoro ju ne ci moom dana ko xam dana xam la koy dindi bu ko defee daf ko koy sant mu def ko moom murid boobu maanaam taalibi boobu nekk ci yoon tasawuf nekk ak sëriñ boobu mu di ko teqantal day dem di xam ne xam nga am na lu mu tuddee alxalwatu ak aljalwa dafay am jamono yoo xam ne daf koy sant wéet weet la ñu tuddee alxalwa wéet mooy njéewal ay relation ak nit ñi mooy rompre itam ay attache terrestre am moo koy taxa itam euh, def am familiarité ak yàlla suñu borom tabaraka wa taala ndax dañuy wax jekkeyaaleeg yàlla mooy lan mooy muraqaba mooy di ko fuglu ba mel ne yaa ngi jànloog moom loolu la ay séance nga ci am yu yàgg yoo xam ne yu bari da nga koy wéet te doo wax ak doomu aadama doo gis doomu aadama da ngay nekk ci foo xam ne fii yow rek a fay nekk tudd yàlla gi ngay tudd saxoo ko dañu wax ne ci ihya ulum diine euh, sëñ bi wax na ko ci masaalikul وقال في الإحياء خذ تبهيمي إن نهاية ثمار الدين في هذه الدنيا حصول المعرفة والأنس ذكرا بالإله فعرفة mu ne dawab meññetum diine ci adduna ji ci doomu aadama mooy xusulul maarifati xam yàlla ak wétlikoo ko mu ne xam yàlla ci yàgg koo xalaat yàgg wéet di xalaat nga koy amee wétlikoo yàlla itam ci yàgg tudd yàlla maanaam sikkar nga koy amee wukkul bu fekkee ne nekk na ci yooyu ba nga xam ne tàmm na ko ba tàmm ko ba nga xam ne dootu namm toog ak nit ñi dootu namm lekk ba suur dootu namm nelaw ba màndi yenn yu bari yëpp nga xam ne léegi aada jooju dañ na ci moom li ñu tuddee xarqul aada ci bi tarkil aada maanaam pour nga mën a xar baax faw nga bàyyi aada xar baax ci bàyyi baax da ngay bàyyi baax li nu ñi baaxoo da koy bàyyi di def wut sa beneen baax moo tax ñu ne balay kenn àgg foofu day judduwaat judduwaat mooy léegi da ngay judd beneen juddu mooy yaa ngi dund yeneen façon mu dundin di jëfe yeneen façon mu jëfin am yeneen i àndaale am yeneen i wéttilikoo waaye yu bokkul ak yi nga xam ne moom la nga amoon yu bokkul ak yi nga xam ne moom la nit ñi amee loolu boo ci demee da dem ba nga xam ne ba nga mujj dara dootu la saf lu dul yàlla yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na am na waxtu woo xamee ne amul dara lu ma ca mën a eh, xajoo lu dul yàlla nit ki day dem ba dootu xajoo dara dara dara lu yàlla foofu nag am na ñetti étape yoo xam ne mooy yu gën a gàtt buñ ko misaalee mooy ilmul yaqin ilmul yaqin xaqul yaqin ilmul yaqin ci misaal moom la njëkk a jaar ilmul yaqin ci misaal mooy mu mel ne tey nit ki wax nañ ko suukar ne ko lu weex la lu mel ne daj lay doon dafa neex ci gémmiñ boo ko defee ci ndox mu seey ba wax la melay suukar yëpp ba mu daj nga xamee ko noonu waaye mosuloo gis suukar kooku mooy ilmul yaqin wala ñu ne la safara dafay leer dangay ngay indi lu ne lu mel ne bant moom lay tàkkal waxtu wu gisatul lu mu taal day fay dafa tàng ñii la mel ñii la mel ba nga xam ne xam nga ay melam yëpp waaye gisuloo ko kooku mooy ilmul yaqin ilmul yaqin boo ci àggee mooy léegi suukar suñ la doon wax dem nga ba gis ko mos nga ko ba mu saf la nga xool ko gis ne dafa weex nga làmb ko gis ni mu dëgëre mooy safar wow dem nga ba tiim ko gis ni mu leere nga laal ko sa loxo mu lakk la nga xam ni mu mel kooku mooy xaqul yaqin da nga weesu foofu da nga dem ba ci mu kooku mooy aynul euh, yaqin xaqul yaqin boo ci àggee mu mel na tey ci safara wi dañ laa fab sànni li ci cébb bi safara wi tàkk safara féete la kaw féete la suuf féete la ndeyjoor féete la càmmoñ féete la kanam féete la gannaaw foo làmb doo daj lu xool doo gis lu wala ñu sànni la ci géej gi ndox mi féete la wet nekk foo xool doo gis ndox loo làmb doo daj lu dul ndox kooku mooy fanaaw ki nga xam ne dem na ba gisatul mu ne fi gisatul dara nga xam ne nuut ci nuur ci ci géej gi ni mu ci labee nga xam ne boo ko laajoon looy loo daj mu ne la ndox loo xam mu ne la ndox lu ne ci sa kaw mu ne la ndox lu la tëye mu ne la ndox ana lu dox sa digg nit ñi nga ndox dootoo gis dara lu dul ndox mooy fanaaw fanaaw mooy ki nga xam ne àgg na ci bu mosatee suukar du saf dara bu mosatee kaari du saf dara bu fabee loxoom teg ko ci safara du ko lakk lu mu ci saf dootu dootu ci fanaaw bu yàggee ci fanaaw xam ne moo ko féete kaw bu weesoo fanaaw mooy bu yàggee ci fanaaw bi yàgg ci bi yàgg ci yàgg ci ba nga xam ne nit ki dafa miin ndox mi ba mel ne jën léegi nga xam ne nekk gi mu nekk ci biir ndox mi du tax muy fët-fëti du tax mu tëlee noyyi du ko indil benn coono du ko indil ak gêne du ko rey du ko ne bu génne ndox mi sax daal di am fit na dootu bëgg dootu dellu ci ndox mi kooku mooy tamkiin tamkiin nag moo nekk te gannaaw fannaaw tamkiin nag fekk mu ngi amee ci mushahada mushahada mooy feeñ boo xam ne yàlla dafa koo feeñe sa sens yëpp ba sa sens yëpp gisandoo ko ba sa karaw bopp ak sa karaw yi yaram yëpp mooy déggandoo li muy wax gisandoo ko yëgandoo lépp ba nga xam ne attanatoo ko nga àgg nga dem ci fanaaw boo demee ba tàmm ko ba miin ko ba familiarisé moom ba nga xam ne dugg ak génn ak dara dootu gis ñu misaale ko zalixa zalixa mooy bi nga xam ne yonent yàlla euh, yusufa alayhi salaatu jéem a sàkk noonu bi nga xamee ne dañ euh, dafa dañ koo jàpp yóbbu wis fa ci kaso bi te fekk bi ñu ko daataan yóbbu nit ñi di ko mbamb di ko mbamb ñu bëgg a wan nañ ne wis fa ñu ñu kéemaanee ñi nga xam ne ñi ñoo may mbamb buñ gisoon ni ma ko gisee daañu def lu raw li ma mu daal di invité jigéen ñëpp ci ci dëkk bi bu ñu leen invité daal di leen reyal ay nag daal di nag fees indil leen yàpp yi ñu war a dagg ak a togg yooyu ñu jekk ba nga xam ne ñu ngi toll ci diggante bi nga xam ne ñu ngi préparé togg yi mu génne yoon ci yàlla Yuusufa bu mu génnee bi ñu ko gisee rek di ko xool ci nag dagg sa war ngeen lii ngeen ma doon critiqué ñu nag moom Zalixa ci boppam moom gis ko ba xam ne yàqalatu ko dara teewul mu ngi observé ñi ci def mais ñi nga xam ne ñu ngi a gis nga xam ne gis nañ ko ba fàtte nañ misaalum fanaaw nga xam ne fanaaw kon mooy nga xam ne dem na ba yëgatul dara mu ngi toll ci tawat te wéragul deegul mu ngi nekk diggante dund ak dee moo tax ñu ne aarif laa yemut fiha wala yaxya dafa mel ne ko dundul deewul nga xam ne dem na ba tàmm loolu ba dellu si yem nit ñi tepp di yëg li nit ñi di xam li nit ñi xam di wax ak nit ñi mel ni nit ñi mel te li ci biiram ngi ci biiram familiarité nag yàlla ba nga xam ne waxtu wu ko neexee gisee moom waxtu wu ko neexee wax moom jéeyaaleen moom waxtu wu ko neexee dem ci malakot bu waxtu wu ko neexee dellu ci ci mulk kooku mooy ki toll ci tamkiin tamkiin mooy nga xam ne الله خير جزائه laaj bu kéemaani la sëñ Touba nan lay yare ñi topp ci moom ci yoon nan di jaarale ci yoon njub waa ah, laaj la boo xam ne mu mel ne géej gi océan nga bëgg koo tànq wund wu nekk am na na muy tojee boppu janax nee ñëw kenn bokk li wala sa moroom la Cheikh Ahmadou Bamba kaamil la dañu ne al kaamilu man laa yutfi u nuuru maarifatihi noora wariihi kaamil mooy ki nga xam ne xam gi mu xam sañ-sañ bi mu bi mu am du tax loolu néewal doole ak moom ak jaaram gi mu jaar ci sharia ak jaar gi mu jaar ci yoon Cheikh amatu Bamba dafa mat matale aw definam mat ni sëñ Maxtaar Njaay doon waxee léegi xam xamle na ne képp ku ànd ak moom digal na la nga xam lu say farata ak say sunna te di ko jëfe wane ne moom itam ci boppam warlu na ne dana bind ay dana taalif ay téere yoo xam ne loolu lépp lu ngeen aajo xam war koo jëfe dana ko ca def teewul amoon na ay kuréel sakkoon na ñoo xam ne ñii dañuy daan jàngale alquran dañu ni ki sëñ daam abdourahman loo ak ñoo xam ne dañ daan jàngale xam-xam ni ki sëñ ibra faati sàkk itam ay daara yoo xam ne ñuy tërbiyewu di takk der la ca yomb ñu seet ñi mu jaarale ci yoon ñëpp jaaralewu leen ci wenn yoon wenn yoon woo xam ne ñëpp a ko bokk déedéet mo limaamul eh, xasaali yi nee na ni la leere ne benn docteur bu fukki malaat ñëwoon ci moom di faju mu seet ñoom ñëpp ñu bokk benn feebar mu boole leen benn faj ñii daañu wér ñii duñu wér ñii seen tawat dana yokku ndax bokk gi ñu bokk jenn jàngoro teewul war na seet seeni âge seet seeni deret seet ku ci amee tàngat ak ku ci amee sedd seet ku ci nekk ak sa tempérament seet ku ci bari mën a lekk trop ak ku mun ku bariwul lekk ku néew doole ku am doole yooyu ñëpp war na ko seet rawatina nag bu seeni jàngoro bokkul te taalibe yi bokkuñu ay jàngoro jàngoro yu du jeex la ñu amee kenn ku ci nekk ak nam la faje mooy na nga xam ne noonu la la war a faje waxoon na ne ali euh, arif bu nekk wala wali bu nekk suñ boroom dafa tan ñam lay booleel ci azal daana wax ci conférence ndax lenn lu ci nekk ñenn ñi nga xam ne am nañu garaat booba wala bu te waxuñu ko bu amee kenn ci ñoom ku ko wax waxaale na ñëpp foofu Euh, limaamu bi bnu Abdullahi Tustari nee na mu ngi fàttaliku keroog yow ma alastu ba suñu borom bindee roo yi te bindagul jaam ñi te tën aadama te ne leen alastu bi rabbikum nee na bis boobu mi ngi koy fàttaliku fàttaliku bu leer nee na keroog la ko suñ borom xamal ay taalibeem bis booba la tàmbali di leen nemmiku di leen tërbiya ñuy wàcc ci seeni maam ba ma ñuy ñëw ci seen ndey ba ma ñuy ñëw ci àdduna Cheikh Abdul Wahab Sha'rani nee na su borom xamal ne ko ñi aju ci moom ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa kër kenn ku ci nekk ba ba saadi taxaw xam na sa turu ndey ak sa turu baay ñooñu le li si Ahmadou Bamba wax waxuñu ko ndax jàngal wa innahu la kitaabun azizun xasida googu boo ko jàngee danga gis ne moom dafa am loo xam ne ñëpp la ko boole képp ku aju ci moom te mu nangu sag aju ak ñi nga xam ne dañoo aajowoo ab dox jëm ndax ñi ñëw dañoo bari ñii àjjana rek lañuy wut si xëy na suñu borom sampaloon na leen ab jëtt ca ci lañ naroon jëm bu dul woon moom duñ dem àjjana ni mu ko waxee ak ñoo xam ne ba leen suñu borom bindee àjjanaa taxoon waaye dañuy wut ay maqaama ci yàlla moo leen fa indi ak ñoo xam ne suñu borom ba mu leen bindee la leen matal mu xam ne benn jaam lay indi ci àdduna boole lépp ci moom ba mu jógee mu soobee indi keneen moo leen fa indi kenn ku ci nekk sëñ Tuubaa la mu gis leen teeg yow mooy la mu war a gis leen teeg yow koo ci xam ni kii ndax moom ba mu waxee ne képp bi kulli man bi taxallaqa naja min qadari dunya wa fi yawmi naja la waxoon loo xam ne lii dafa maasale maasale boobu moo di texe texe gi moom dafa wax na ñëpp képp ku aju ci moom rek bokk nga ca dugg nga ca biir wax na ko ba tàyyi waxin yu bare bare bare bi mu waxee ne zimaamul wara asri la dallaay fi yadi wa maa rumtuhu min malikin qaada bil hani gannaaw suñu borom teg na nosu bindeef yëpp ci sama loxo te lépp lu ma sàkku moom mu jàppandi a sàkku ci moom ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu njëkk a sàkku ci boromam mu di mu yërëm xeetam wi noonu la sëñ Tuubaa njëkk a sàkkoo ci euh, suñu borom tabaraka wa taala mu yërëm taalibe yi gannaaw loolu koo ci xam ne kii da nga ñëw te yow seet na sa jàngoro yalwaan mooy toroxlu moo lay setal ba nga set ndax réy na ci yow wala ak ceddo la lay sant képp koo ci xam ne kii liggéey moo la mën a moo mën a faxas li nekk ci yow daf lay liggéey koo ci xam ne nag dafa xam ne yow mii nitu tasawuf nga nitu maanaam nitu yàlla nga wali ab wilaay nga amee day seet la nga xam ne moo doon sam ñag mu ñaggi ko teg la ca yoon wa nga jaar kon kenn ku ci nekk na mu jëflante yow du bokk ak na mu jëflante ka ca des loolu moo tax ñu ne ñi nga xamee ne euh, noonu la bare taalibe yi noonu la seen mbir wuutee noonu la maanaam euh, façon yi mu amee maanaam euh, jëf yi muy jëfe texe texe yi muy texe yi mu am maanaam xeeti yoon yi muy jaarale xeeti yoon yi noonu a ñu bare ni nga xam ne noonu la taalib bi bare noonu la bare ba taalib bi bu ci nekk yoon wam la jaarale mën naa wuutaleeg wuuteeg ba nga xam ne ci la jaarale sa morom te yoon ya du jeex te bu ñeneen ñëwoon itam ndax yoon wa mu jaaral nit ñi bokkul rek yi mu jaarale jinne nit ñi waxtaan waaw waxtaan nañu waaw waxtaan nañu gëmug yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxtaane gëmug sidna abubakar siddiq waxtaane gëmu awliya yi wax ne as siddiqiyatul uzma mooy maqaam bi nga xam ne ci ngëm mooy nekk moo nekk diggante maanaam digganteem ak nubuwatu tashriix maqaam fard rek fa nekk fard maqaam la boo xam ne fa nubuwa taxaw maanaam fa yonent taxaw la taxaw waaye kenn yónnuñu ko ci jaam yi ngir ngànt wala ngir sabab benn ngir Muhammad jiitu na ko alayhi salaatu wa salaam as-siddiqiyatul uzma ci boppam as-siddiqiya rek maqaama bu kawe la tax dañu ne boo tomb bi mooy iman nga rëdd wërale ko rëdd yi ko wër mooy salaax nga rëdd wërale rëdd woowu rëdd woowu moo tudd wilaaya wilaaya nga ko mooy siddiqiya siddiqiya boo rëdd wërale ko mooy nubuwa moo di yonent xam ne kon gëmu wilaaya fa mu yem yonent rek fa tàmbalee moo foofu la yonent tàmbalee ndax yonent dafa bokk ak bi wilaaya bi ba noppi nag am nubuwa boole ci risaala foofu la seen farq seen wuute dawe bu fekkee ne danga nga bëgg misaal ci adduna ci ñu jëfe boo seetee siira Cheikh Ahmadou Bamba da gis ci jaar-jaaram ne li ñuy wax siddiqiya mooy ngëm goo xam ne dara mënu koo féete xàmmewoo mu neex ak lu naqari te adduna bépp buñ daje woon di la fexeel moom adduna bépp buñ dajee woon di fexeelu la neex nga yemale képp mu bàyyi la yow dong ak adduna bépp ànd ak ñu wër la nga yemale képp képp doo leen xàmmee ngëm siddiq ak ngëmug yonent bu fekkoon ni ci misaal dañu koo lakk dañ koo rey lekk ko rukk ko ba mu nooy ñu jëri doom ba ku am basira dana dégg mu naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax seen ngëm dafa jaxasoog seen yàpp ak seen deret ak seen yàq dara mënu koo tàggalee ñoom foofu la ngëm mën a yem kon xaayatul imaan yi mooy imaanu Cheikh Ahmadou Bamba ndax maqaama yu jéggi yëpp tànn na ci abdullahi ak xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam foofu nag la la mën a yem kenn dara mënu koo weese. maanaam mooy misaalu suñu borom nag moo ko ba mu demee ci géej gi ba at mu jëriñ téyéen maama Chérif naa bi kanam suñu borom nangu na ko te lépp ku koy jàng loo si jublu rek ko ci am te ak texe ku ci sax la ko tàmbalee nag ca at mooma maama Chérif naa bi kanam ba mu fi jógee suñu borom wàcce na ko ci liggéey xel xalaatul tuyaabay jàng xasida yooyu ndax wax na ne parce que faana ilaahi yi googu rek taxaw na taxawaayu xeex xare yi rasulullah sallallahu alayhi wa xare yëpp nga ànd ak moom gannaaw bu ñu fi jógee képp ku xare ci yoonu lislaam nga ànd ak moom taxaw na taxawaay ak mboolem jaamu yi jaamu yàlla yëpp taxaw na taxawaay ci tuyaat kon parce que mu mujj dund doy waar la mu ñoom tam ñoo gën a doy waar yëpp loolu moo tax mu ne suñu borom jox na ko barkab alxuraan ak barkab xam-xam yëpp dugalal ko ci njàngale yi muy jàngale te mooy xasida yi nee na ila tawali fi yaqudu llahu la ilaha illa boo ci la ilaha illa llahu xel mënu koo xalaat bari na ko ko liggéey ba texe ci texeel ci ay gaay te àgguloo ci jëm secret ba dëkk nee na nag la ilaha illa llahu xam ne mooy gën ci lépp lu bawoo ci lépp lu doomu aadama wax mooy li ci gën a màgg nee na suñu borom fap na ko dugal ko ci taali ñu xasida yi ilaa tawaali fi yaqulu llahu asraara laa ilaha illallah nasa lii wala sa mi niyen sa wa ina ni bi xabar moom nee na suñu borom nocc na loolu jox ma ko te du ko nangu du ko jële ci man mukk ba faw ci sama ngoomeel a nekk te nee na suñu na may kaaraange boo xam ne damay aar képp ku làpp ci man ba mel na mbugal wala dara lu ñaaw bu jëm ci yow te man may buur waay nee na loolu nag ngëneel ak yàlla loo xam ne suñu borom daf koy jox di ko soob te man maa ko soob mu jox ma ko moom moo ne ma ci wooteel ñu jébbalu ci ndax ki nga xam ne suñu borom a ko sant ne ko wal jaam ñu jébbalu ci yow yaay buntu texe bi nga xam ne boo nëbbee sa bopp bu keroogee ñu waroon a texe ci yow da nga laay ak ñoom te kon daañu la yooyu nit bu fekkente ne xam-xamam dafa bëri moo amagul wilaaya àgg fu nekk te àggul ci am ndigalal woo nit ñi jébbalu ci yow ñu féete yow àgguloo it ci suñu boom xamal la ne la am nga képp ku la topp ëllëg am nga añam boo ko añale bépp jaam boo gàllankoor ba wutiwul loolu feneen bu keroogee da ngeen layoon te dana la yëy ndax lépp loo xam ne lii gor kenn moomul kenn jënd ko aw am la mu jox la ko ngir lépp te loolee mu tax mu jox la ko nekkul ci yow riba nga lekk te kaw yomal xiyaam da nga ko fa delloo te bu keroogee da nga ko booleeg paraxte yoo xam ne dara ci adduna jëru ko ndax waxuma la àgg ci foofu waaye àgg ci martaba li ñuy wax cheikh tax cheikh dara nañuy cheikh am dañu leen tuddee cheikh rek maanaam am na ñu ngërëm léegi mën nañu ku war a defal dara sëriñ bi sëriñ bi dina la la nga defal li nga mën a defal defal ko ci jiw boole la moom toppal ci moom waaye cheikh ci bopp martaba la boo xam ne bu naqaree àgg taxul tax ba tey moom it mu àgg ca loola waaye cheikh rek charte yi ñu ci wax yu doy kéemaan la ndax nee ku toog ci garab ak nu garab ga mën a toll xamuloo xob ya buñ la ko woowee nga wuyoo ko it doonuloo ko boo xamul na reen ya toll buñ la ko woowee nga wuyoo ko it doonuloo ko boo mënu la àtte ak foo toll jën ngay xeex ci ngay xeex ci géej gi foo toll ak foo mën a ko doonuloo ko te gannaaw jaam bu nekk da nga toll juróomi bërëb yoo xam ne doo xalaatati doo talati dara lu dul sa bopp da nga ne yàlla yow doo nga la bindoon ndax enquête bu ñu lay enquête ba lu toll ne bën bëriku te lu toll ne zarra du def duñ la baal dara bu fekkee ne bëgg nga caa boole xaq beneen jaam boo xam ne jëflante woon ak yow loo xam ne lii la taxaw mu di ko jëflante yow nekkul ci yow benn bu dee rafet njort tax wala xam-xam bu bëree tax. wala ak juba tax lu mu si ku daan wax naan yomal xëy am jàppante téere baat dana bari ndax am pay jafe na lu jafe na kon nag mooy li nga wax ne ab taalibe du alal képp ko def alal xamuloo luy diggante taalibe ak sëriñ ab yan la bu diir bu fekkee ne mën na ko parce que borom xamal ko ko boobu moom lu ko leer la suñ tubaab wax na ci tuuti ci masaliku dinaa suñu wax ci jikko yi nga xam ne mooy jikkoy zahir rek ci ki nga xam ne amee na meloy sëriñ lu yàgg yàgg ci ñëw ci moom ak ci dem lay male képp di ko itteel mooy kii na aajoom faju na mbirum jub rek waaye bu fekkonte ne daf koo war wala mu jébul ci moom xaj wala mu tooñ ko it li ko itteel na jub ak fu mu ko mën a amee bu fekkee ne jub yàlla jubali na mbirum te mu jaaree ko ci keneen ku dul moom na na mu ko doon neexe bu ko bu bu jaare woon ci loxo noonu lay mel ñoom moom lay lay yemale képp kon nag yow man xalaat mbir mu tiis la mu mat a xalaat la gannaaw nit ki ci boppam ak foo farloo mën a àgg ak ku ragal yàlla mën a àgg xatar yooyu ñu waxoon dana ci jaar bu fekkente ne boole na ci mu yóbbaale keneen bu keroogee ba badaalum min allahi maa lam yakunu yaxtasibuuna dana bari ñoo xam ne aaya ji dana dëpp seen kaw keroog de ndax yàlla duggul dara mu neen te su mu dagganale ñàkku gor gor koo jëndul juduloo ko ci loo xam ne bii ngir yàlla tax na fekk la mu jot yow lépp nekk bu ci bu fekkee nag mbooloo mu bari yow jàppe nga ko ne léegi alal la nga fexe ba dajale ay mbooloo ñu topp ci yow nga di leen liggéey loolu di lekk seen ñaq te sasuloo ci ku ku tax ku ko mën yow ci sa ko wala da koo wujje wala loo ko mën a def daañu jàpp seen xàq ci yow xaw ma dana jaxaj xaw ma du jaxaj waaye yomal xiyaam képp koo ameel xàq bu sa tuyaaba matewul xàq ja nga ko ameel ñu njëkkati ko jox ko daañu fab ci bàkkaaram lu toll ne li nga xam ne moom nga ko ameel dëgg la ko moom nag dafa bëgg a xamle ne ñaa ji ci moom njaayante la jaayante suñu borom boo xam ne suñu borom jënd na ko te dootu ko xaj mukk xamal na ko ne képp koo xam ne kii ànd nga baal naa ko te aji texe lay doon te du gis lor fii di ko gis fële fële ëllëg loolu moo tax mu ne faaza muridun qaadahu llahu ila taalluqin biya wa yahwa bil ila bépp murid boo xam ne suñu borom womat na ko ba mu aju man suñu borom defal na ko texe te suñu borom téral na ko cër bu màgg cërub leer faasa muridun lam yaman la ñun ñii bi maa bii yaxul fa xayra man bépp murid boo xam ne bëgg na ma ba du yokkat ci man mu jaral naa ko lu nekk kooku yàlla yéene dexe la ak dexe lañ ko defal ndax di ko fàttaliku rek dana dundal xol te dana jegeel nit yàlla te dina ko soreel safara dina ko sori jëpp ay te waxuma la gis ko waaye gis ku mu defar ba mel na mu war a mel rek yëkkatiku la loolu moo tax mu wax nee na Fane muridun laaza bi bi maa yafuuq maa zannahu jaariya rafiq bépp murid boo xam ne aju nga ci man texe nga texe boo xam ne dana kawe sa njort la nga jox ci yàlla ci lu baax yàlla mi nga xam ne mooy sama aji dëkkaale nee na dafa doon ñaan suñu borom di ko woo yaa rabbi yaa rabbi ba suñu borom kon du ko ne ko bul ne yaa rabbi neel yaa jaari yow sama dëkkaale gi borom may na ko loolu ci unsu la ci féete ak man la mu jox ci yàlla lépp lu ko kawee lay am ndax loolu la ko yàlla yéene moo tax mu dajale ko man kullu muridin bi yelu bi yasadu wa innahu min allaza mubaadu bépp murid boo xam ne luur na ci man day texe rek ba faw mu te la wax day tax mu wax di kulli man bi yataxallaqa lépp daf ko wax waxu ko ngir wane boppam ndax adduna jaral ko ko adduna ci boppam li tegul muy dara kon du wax ngir dara di ñëw ci adduna lu tax mu wax ko it yërmandeem la pour xeet di jaam ñi te itam suñu borom a ko sant sañu koo bañ gisoon nañ ne Cheikh Ibrahima dafa xëy ne wax na wax ci kéemaane ni ñu ko suñu borom defal ba noppi waaye ba mu paree dafa ne wa maa qultu haada al qawla faxran wa innama atat ismu kay laa yajaluuna tariqati wax ji waxuma ko ngir puubarewu waaye suñu borom moom sant naa ko wax ndax ñu bañ a réere samaw yoon ndax ñu tàbbi ci jëriñu sëñ Tuuba bi mu naan zimaamul wala afri la si yédi umaam na min ñaari cin qaada bilhan yi dafay tegg yan bu ko yàlla yan moo di bi ko suñu borom xamalee ne naa la ngir màtt bopp man bu di nekk xadimu rasulillahi kooku rek boppam waxtaan wu yaatu la ndax lan mooy lan moo ko jagleel fan la jaar ba am ko nan la ko suñu borom jagleel wax gudda gudda gudd la waaye bi loolu lépp amee ba mu wan ko ne buntu mucc nga boo xam ne dama koo dama koo doxale sama diggante bindee ji bul nëbb sa bopp wax leen lii wax leen lii booba la wax loolu moo tax mu ne ko waafu kulli man alayya ankara inda ibtidaai wa nabila miskara képp koo xam ne kii weddi nga ma boo demee ba ca Màkka di wër Kaaba gay suñu borom du la ca sant yonent bi du la ca sant kon suñu borom ci boppam damoo na ma ci kanam gaañu baax loolu lu foore ngoog suñu borom damoo ci kanamu gaañu baax doy loolu moom ah xel mënu koo xalaat ah baaxaa bi yàllaawul kiraamal xorraaw bi baqaay yéen na bi yasara nit ñi daañu yéem naan ila yaqaat allahu maalam yëkkuni wala yëkkuni abada limu ki waaye lay itam doy na waar suñu borom defal na ma loo xam ne du ko defal ci bindee mukk fii bu tasaay di taxaw lu ne xaj na fi waaye bu ko suñu borom xamalee ne lii du ko defati mukk du ma ko joxati keneen kat yow dong laa ko jox dama la koy jagleel ah sañ na ko wax ah keneen ko wax waaye njort rek lay doon xamul la suñu borom nar a defi lépp xamul la nekk ca umul kitaab bi lépp xamul la jóge imaamu mubin lépp xamul la ci alkitaab bi xamul la ca iradatullahi xamul la ca yeneen i kayit yi kon su ko wax te suñu borom xam ko moom waxloo ko ko sant ko ko mu wax ko moo jàdd yoonam moo tax loolu moo tax mu sañ a wax loolu moo dina nag suñu borom bi ñu ko defee muy bunt yërmande yemalewu ko ci nit ñi rek waaye nit ak jinne loolu moo tax mu ne bi yataàllaqa alladina aslamu min jinni asri doona man lam yuslimu bépp jinne boo xam ne ji jullit nga yaa ngi ci yoon yonte la man maay ci sëriñ ci man nga kon jinne yi leen ci buntu mucc bi ñii ciy dugg ñoo ñi ca war a dugg ñu ci des duñ dugg ñu mel ne doomu aadama yi rek ñu dugg ci dugg loolu moo waral loolu mu daal di nag waxtandi ko loo képp koo xam ne bii jàpp nga ci moom ba noppi wanati ko gannaaw di jàppati lenn doonte da ngaa dellu ci alxuraan ak sunna itam wa mu wan perte nga perte koo xam ne lii la raw doo ko mën a daboo ndax ba nga jàppee ak sunna ak leeru alquran ak leeru sunna bu dëgër boo xam ne xablullaahi la yàlla rek la te du jàdd moo tax mu ne mu ne anni tawalla mudbira baada iradati wa sabara bukku taskare faraxte alkande ñeel na képp koo xam ne ci jàpp nga ci man ba noppi woon ma gannaawati muñ ma mu daal di nag ne dana xamle tuuti ci lan mooy murid lan mooy al irada mu ne xaddul iradati bi qawli saada tarkul muridi ma alayhi al aada suma rujuuhu ila al muctaadi qabla wusulihi kal irtidaadi idil muridi laa yurid abada xayra dida rahmani qatada mu ne bu fekkee ne dañuy définir te al iraadatu moo di ak murit dañ ko sang yu baax yi xamee ñu ne da bàyyi aada loolu moo waral kër gi bari ñu xamul lan mooy sëñ Tuubaa lan mooy tasawuf xaw fiir bi nga bari li nga xam ne mooy aada ci nit ñi yëpp da koy bàyyi ah loolu jafe na bu ci laaj dikkee daana ko mën a waxtaane su ma la joxoo ilal mu'taadi qabla usuli ñu ne nag bu fekkee ne nit ki dem na ba bàyyi aada yooyu ngir yàlla wacc lépp jublu ci yàlla jaare ci sëriñ bi su wàññi koo dellu ci aada yooyu te yàlla ba noppi niñ ko jàpp mu mel ne ku génn ci ba noppi daw teewlu doon na meeram fu mu a toll lu dul ngërëmal yàlla dong dong dong te ngërëmal yàlla ci loolu dong la koy mën a amee kuy wut na ngërëmal yàlla ba mu yàgg amagoo nga wàññi ko wuti leneen wàcc ngërëmal yàlla yaa ngi mel ne ku wàcc yoon wi yoon teel mu sallallahu alayhi wa sallam rëddoon dem jaari ci yeneen yoon. muy nag li ñu tàmbalee na nga dëkku ci sopp sëriñ bi sëriñ ba nga jëblu na nga dëkku ci coxeelam na nga ko sopp sopp sëriñ bi wax na xam nga sëriñ bi wax na ci xoqaam naan tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xabbin aw hadiyatin mu ne taxe ñeel na murid bu dëggu bu topp ci kenn ci gaañe yi mu misaal benn daf leen di liggéeyal wala mu sopp leen wala mu di leen jox addiya sopp nag li tax mu am doole faral naa koy waxtaane ne sopp mooy buum boo xam ne ci dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al mar'u ma'a ahabba nit ka mu sopp lay àndal la mu sopp lay àndal sopp benn nit ki moo sopp yàlla sopp yàlla sopp sëriñ bi dugg na ci sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci sopp lislaam dugg na ci wala yàlla sopp ko sopp yàlla lu ama am njëriñ la yàlla sopp la na nga ko gën sopp sëriñ bi sëriñ bi sopp la lu ama am solo la waaye nga sopp sëriñ bi ko ëpp doole xam nga kon foofu safaanoo nañu mu ne yàlla moom mu sopp la moo gën moo ëpp njëriñ nga sopp ko yow sëriñ bi nag nga sopp ko yow moo ëpp doole mu sopp la lu tax bala lay jëriñ ci sa cofeeru bopp la lay jëriñi mooy buum ci mu xam ne ci la lay jàppe pour mën laa jëriñ kon li mu gën a dëgëre ci la gën a mën a seetee ndax moom mën na la bëgg te du la te doo ko ko doo nangoo topp li mu wax wala defal dara ndax alquran nee na innaka laa tahdi man ahbabta walaakinna llaaha yahdi man yashaa yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ci boppam ndegam moom la suñu borom di wax ko mënuloo ka nga sopp rek nga jubal ko man ma sopp na ci yonent bi nga bëgg topp kon ma ne nga sopp sëriñ bi moo ëpp doole sëriñ bi sopp la ndax waxoon naa at wax naa ne su fekkee ne nit ki ci taalibe bi sopp ci mu sopp sëriñ bi ci leeru ngëmam la day jëriñ ci sëriñ bi bu sëriñ bi teewee ak bu teewul yëpp ak bu mu mën a toll ah kon moo gën a dëgër bu fekkee nag cofeel gi sababa ko waral benn dafa gis jëmmam sopp ko wala ak njubam la ko soppe wala lenn la ko soppe wala njëriñam li mu amee a xeetlee wala lenn la ko soppe bu teewee ci sëriñ bi rek lay jëriñ ci lay tëbb ci lay yéege waaye bu ko soree loolu taxaw kon faram koy ziyaara baax na ci moom waaye nag ki nga xam ne nag moom sopp bi mu sopp sëriñ leeru imaanam la moom moom taalibi bi fu mu mën a toll rek di jëriñ tëb ma kon yàlla tabaraka wa taala def na sopp ñuy balance dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko gënoon a jege muy Abu Bakr ak Umar ñoom ñaar ñëpp dañ ko sopp ku ci nekk day sopp ñooñu nag topp Sina Abubakar raw yonent bi sala la raw Sina Sina Omar ci topp ñu ne ci misaal Abubakar dafa topp Muhammad annabi Omar topp annabi Muhammad am na farq moo de di gën nekk na ci diggante boobu Muhammad annabi kii Muhammad la topp ndax dañu ki nga xam ne daf la sopp te du benn sabab a tax nga xam ne Abu Bakar moom ba mu xamagul ne Muhammad yonent la la nekkoon xaritam la ko sopp kon bu nekkatuloon yonent it mu sopp ko ak lu mu ko defoon muy def beneen it sopp na ko rek doom sopp moo gën a dëw Omar kañ la sopp yonent bi mu tuubee xam ne kii mooy yoonu texe te woon ko gannaaw mooy yoonu safara mu sopp yàlla sopp ko ba xolam bépp jeex ba mu gënal ko lépp waaye loolu moo sabab topp li leen peete Seydina Abubakar gën a gis ak cofeel yonent bi salaa sallam ne bu ñu peese woon gëmub Abubakar peese gëmub bindeef yëpp gëmu Abubakar wàcce ma ne nag sëñ bi mooy yonent bi ni cofeel yooyu demee saxaaba yi ak yonent bi ñu la waxoon ne saxaaba yi taalibe yi la yonent taalib bi la taalib bi la a sopp sëñ la ko fonk gën la ko màggal ngir yàlla moo la gën a gaaw a dara jëriñu bu kaawagee moo la ci ëpp mu te it moo lay gën a yéex a yàqu te it moo lay gën ëpp barke kon xaata muridun lam yaman la min nii bi naa bi yaxuuju xayra man ni dañ ko wax day jàngale foofu wane ne murid boo xam ne bëgg na moom ba mu dara doyu ko ci man ab taxe mënees su koo xalaat xëy na man leen ndëm ji may da ko suñu borom defal waaw ma ne astin ko fi mahabbati cheikh yi benn ci sarti murit na nga dëkku ci sopp sëriñ bi na ngir jëmm yàlla lépp lu dul yàlla nga bàyyi parce que dama tarku iraada ji ma ci mu ne fa man tawallaq fa man taallaq bi waasidin wasal wa eh, man taallaqa bi waasidin fas fasin fas képp koo xam ne nag aju nga ci ku àgg ci yàlla da nga àgg ku aju ci nag keneen ku àggul ci yàlla da ngay dagg noot waaw ci yàlla mu ne nag gannaaw eh, dëggu ci sopp sëriñ bi di ci topp moo di rafet njort ci moom ba mat talabul ixtiyaar yi bul amati genn looy tànn ak moom lu mu la wax lu dul la mu bëgg wala la mu la digal xoolamaa wuy foqaa wuy ak ko sow misaal lañu misaal yu bëri ci doyloo xam ne nit ki dana ko doyloo ci moom ndax dana waaye da fekk ne wóolu gi mu ko wóolu ak rafet njot moom lu bu gisoon lu dul noonu it dana ko taal yi le neneen mooy bu dëgër bi nga xam ne doo du dagg sottee mu def mel yi doomu aadama yi itam ak doomu aadamaam far na ci xolam ba tegu ko doomu aadama gis ne a am benn naar boo xam dafa teewoon suñ bi di jàpp naka mu jàpp ba noppi taalibe ko ndox mi mu doon jàppee ci suuf suuf bi laaj ko ne ko man de dafa jàpp ndax baw du jàpp xëy na gannaaw nit moom mënu la wóolu ay jërëm te am sobe te fu ñu dindee sobe ma gis di ko lekk te lekk sa wee araam na mu ne ko suñu bopp daf leen a nëbb sama ayib maanaam xoolee suñ ko bëtu doomu aadama doomu aadama gi suñu ko ci boppam suñu far na ko ci seeni xol ba gis ñu ci moom lu dul yàlla ji kese loolu mooy tax mu mën a jëriñu dëgg dëgg jëriñ texe ci sëriñ ndax sëriñ bi ci boppam bu matalee ay sartam yàlla kese kese kese kese la lépp lu mu def yàlla tax bu defoon lu nuru jëfi doomu aadama itam si zahir bu dee sëriñ bu mat sëriñ am na lu ne ci biir ndax tout fu ñu toll ñu ngi nattu taalibe yi fu ñu toll ñu ngi leen nattu ci seen melo ci seen wax ci seen jëf ak seen i ndigal xam ndax daañu topp ndigal yi ndax li ma jëf ci ko dingat ndax li ma ndax li ma ndax li ma waxtu woo xamee ne toog naag moom dana xool dana natt xolam fa mu toll bu yokkoo dana ko xam xam la ko yokk bu wàññi ko dana ko xam xam la ko wàññi mu tere ko ko mën na koo digal loo xam ne dana mel ne bu fekkoon day seeta sharia daf naan loolu dëgg Cheikh Abu Yazid Bustami radiyallahu anhu am na benn bis mu gane si beneen waliyu kooku mu ngi am xaadim boo xam ne ku bëri diine la mën a jaamu yàlla la bu fekk mu dañ ko invité mu dal ne waa ji dogal sa koor fekk kooku daf doon woor wooru ngàtt nga rek woon kooru farata ramadan mu ne ko dogal ñu bokk ak man mu ne ko wut déedéet dama woor ki ko invité tey kilifa euh, waajooju ne ko waaye dogal xanaa xamuloo kii dogal nga wéet li ko mopp tu yàlla koor gi mu bañ yow ne ko ah bàyyi ko kii day rot na ci bëtu yàlla maanaam nga xam ne léegi ndokkoor gi bokk gi muy bokk ak ñam ñi ci abu yi wétli ko rek moo gën di di di di kon nga xam ne nit ki jaamu yàlla du muy jaamu yàlla ci farloom aku xamam aku bëggam yàlla bu fekkee ne gis na wasiila bu mat wasiila dëgg dëgg dëgg te mat ko te xam bu ko nee bàyyil jaamu yàlla gi sax bàyyi jaamu yàlla bi moo ëpp ci moom jaamu yàlla bi dul farata dul farata yi farata yi waxuma ko ndax moom daganul topp gërëmal benn bindéef ci loo xam ne bi mooy ak digg te fekk nag ñooñu luñ la digal rek du doon mooy luñ la digal rek jaamu yàlla la te mooy la ëpp doole ci yow ni nga xamee ne noonu la diwam naxa daal waxee ne cheikh bi mu ngi mel ne euh, docteur bi médecin bi ni nga xamee ne bu téeméeri malaat ñëwoon ci benn ci docteur bi mu xool leen ñu bokk benn jàngoro mu boole leen mel ne paj ñii daañu wér ñii seen jàngoro dana seen jàngoro dana day dem fa mu newoon ñii daañu dee noonu cheikh bi waxtu woo xamee ne mu ñu bari bari bu jàll ak dana jàll ci nekk sa xol la ca yokku la ca wàññiku lay sa ayib saafara sam lay maanaam euh, garab ga lay jox maanaam lam lay digal nga di ko def mu ngi mel ne ordonnance bi la médecin bi bindal mu xam na ne mooy sa jàngoro bu fekkee ne rëy moo nekk ci sa xol te moom doo nga la gàllankoor am na lu mu lay digal loola le rëy da lay dindi bu fekkee ne xool na sa xol gis na kii kañaan na ci nekk te nangam doo koy dindi lam la sant lay dindi loolu la ba ñu jàngoro yi jeex xam ne kon mën nañ laa digal loo xam ne yow sa bopp da nga defee ne bii kat du yoon te fekk na yoon la te sëriñ ba a tax may wax xam ne tey sëriñ si dañoo bari ñi ma waxoon na ay darajaat lañu alkaamil dama waxoon ne si Ahmad Bamba kaamil la alkaamil bi moom laa yusfa nuuru maarifati noora warihi kaamil bi moom loolee nga xam ne nekk na ci jëf ji mu la waroon a sant te niroo woon a day mel ne lu wuute sharia ci zahir daf koy dugal ci yeneen joo xam ne ci jëfi jaamu yàlla la sharia boo xam ne xol du ko ci mu dugal ci loolu nga jëfe ko ayib jooju la dañ kooku ku ma laaw yi noonu la ñuy jëfe moo tax ñu ne un cadre mën laa yusuf nuuru xam ne dana sooy saayir si sooy baatin bi kon dëggu ci foog sëriñ bi bàyyi tànn ak moom topp lam la wax ak it boole ca bàyyi maanaam bi ñu wax mooy di nga ci sa xol la itam nangam daal bu ko deful woon mooy da nangam daal waroon na ko def la nangam nangam yooyu yëpp ci al iraada teewul nag al murid saadax moom na bu am taxaw waxtaane ko ak i melo kooku wér gu wala moo